rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam euh, ci waxtaan bi aussi saa yu ñuy def plateau spécial dañ ciy ànd ak suñu ñaari papa euh, muy di euh, suñu papa Abdoulaye Lam papa nuyu nañ la dalal ak jàmm ci plateau. maa fi maa ngi lay fay ñuy ju sant yàlla di julli ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di sant yàlla ci li mënu may kàttan ak wér. ba nu dugg ci weer wi doore ko ci bisimilah rahmaani rahim fas yéene génn ci alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi ñaan sunu borom mu nangul ñu sunu koor ak lépp lu luñ ci ñaan di nuyu ñi ma seqal plateau bi yëpp gànn maa ngi lay ziar euh, sëñ moor ak sëñ Moustapha sama rak Abdoulaye mbay Peex ak yéen ñi nga xam ne ñoo seq plateau bi di ziara nag euh, suma sëriñ sëriñ Mouhamadou euh, Mbacke xalifa sëriñ Abdoul Khader Mbacke ak njabootu sëriñ Abdoul Khader Mbacke yëpp. am mbégte mu mag jàkkaarloo ak suñu papa Abdoulaye Mbaye Pekh papa nuyu nañ la. ne ne maa ngi lay fay sant yàlla bu baax julli ci Seydouna Muhammad sangu sang yi sant Serigne Touba Mbakke mi tax nu tal ko ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha ñaan goog am na tàmbali waaye am fu mu yem sàkku it ñaan ci taalibe yi ak jullit yi ak réew mi ñu ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaxa mu yàgg te wér walu bëñ la ko def dafa mokk te kenn déggul kuur ga Mbàkke yàlla nga fi yàgg te wér ñaanal bu baax sunu yaakaari tey ëllëg maag Abdoulaye Lam mii toog mu Serigne Cheikh Mbàkke mu Cheikh Abdou Khadir sant yàlla waaye ñaanal bugaan ndokkeel ko ndax weer wi di weeru koor jox na ko ak xam li ci palaato bii def biir réew mi ak bitim réew ñépp d'accord kon weeru koor wii ñëw président Bougane jox na ko ak xam ci gasandu ko teral ko waaye xoolal tey plateau bi mu ko gungee weeru koor gasandoo ko sëriñ Touba gungee ko sëriñ Touba ndam la moo tax ñuy nuyu ñëpp di ndokkeel ñëpp di leen siyaar nuyu nag suñu xaritu bopp bile gànn mesere day man may moom di nit ku yàlla baaxal ak sëriñ Moustapha Seck mii nga xam ni dañu bokk lépp ak sëriñ Omar Guèye tey xam naa ni tubaarkàlla da nga taatan tey lool am na solo waaye nu yoo xalif général de Tidiane sëriñ Babacar Sy Mansour ak njabootu Alaaji Malick yëpp ci cant gu ñu sant bugaan waa kër si jaaj maal yëpp woo nañu ci suba waxtaan ak man ni ma waxal bugaan bég nañu xam na ni baayam sëriñ Abdou Aziz ko jàppoon ak la mu ko fenke ginnaawam wan nañu ko kon moom itam ñu di ko ndokkeel nuyu leen ak yaag ak alima alima la waxoon def na ko na nga koy ndokkeel di ndokkeel soxna Xadi Wàdd mu baax mu la waxoon def na ko nuyu sama doomi bopp ñaan daal jàmm ci réew mi woor nañu jàmm. Mhm. yàlla nañu woor ak jàmm. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi papa euh, plateau bi tey dama koy bokk ànd ci ak kii di Alima Ndione Alima ñu ngi ziar. nee na maa ngi delloo ziar bu wér. Euh, di am mbégte àndandoo ak téléspectateurs yi waaye itam àndandoo ak euh, ñu tedd ñi nga xamante ñoom la ñu àndal ñëpp tey ci dernier grand plateau ci Sen TV la télévision leader suñu papa wax na ko léegi Alaaji Abdoulaye Mbaye Peex booy waxtaane Serigne Bamba euh, dajale ñi ñëpp dugg nga ci kër Serigne Bamba kon delloo nañu batt ndaa la ñu naane xare nag ki ko teewee ko mën a nettali Serigne Gànn Mesere mën naax ci Serigne Bamba ak suñu baay yu tedd yi toog ñëpp ak téléspectateurs yi Cheikh Sarr maa maa ngi lay fay soxna Nene di nuyu ñi ñu toogal ci plateau bi yëpp amaat mbégteeg bànneex teewaat ak yéen ci li nga xam ne moom moo di grand plateau ñu ngi nuyu ñu ñuy seetaan rawatina ñu nekkee bitim réew di leen wax salaamualeykum lu fi génn it yàlla nañ ko jëriñoo te it nag bokk ko ñëpp ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem salaamualeykum. moom moo wàdd kontaan nañ lool. jërëjëf aliment maa gën a euh, nene plutôt maa gën a kontaan di nuyu aliment <clears throat> di nuyu waa plateau bi yëpp di nuyu téléspectateurs yi nga xamee ni. bi koor gi tàmbaleek ba tey ñi ngi wétali ko GP guddi gu jot donc ñi ngi leen di nuyu di nuyu waa diaspora bi yëpp di kontaan ci bokk plateau bi ndaxte tey defe naa ne ñun ndaw yi war nañu di bokk ci plateau yi mel nii parce que euh, enseignement dong la ñu ciy jëlee euh, bokk ak plateau sunu papa Gana Messere mbégte la euh, bokk kook Serigne Mor mbégte la bokk kook Serigne Moustapha mbégte la waaye itamit bokk kook sunu papa yi di per Lam ah ak sama papa ji toog. ah donc vraiment loolu mbégte la goo xamee ni defe naa ni bi ma ko bi ma dalee tele ba tey maa ngi koy doog a yëg tey. Mhm. waaw mbégte gii nii. Ah. mbégte mu rëy mbégte <laughs> euh, ci noonu may dem ci sëñ sa sëñ euh, Saliou Khoule sëñ Saliou nuyu naa la. dinañ dinañ ci ñëwaat sa micro mooy def yëfu séeréer comme ni ñu koy waxee fan yii yëpp euh, ci noonu comme ni ñu koy ah defee tous les soirs dañuy euh, <laughs> dañuy dem ànd ak Mouhamed Diop mu indil ñu le point corona. le point corona Mouhamed Diop lañ ci àndal Mouhamed nuyu nañ la lan nga ñu indil tey. fay nañu la nenne tey euh, xanaa dem rek ànd ak ministère de la santé de laction action sociale docteur Aloyse Waly Diouf moom mooy ñëw fan yi euh, moom ci boppam mu defal ñu njàngat li mooy directeur bu cabinet bu jëwriñ ñu dénk wàllu paj meeg paju mi Abdoulaye Diouf Sarr su ko defee euh, ñu taataan test yi ñu def tey ak résultat yi mu génnee su ko defee ñu mën a dikkaat mën koy commenter c'est tout de suite. tey ba ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj lim ci juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñeent test yi ñu def juróom benn ak juróom-ñaar juróom benn fukk ak ñaar ñoo ci positif maanaam ñeent fukk ak juróom-ñeenti cas contact ñaari cas importé ci Ziguinchor ak Kédougou fukk ak juróom benn cas communautaire ñaar ci Liberté 6 benn ci Diamaguène ñaar ci Parcelles Assainies benn ci Grand Médine benn ci Wakam benn ci Mamel benn ci Fass benn ci Médina ñaar ci géejawaay benn ci Kër Masaar benn ci Mbaaw benn ci Mexe ak benn ci Caajaay téeméer ak juróom ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak benn cas yu sonn ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des ci hôpitaux yi ñu ngi tane bésu tey dalee ko ci cas bi nga xam ne moom la Sénégal njëkk am woññi nañu ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróomi ñaar fukk ak juróom benn cas voilà euh, c'était donc la situation du jour Néné muy euh, résultat yi ni mu génnee ci tas yi soxal euh, mbas moom mi di Covid 19. alors xibaar bi ci yees rek mooy Néné Sénégal enregistré na lu toll ci fanweer ak juróomeelu nit ku faatu ci mbas mi sànq lañu génnee communiqué bi góor la ki mujjee faatu mi ngi tolloon ci juróom fukki at ak juróom-ñaar ma nga faatoo kon foofee ci hôpital Fann alors ba mbas mi tàbbee ci réew mi ba léegi mën nañu wax ne ñi nga xam ci ñoo am wopp ji nee na ñu ngi toll kon ci ñaari junni ak. juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn muy 2976 ñi nga xam te ñoo nekk sous traitement ñuy saytu seen yaram ñu ngi toll ci junni ak euh, juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom muy 1525 ñi ñu faj ba ñu wér nag ci wopp ji ñu ngi toll ci euh, junni ak ñetti téeméer ak fukk ak benn muy 1311 district yi nga xamante ne nii laale nañu ci mbas mi également mën nañ leen xayma ci fanweer ak euh, juróom-ñeent ci 39 la ñuy toll alors total décès yi day dikk kon doon fanweer ak juróom ndax ki mujjee faatu sànq ak benn évacué ñu fàttali ne également ba mbas mi tàbbee ci réew mi ba léegi ñi am ñi xam te ay cas contact lañu euh, c'est-à-dire ñi amee wopp ji kon te wàllante ko ñu ngi toll kon ci ñaari junni ak juróom benn téeméer euh, cas communautaire yi maanaam ñi ko amee te xamuñu ana ku leen ko wàll ñu ngi toll ci euh, ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar muy 272 cas cas importé yi tey nag xam ngeen ne fan yëpp 86 la doon doon muy juróom-ñetti fukk ak juróom benn tey am nañu ci ñu génnee ñaar ci importés yi yokk kon moo yóbbu ci lim bi euh, cas importés yi euh, ci 88 euh, alors loolu moo nekkoon situation bi nen ne ñuy gën a farlu rek te xam ne wopp jaa fii li koy wane saa su ne du ma dañ di ko wax mooy résultat yi muy génne fan la jógee donc am na ñu ngi ñu ngi ñu ngi wax ci localité yu mel ni Kédougou ak Ziguinchor je pense waaw mm. donc mooy yóbbu ci lim bi 88 cas yi nga xamante ni moo soxal cas importé gëjoon nañ ko dégg nag cas importé yooyu daanaka daanaka def na ñetti ayubés euh, ci 86 ci lim foofu la tolloon muy juróom-ñetti fukk ak juróom-benn donc ñaar yooyee ci yokk moo koy yóbbu kon voilà absolument euh, parce que ñu ngi def liggéey bu am solo gendarmerie nationale pas plus tard quavant rek wala hier jàpp nañu ay nit euh, ñu doon ñu ñu teg leen loxo comme quoi ñoom ñu ngi def ak saytu liggéey bu am solo ci ñi xam te ni ñooy xëtt wàllu dogal yooyu yooyu ñu jël ci euh, tere ak dakkal lu jëm ci euh, kon transport interurbain yi wala interrégion yi voilà donc c'était la situation du jour ñuy gën a raxas loxo yi rek euh, takk masque yi dandante bi comme ni ngeen ko defee lu ci am solo la pour clair concis merci Mohamed on se retrouve beneen yoon parce que tey mooy dernier GP donc xam na yow dina la retrouver ci yeneen édition d'information suba suba incha allah waaw suba la ñuy clôturer GP d'ailleurs ah <laughs> très bien donc avant ñuy dugg ci jërëjëf soxna Nene saadi lisaani newe janaani saafi amaani wasit baraayi alhamdulilahi lazi alaman ixsaana maalam yaxlam ñu ngi sant yàlla di julli ci sangu-sang yi Seydunaa Muhammad di santaat bu baax suñu yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul mi nga xam ne moo war a waxtaan bi waaw suñu jàmbaar jooju nga xam ne naan wuy dolli mar la waaw may ziar nag sama buntu ci Serigne Touba borom daaru Noreyni di ko ñaanal mu yàgg fi loolu téwér soxna Ndike maa ngi koy di ziar Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni di ziar njabootu borom daaru gi yëpp waaw soxna nen di nuyu nag soxna moomi soxna moomi kebe euh, maa ngi nuyu Mamour Kanji di nuyu Laasana Gànji Saaxo jërëjëf soxna nen bismillah merci donc dañuy tàmbali waxtaan bi dañuy tàmbali waxtaan bi ak sëriñ euh, sëriñ Gana Messere sëñ Gana Messere ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Ah, jërëjëf dalalaat xam naa dañuy jox euh, amaana suñu papa Perlam mu ubbi waxtaan bi papa ñu ngi lay déglu. Euh, nee na jërëjëf delluwaat rek euh, di sant sunu borom subhaanahu wa di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul sunu yaakaar tey ak ëllëg di ñaanal xalif général des murit mu yàgg fi lool te ànd ak wér Serigne Mountakha Bachir. Euh, di ndokkeel nag mbokk jullit yëpp rawatina nag communauté Mouride ci bésu barki démb bi ñu doon fàttaliku sosuk yoonu murit nekkoon ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci koor gi ci Mbàkke Kajoor. dégg ngeen ci rajo yeeg ci télé yëpp borom xam-xam yi doon fàttaliku bés bu am solo boobu nga xam ne nii li wolof di wax rek ne lu yëngul la ko yëngu la ko ëpp doole kon ñu ciy ndokkeel mbokku jullit yëpp ndax yaakaar naa ne euh, sosu gi yoonu murit sosu ak defaru la ñeel képp ku ko yëg ak ku ko yëgul euh, ni ñu ko waxee nag ba koor gi tàmbalee ba léegi ñu ngi waxtaanee kilifa yu baax yi dem nañu Touba dem nañu jaasaan dem na nañu euh, euh, Tiwaawan dem nañu fépp rek tey nag ñuy waxtaane cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba xaadima rasul yal na nu ko yàlla fayal yokk leeram te taaf ñu ci barkeem gànna sëriñ Touba dafa woote ñu wuyu ko mu am lu mu ñu tegal muy projet de société moom laa bëggoon nga ubbee bi sëñ bi wootee bañ wuyu si ko lan la ñu tegal. papa nga baal ma rek ma yokk ci rek. Mhm. Euh, benn question bu ndaw amaana pour accompagner li nga wax. Mhm. Euh, tey jii euh, lan moo tax sëriñ bu tedd bi taxawal lii di yoonu murit. auzu billah bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah noo ngi dellu si di nuyoo. ni ñu ko tàmbalee woon léegi di nuyu Cheikh Mamadul Muntaka di ko dollee ñaanal sunu borom yàggal ko te wéral ko ak mboolem njabootu ak Cheikhul Xadim gi yëpp di ko ñaanal kilifa diine yëpp di beral ab nuyoo alhaji maam Thierno mi nga xam ne moo nekk ci boppu njabootu Serigne Cheikh Awa Balla di sunu wayjur di sunu kilifa di nuyu jawrinam di sunu wasila di sunu wayjur Cheikh Mamadul Maxtaar ak mboolem kilifa diine yëpp noo ngi leen di nuyu bu baax. Euh, li ngeen tàmbalee muy laaj bu am solo muy li tax sëñ bi taxawal yoonu murit ak bi ma ko taxawalee ci lan la ko taxawale muy lu am solo loo xam ne lu mat a fàttalee la lu mat a waxtaane la ndax ku tedd ki Cheikh Bamba dana doy rek ci misaal bi muy ñëw li ko indi mooy yeesal diine yeesal lislaam rek moo ko taxoon a ñëw te yaakaar naa jàngkat yi dégg nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ne bopp téeméeri at bu nekk yàlla dana yónni kuy tajdiid maanaam kuy yeesal li fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyiwul muy sunnaam yonent bi sallallahu alayhi wa mu fiy bàyyi ko dafa dafa joxe woon ndigalul nañ ko jottalil message am kenn ku ci nekk sa kemtulaay kattan fa nga ca tollu ak la nga ca man balli waani walaw aaye loolu defe naa saxaaba yi déggoon nañ ko ba tisaaroo ci goxi àdduna bi loola tax na ba euh, boo seetee yenn saxaaba yi seen i bammeel am na ci ñu seeni bameel bammeel nekk siin loolu lépp nag ngir ngir ngir ngir tisaare daawa bi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salatu salaam andi woon te suñu borom matal ko ci gërëm ko jàpp diine l'islam muy diine ji mu reconnaître ci al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al islaama diina loolu bi mu amee ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa xam ngeen ne alxulafaawul arbaa def ca la tàmbalee Seydina Aboubacar Siddiq day mel ni ginnaaw yonent bi mu fi bàyyikoo rek xeex bi njëkk taxaw ci jamonoy Seydina Aboubacar la ñu koy tuddee xuroobu xuroobu ridda nga xam ne booba ñan ñenn ci jullit ñi dañoo lank ne dootuñu joxe asaka te asaka di ponk boo xam ne boobu lislaam la Seydina Aboubacar taxaw nag ci delloo siwaat jullit ñi ci ponk boobu du dañee ci moom loolu wane na kon taxawaayu lislaam ba mu fa jógee Seydina Omar ibnul Xataab nga ne mooy ñaareelu xalifa yonent bi salaahu salaam di alfaaruq di koo xam ne dimension bu rëy la am moom mi nga xam ne moom it dafa ñëw delloo si waat jullit ñi amee waat taxawaay bu rëy gis nga ne ci xeex yooyu ak bañ misaasul islam bi jàll ak noonante gi moo tax ñu faat ko moom Seydina Omar tam nekk ñaareelu xalifa yonent bi alayhi salaatu salaam euh, Seydina Ousmane it nga xam ne mi ñu koy faat am na 83 ans euh, nekk koo xam ne it taxawaay bu rëy la am ci lislaam moom ñu faat ko léegi bi loolu xewee nag Seydina Ousmane kon Seydina Ali moo war a toog nekk xalifa yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydina awiye nga xam ne dafa nekkoon gouverneur ca Cham moom it gàntal bañ a jaayante ak Seydina Aliyu ngir nañ leeral kan moo rey Ousmane loolu bokk na ci li tàmbali indi nag ay séparation ay yëf di tàmbali xew loolu moo tax Seydina Aliyu moom it dem ba jàmmaarloo ak euh, na ak Muawiya ibn Abi Sufyaan ñu jàmmaarloo ñoom ñaar le rien que rek ngir lislaam mën a mën a continuer mën a taxaw defe naa jéem nañoo waxtaan ci seen biir ngir négocier euh, jafe na ndax bu dee ci bi ñu dajee war a war a xeex xeex ba sonn di sàkk solution kenn ku nekk sàkk na ndaw lu la teewal euh, bu dee Muawiya yaakaar naa Omar ibn al-As la bu dee Seydina Ali Moussa al Ashari waaye taxul liñ bëgg mu am ba ba mujj ñu faat Seydina Ousmane Seydina Ali te guddi gi ñuy rey Seydina Ali ñetti complot la yoo xam ne dañu programmé rey Amr ibn al-As programmé rey Muawiya ibn Abi mais nag Seydina Ali yu lañu la ñu jot a rey bi mu fi bàyyi ko Assane war a doon xalifa bi mu toogee ab diir coow li gën a bari mu bàyyi xalifa gi bàyyee ko Muawiya ibn Abi Sufyaan kon loolu day mel ni ci la tàmbalee ay ay lu ci nekk di xew di xew di xew lislaam di gën di wàcc si ba tabbi ci sunu sow jant ay nit yi diine taxawal fi lislaam di dugal fi lislaam xeex lislaam ci ay jaasi xeex ko ci joxe seen i bakkan mën nga ci tudd ñu bare bare ñoo xam ne kenn ku ci nekk taxaw na ngir défendre lislaam sunu sunu sunu mag yi démb yooyu l'islam xam na leen loolu bi mu amee euh, ba sëriñ bi feeñ ci Amadou Bamba ci atum 1270 war a doon 1853 ci la ci la feeñ ci Mbakke Bawal feeñ nag ci askan woo xam ne askanu xam-xam la ak tedd nga ndax boo ko toppee ci ndey ak day dellu ci rasulullahi maamam yëpp asan asan la ak sayyidatuna Fatima mi nga xam ne mooy wayjuru asan ak Useynu kon boo ko toppee silsilaam day nekk ab sharif sëñ bi bi mu feeñee ci fekk ay ay maamam doon ay jihaadkat ay wootekatu lislaam boo xoolee ku mel ni maam Maram ku mel ni maam Balla ku mel ni Serigne bu Soobee mu ku mel ni ñoom ñooñu ñëpp di ay aw askanam nit yi taxawal diine lañ nit yi xeexal lislaam lañ nekk nit yi xam-xam nekk ay delluwaay yu wóor a wóor euh, sëriñ bi it keppaaroo ci loolu tàggatoo ci loolu kon moom bii bi mu nekk environnement bi mu feeñee day nekk boo xam ne bii en ilmi lay doon muy béréb boo xam ne béréb bu xam-xam la xam-xam rek la ñuy yittewoo bi sëñ bi jógee nag dafa genn bëgg wala jenn yitte. lu may jëm ci boroomam ndax tëbul rek daal di taxawal yoonu yoonu yoonu murit bi mu feeñee ci ak njëlbeenam la tàmbali wone ci aw yoon wu nit di war a jaar wane lu teel a wuute ak yeneen melokaan ndax defe naa ci histoire néew na nga dégg koo xam ne ci bi muy am juróom-ñaari at lay fanaane naafila te loolu dafa dégg wax joo xam ne way juróom soxna jaaratullahi maam Mariama Busu daana ko daana ko wax di leen ci delloo te boobu waxtu ndaw la naan leen midda bi saalihin qiyaamu layl gaa ñu baax ñi li ñu leen nawee woon mooy taxaw guddi di naafila loolu sëñ bi daf ko teel a dégg ba bu guddi masaa jot booba dala gudd jàng waaye day taxaw na temm di naafila ba fajar ngir teel a dégg wax jooju nga xam ne way juróom mi ngi koy mi ngi koy euh, nekk koo xam ne dafa teel a géeju ci xam-xam ne ci keppaaru way juróom xaadi Mamar Anta Sali mi nga xam ne mooy baayam nekk baxalul ulum nga xam ne baayam moo nekkoon université bi gën a rëy fii ñu baree bari ci yeneen turuxu suuf yi jàng nañ ci Serigne Mbacké Mor Anta Sali ndax baxrul ulum namiril ma'i mawruda la Euh, kenn ci euh, borom xam-xam yi waxoon nañu ko muy sëriñ Mamar Kan loolu bi mu amee sëñ bi nekk ci keppaar way juróom ndax way juróom euh, jàngalekat la xutbu la xawsu waaye sëñ bi it sëñ te taxawal dara ndax kilifaam a ngi dund muy sëriñ Mor Anta Sali nga xam ne fu ñu mën di nekk day ne ci keppaaram waaye ne ci daaraam di jàngaleel way juróom teela wone it ci xam-xam lu yéeme ndax ci waxtu daara yi way juróom ci la taalif téere yoo xam ne sëñ Mor Anta ci boppam jàngal na ko ay doomam ñu di ko jàngale ci biir daara ci loolu bi mu amee mu continuer nga xam ne béréb yi way juróom nekk yëpp boo dem feeñee Mbakke Bawal ñëw xuru Mbakke dem Poroxaan jóge Poroxaan dem Patar jóge Patar ñëw Mbakke Kajoor foo ci nekk way juróom lay àndal ndax way juróom moo nekkoon xaaw bi moo nekkoon ko daan atteel Lat Joor waaye sëñ moor dawul dëkk ak Lat Joor ci ab pay ñu bokk pay maanaam benn dëkk maanaam bu Lat Joor nekkee fii fii lay nekk moo waral bi mu nekkee euh, kër Amadou Yàlla mu nekk Pataar ba mu nekk Sugeer mu nekk Mbàkke Kajoor léegi bu bisu atte bi jotee nag mu ñëw atte sil ko delluwaat ndax sëriñu daara la woon waaye bi ñu demee ci 1300 ñu koy wax assis ass mooy sëssin di 1300 war a doon 1882 ndax assis mooy 1883 même 1880 du sori 80 81 ndax yoonu murit 1881 la euh, jàpp 82 la taxaw bi way juróom di dundu amul dara lu muy taxawal nee naa la amul dara lu muy bëgg amul dara lu muy yëkkati keroog bi way juróom génnee àdduna Serigne Mbakke moo doon te ci dëkk bu ñuy wax Mbakke Kajoor bi mu génnee àdduna way juróom batale woon na ñu yóbbu ko dëkk bu ñuy wax deqale ñu andi ko deqale keroog bi ñu ko dencee ba noppi am na ku ñuy wax sëñ Ahmadou Ndoumbe Mar Sill moo ko jullee moo def discours woor waar nit ñi delloo si leen ne leen nag daal di woo sëñ bi ana Ahmadou Bamba sëñ bi ñëw ba jege si mbooloo mi mu ne ko noo ngi lay jaal sa way jur wi waaye nag danoo bëgg bu noppee nu ànd dem ci buur bi fi nekk nu jaal ko sa way jur mu teg la béréb ba mu tegoon sa baay te xam naa loolu njëkk rek laa ciy loolu defe naa noonu la ko sëñ bi Lamine Diop adagé nii nettalee sëñ bi ne ko maa ngi leen di sant ci mbirum tanzir mbirum jaal mi moom maa ngi leen ci sant waaye dox nag jëm ci benn buur bopp adduna malaaka yi seere ne maa ngi jëm ci ku dul yàlla jomb naa te boobu fanweeri at la loolu andi na ñaari xaaj bii kuréel ne dafa dof ndax dañ ko jàppe woon asafiya ndax won gi woon ginnaaw adduna won ñooñ ginnaaw adduna dëgmal yàlla di sori nit ñi ñii ne kat xel me gàtt ndax bii pouvoir ji dara ji ju rëy kenn ku ne bëgg falu jege buur bi ñu ne la kaay ñu dendal la ak moom nga ne soxla woo xel mee mi daal moo guddut ñi koy poussé ci mi demit li tax sëñ Tuubaa it mbiram dafa lu ci nekk moo ko bindal boppam bii ñu ko waxee ne ko xel mi dafa gàtt da ko bind bii ñu koy poussé ci na ko jengal dem ci buur yi da ko bind bii dafa wax ne qaalu safihun li kaw ni lam axaf axada wa ma rajawtu siwa arrahmani di qadari qaalu safihun li tafwidi ila maliki amri anil kawni fii safin wa fii qadari nee nee nañu sama xel daa gàtt damaa damaa ndax ñàkk jëm ci liñ bëgg ak ñàkk a kenn ku yàlla ak ñàkk bëgg kenn ku borom bi nee na it sama xel dafa gàtt ngir soppi ko gis bokkulu maa ngi ñoom ay gisin ñoom liñ gis ak li ma gis bokkul kon sama xel dafa gàtt ñi koy proposé na ko demal ci wuuri adduna yi nga dégg li mu wax qaalu li yarkan li abwaabi salaatayni tahuz jawaisa tugni kulla ma xiini fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya xayla almi wa diini mooy ñi ngi may wax jéngal jëm ci wuur yi ma ne leen déedéet man yàlla doy na ma te doyloo naa ko man yaari mbir rek la bëgg mooy alalmi wa diin muy xam-xam ak diine loolo ba ko waxee da caa dolli nag leeral nit ñi leen ku dëgmal li wan ginnaaw pouvoir yi wan ginnaaw mbooloo mi des na la jéem a noggatu jéem laa napp mu tegal leen lu leel warastu arju wala axsha siwa maliki li annahu jalla yugnini wa yunjini du ma ragal kenn man sëñ Tuuba du ma yaakaar kenn man Cheikhul Xadim ku dul yàlla borom bi subhanahu wa taala ndax bu ma ñàkkee yàlla rek moo may jox bu ma nekkee ci njàqare yàlla rek moo ma fay génne te bëgg poñe xiitum adduna ak bëgg dombay tànk du ma jaral ma fekk wuuri adduna yi nga xam ne seen ëtti ëtti seytaan la ma di ko fréquenté fa kayfa yabaaduni xubbal xutaami ila jiwaari man duuruhum rawdu shayaatin ñoo ne ko kon daal xam naa sedd dëddu adduna gii daal xel mu gàtt la ay ayib la mun in kaana ayibee zuhdun fii xotaamihimu fa daaka ayibun nafisun laysa yuxsini loolu moom moo ko waxal boppam loolu mi ngi am ci sësin ba mu demee ba asas di 1301 way juróom génn na adduna des na ci daara ji ab diir maanaam man nga jàpp rek at ak weer yoo xam ne defaat na ci nag ab tournée boo xam ne dem na fi gànnaar dem ci wé dëkk yu baree bari wër ko lu jiitu demu gànnaar gu mujj gii mu demee ba mu dellu see nag la jot ndigal maanaam sosu yoonu murit ndigal la sëñ Touba jékki-jékkiwu rek créé yorul ab association yorul ab kuréel du ay caaxaan maanaam ndigal la lu bàyyi ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw ci Serigne Touba loolu ni nga koy déggee mooy weeru koor la ñaar fukki fan ak juróom-ñaar dañoo laylatul xadr ba ca suba ga nga xam ne guddi laylatul xadr gi la ko yonent bi salaatu wasalaam feeñul boppam mu chefaha nag la wax maanaam amul benn kiiraay bu dox seen diggante ndax chafahanii la wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi rabbi ashabaka bil himba wala turabbihim bi la sa faxat faxat an yenaka laa mu jaddidan li hada al jili yonent bi moo ne ko ahmadou booba sëñ bi day jàngale sëriñu daara la yor daara mu ne ko soppil doxalin wi bu la yamati ci ci jàngale maanaam mu tuxoo ci xaalu tadris jëm ci xaalu tarqiya loolu aw tekkin la laaj mooy lan xam nga dafa am lu ñu tudde nazariya am lu ñuy tudde tatbiqiya am loo xam ne pratique la loo xam ne tawri la xam nga nit ki mën na lay jàngal misaal chauffeur bi ñu jàngal code de la ki la ko jàngal fa mu toog la toog mais yow boo respecté wul code de la route bi man nga cee def man nga cee def erreur ndax ki la jàngal yóbbuwu la danaa la awal nii rek awal nii moytu troisième position nangam nangam moo loolu mooy jàngale sëñ bi nag saytu tarqiya la maanaam day ñàbbu ci soloxo yóbbu ca yàlla moo tax ñu ne ko bàyyil njàngaleem kese mi te woote mu xëy ajjuma ñaar fukki fan yooyu ak juróom-ñaar dajale daara ji boobu fees na dell mu ne leen ku njàngum kese rek indi woon bis ni ki tey jot nga ndigalu dem seeti beneen sëriñ waaye man araada maa araat na fal yasir bi sayri na koo xam ne li ma bëgg moom nga bëgg doxeel ni may doxeel ñëwal ñu dem bis boobu ko sëñ Tuba déclaré li daara ji di xumb xumb li mbooloo mi di bari bari ajjuma ju ñetti nit a jébbalu sëñ Tuba man ñetti nit muy sëñ Adama Gueye awwalu man amali bii Adama Gueye sëñ Adama Gueye Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ Cheikh Massamba Diop Sall noonu ci ëllëg sa sëñ Ndam Abdourahmane Lo nga xam ne booba Mbàkkoor la nekkoon bi woote bi di ñëw ci ab yónneen moom da dox sëñ Daam Abdourahmane Lo ñëw jaayante sëñ Mbàkke Buso sëñ Daaru Asan Njaay sëñ Mahamadou Lamine Gay Firdawsi sëñ Mahamadou Lamine Gay jëmmooy mag ñi jaayante sëñ Ahmadou Fa Jama Ñang ba ci sëñ Mor Jaay Tàggaar nga xam ne fukk yu jëkk yooyu day jeex ñu jaayante ak Serigne Touba bi ñu jaayante Serigne bi ca ca mbakke Kajoor nga bàyyi xel nag ne jëkk sëñ bi ñëw sayxu tarbiyam sayxu taalim moo amoon muy sëriñ buy jàngale da ami àllarba ak i bu say dongo baree nga ami soxna bu nawet jotee ngeen dem ca tool ya ñu liggéeyal la loola dana la may barke ba tax nga seex waaye tufli law lor mbooloo topp la di woyu saw san di la liggéeyal ci sawu jant sa Tuubaa ko fi jëkk andi loolu waxi Sëriñ Muusaa Ka la ngirum tërbiyaa ngi xew ci sawu jant yaa ko def pajuk aajo yaa tax ku ñuul mus ko fii ku ci bañ a ànd xam naa da koo xamul ndax gumba gistul leeruk jant yéem naa Serigne Touba kamaalug rasulullahi may mat gu duutu sew matuk sayidul kaw nañ naa ne yaay wóotaatu jol màkk ci defar ku koy sikki sàkka réere jagleg Serigne Touba Serigne Touba moo doon rasulullahi arfan bi arfin dëgg de bokk ak moom aw defiin antal naar ba wax bi maa rabbal aminu bihi xarfan bi xarfin fa ma fil jili charwaka ni li nga woote li nga indi mooy li rasul lay indi wuutewul ak moom gis nga sëñ Tuubaa dee su ko déggee ci mbedd dee su ko jàppee ci ku la neex sëñ Tuubaa léppam dafa leer loo ca bëgg dégg mën nga ko dégg waaye hôpital boo dem am na margo bokk yi koo foo dem rek am na ku melut na sëñ bi bëgg na kilifaam bëgg boo dajee nit ci mbedd mi atte ci sëñ bi na xoolal yoon wi xoolal murid yi yaa ngi juum am na ñoo war a xool teg leen bët ajjuma jii bi sëñ bi wootee loolu yoonu murid ci la taxawe muy yoon woo xam ne nag yoonu murit buñ la laajee lu mu doon mooy a tariqatu suufiya alhaadiya ila llah asasaha cheikhul qadimi ala al imani wal islami wal ihsan yoonu murit ci ñetti kenn lu la tege iman islam ihsan te waxalaat na ko boppam feneen foo xam ne bi ko góornóor général di laaj fukki laaj ak juróom-ñett da caa bokk sa yoon wi ci loo ko teg yan principe nga ko formé mu ne ussu tariqati al imaanu bi tawxid wal islaamu bi fiq wal ihsaanu bi tasawufi iman islaam ihsan la sëñ Tuubaa teg ci yoon wi mooy gëm yàlla jëfe sa diine ak rafetal ko ci la sëñ Tuubaa teg yoonu murit lii la sëñ Tuubaa sose yoonu murit mu nekk yoon woo xam ne day sukkandiku ci ci ñeent xam-xam liggéey jaamu yàlla teggin yun gërëm nekk yoon woo xam ne baidatun anil ifraati wa tafriiti dafa sori ëppal ak yéesal maanaam du yoon woo xam ne dañ naan lii manqué na ci nañ ko ci dolli du yoon woo xam ne dañ naan lii ëpp na ci nañ ko wàññi maanaam yoon la woo xam ne yoonu digg doomu la ci jëpp jëf joo xam ne ña ngi koy jëf moom la Serigne ba taxawal ca dëkk boobu ñoo xam ne Mbàkke Kajoor jot ci ndigalul boroomam mu jaar ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama mu waxal boppam lu leer amarani rabbi bi anu sariha bi anna ni malaadun waximan wa mafsaun fa man araada al xayra fii kiltay daarini fal yalus bii yàllaa ma wax ne naa wax nit ñi ne leen man Ahmadou Bamba maay rawukaay bi maay wuccukaay bi maay xettalukaay bi ku bëgg jàmmi adduna ak alaxira kaay jox ma sa bopp loolu ndigal lu bàyyi ko ci borom bi subhanahu wa taala jaar ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci Cheikh Ahmadou Bamba mu woote woote bi ci Mbàkke Kajoor toll ci fanweeri at way juróom yëpp génn àdduna mu taxaw woote aw yoonam mu yootu yoonu tasawuf di yoonu tërbiya di yoonu tarqiya di yoonu xam-xam di yoonu liggéey di yoonu jaamu yàlla di yoon woo xam ne ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la bàyyi ko woon wàcc ci ci ci Cheikh Ahmadou loolu mooy sabab bi tax sëñ bi sañ ci yoon bi kon ndigal la ndigal loolu mu am te kenn ku ku a am ab tariqa suufiya sëñ bi jaar na fa yow topp sa mbir ba jot ca am ngërëmam bi mu bi mu bi mu bi mu sëncagul yoonu boppam jël na wirdu qaadiriya jël na wirdu tijaaniya jël na wirdu saadali ba am ngërëmul Cheikh Abdul Qadir Jaylaani am ngërëmul Cheikh Amadou Tijaani am ngërëmul saadali ba wax ne kenn ku nekk ngërëm na ma radiyallaahu anhu sibtuhul jilaani ba ila axiri kenn ku ci nekk gërëm ko na ko jërëjëf ba mu am sañ-sañub joxe wirdu xaadir sañ a joxe wirdu tiijaan ndax ci biir tariqa bi am na ci ñooñ moo leen joxal boppam wirdu tiijaan ñi ngi ko yor mhm. moom sëriñ bi ndax ni ni ko Cheikh Amadou Tidiane Sérif sañ a joxee ni la ko sañ a joxee ni ko Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani sañ a joxee ni la ko joxee ndax gërëm nañ ko kenn ku ci nekk ba mu sañ a joxe wirdu yooyee kon jaar na ci tariqa suufiya yooyee ba noonee mu ko jaaree nag ba ba jot ca bu dee mazahib yi it sëñ Tuubaa juyoowul ak benn mazhab maanaam juyoo nga xam ne aimati fiq imamul mali malik nga xam ne almaliki wa shafi xanafi hanbali dafa dafa dafa dafa mboolem kutubul arbaa yi nga xam ne mooy madahibul arbaa yi sëñ Tuubaa daf ko am nga xam ne lay am lay am imaamu maliki am shafi xanafi ana ahmadi loolu moo tax mais moom daf noo digal noonu ñu des ci almaliki ñoo xam ne ñun ay maliki yoon lañ loolu lañ sëñ digal te naa ñëpp ci sowu jant ci ci ci ci loolu la ñuy jëfandikoo mu taxawal yoon woowu nag di jëfandikoo wérde yooyu ba jot ndigal taxawal yoonu boppam bi mu bi mu nekkee Mbakke Kajoor taxawal yoon wi di tàggat mag ñi di leen yar te jaayante ak moom it na nga bàyyi xel ne wóotewul rek ñu ne daa am ku jóge fee ñëw ba ku ko dimbale wala na déedéet borom yi xam-xam boroom juddu yu rafet boroom cëri yàlla borom wilaayatu ñoo ñëw jaayante ak Serigne Touba bàyyi lañ jàppoon lépp ñëw ci moom moom mi woote it ñett ña Serigne Touba wóotewul dara lu may yàlla am na ci mag ñi ku ñuy wax Serigne Mansour jaw te mi tagg Serigne Touba dafa wax ne daa ilallaahi jalla fal mujibi lahu ridan wa naajin wa muhtadin ilallah nee na sëñ Tuubaa wuutiwul dara lu ca waay boole yaa ko ca boole waaye moom li mu woote mooy yàllay kese te loolu waxoon na ko Maam Mor Jaara mii magam waxoon na ko Serigne Cheikhou Bousso bi nga xam ne sëñ Bousso bee ko jur muy taawu Serigne Bousso be sëñ Bousso bi tudde ko Cheikh Amar Fuuti yu taal taawu Serigne Bousso sëñ Bousso be soxna Jaara ñoo bokk lépp fii Sonatel bu Mbàkke bi nekk fii leen Serigne Tuubaa woolu bis daan na ngeen ma fa fekk kuy ñëw nag bul ànd ak kenn wala ko àndal bu mu agsi kenn ku ne bi nga ñëwee ki lay santu daa daa daa toog maam borom saam toog Serigne Cheikh bu sa toog Serigne Touba na leen da doon ñaan ba yàlla nungu seenu ñaan da ngeen doon jaamu yàlla di ñaan yàlla ba yàlla nungu seenu ñaan te nungoo ko ci man ndax bi ma yàlla ne jëyi jamono mbooleem gaa ñu baax ñëpp ku ne bu sañoon ma wàcc sama néeg ma wàcc ci néegam man Ahmadou Bamba waaye yéen ci seen ñaan yi la yàlla defee ma wàcc seen néeg waaye nag woote naa Kajoor dana ñëw Bawal dana ñëw Siin dana ñëw Saalum dana ñëw te ku ne booy ñëw melow fa nga jógee moom nga indaale waaye lu yàgg-yàgg nag li ngeen nekkoon yéen muy jaamu yàlla ak ñaan ba lii am bu leen ci jóg lu yàgg-yàgg kon yàllay kese la Sëriñ Tuubaa woote mhm. yàllay kese képp la Sëriñ Tuubaa woote daa ilallaahi jalla fal mujibi lahu ridan wa naajin wa muhtadin ilallaah nga xam ne amul dara lu muy woote bi mu wooyee nit ñi ñu ñëw yàlla la leen woon ndax la ngay xamee ne yàlla la leen won bi mu leen di jàngal lan mooy comportement bi ab murid war a mel ak lan moo di ak murid ak yan dayoo la war a am ca ngay xamee ne yàlla kese la woote mës ta wax kenn kenn toppee ma sa bakkan ndax da koy tere ndax moom daa xeex ak bakkanam xeex ak bànneexam xeex ak adduna xeex ak seytaane sëñ Tuubaa kenn du ne li ko bakkan defal wala bànneex yàllaa ko kon qaharta li nafsi qaharta li hawa wa suua wal idlala suxtali siwa yàllaa ma notal sama bakkan notal ma sama bànneex notal ma seytaane notal ma adduna te adduna moom nit ñooy sàkku cee mucc sëñ Tuubaa na maa egg ci jamono foo xam ne adduna moom mooy bëgg a mucc ci man ñeenti noonu yëpp mucc naa ci fa nafs wal xalq wa seytaanu qad faraqu min qasdi durriya lii du ne taxat salama seytaane daw na bakkan daw na banneex daw na adduna daw na tàggoog man ma set wicc war a wommat nag nosi jaam ñi jëme leen ci borom bi subhanahu wa taala bi mu wootee yoon wii nag nga xam ne yàlla kese rek ko taxoon di la jëm fa la jëme bi mu ne bëreet yàlla la jëm yàllaa ko tegtal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay jàll mu waxit ne sama topp ci yett laa ko teg banaytu taatiya bi tibaa'i bi dikri wa sunnati wal ijmaa sëñ Tuubaa nee na yoon wi ma ne topp gii may topp yàlla ci yetti mbir la ne alquranul karim addis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li borom xam-xam yi saxal lenn lu sëñ Tuubaa mës a jëf baa mu diglee ku ko jëf baa ku mu yar nga jëf ko mu jooyoog alxuraan amut baa mu jooyoog addis amut baa mu jooyoog li borom xam-xam yi mënoo koo xam nag yow ndax li euh, xam-xam kenn du ko kenn du ko ŋacc kenn kenn kenn mënu ko jeexal rawatina loo xamul sëñ Tuubaa fi mu toll ci digganteem ak boromam kenn xamul fi mu toll ci digganteem ak Rasulullah kenn xamul. foo xamul jotoo ko nag mënoo faa dem bay atte borom. te raabat maqaami an siwal baxil karim waaye ne ne abudun xadimun la yarim sama maqaama fàttali ci mbindeef yëpp. man maay abdullahi wa xadimi rasulillahi salaa sallam nasaxani mi lal wara baaqil xadim allamahum bi anniyal abdul xadim yàlla ma sempee ci nit ñi teg ma fee ne leen kii mooy abdul xadim al abdul xadim mooy ki boole al ibadatu wal xidma mooy ñaari tànk yi mu yor bii da koo teg ci toolub rasulullahi bii mu teg ko ci toolub jaamu boromam ay guddeem di jaamu yàlla ay bëccëgam di jaamu yàlla amul temps layaalihi asrarun wa ayaamu hudan wa awqaatuhu barrun wan fasu shukuru noo gum nooyi da cay sant yàlla ay guddeem li naan laylatul xadar weer wi ci la bis sàngam suñ Tuubaa guddeem yëpp laylatul xadar yaqumu layaali laylatan baxda laylatin fa kullu layaali indahu laylatul xadar kon jaamu yàllaa ko tax a jóg ci boromam la jóg ci yii la sukkandikoo alquran mu jël ne mooy sama mbir ci laay wammatoo alquran la jàpp dafa wax ne maasikan bil kitaabi maska dariri bi yeddi alqaidi albasiri almuayni na gumba gu jël ab tumam jox njaccaar mu di ko wommatal fu mu aw mu aw noonu laa def ci alxuraan alxuraan amay wommat alxuraan amay tàggat alxuraan amay giide ci mépp mbir alxuraan jooju mu jël moom la jël yoon wi teg ko ci jël hadiisu rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam teg ko ci jël li borom xam-xam yi saxal teg ko ci ma ijmaa nekkuñu ci nekkul ci yoonu tàndalaatu nekkul ci yoonu dajalew ni di leen nongutu wala di leen nax wala di leen liggéeyloo sëñ Tuubaa day bay defal yàlla daa dem fa yàlla ba egg fa liggéey ba am ngërëm dellu si nag ne ana ko bëgg a dem ñoo mën dem ma yóbbaale la loolu moo tax Serigne Touba jóg tàggat nit ñi ci yoon woowu yar mag ñi nag ci melo yii di leen tàggat ci tàggatin wu metti boo demee ci Cheikh Malamine Diop Adagani dane min haju bi sëñ bi yoroon méthode bi mu daan tàggate nit ñi di leen yar mooy bi ci xiif mag ñi dañ daan liggéey suba ba ngoon di yett di yanu di taxan di root ba ngoon jot nga bu pepp lañ lay jox wala kibéeru setal ndox nga koy jàllale amatee waxtu waa dellusiwaat te du dox sa digganteeg naafila dox sa digganteeg jàngal xuraan dox sa diggante yanu ji kon xiifa ci jëkk ba ci topp bari ja bari sikar muy jàng alxuraan ak di sikar ndax xaside yi yi ci ëpp ci mu àllafaat yi nga xam ne sëñ bi def koo taalif muy am daax yi ak salawaat yi daanaka bi muy ñëw daaru salaam ñëw Touba la ko tàmbali taalif waaye li jiitu ci yooyu li muy bind day dem ci tasawuf wala mu jëm tawxiid wala mu jëm ci fiq tàggat googu mu tàggat mag ñooñu di leen yar ci yoonu yàlla mu xamal leen ne nan ab murid mel ndax looloo ko tax mu ne al muridu huwa al muminu al muslimu al muhsinu alladi la yuridu siwa la fi kulli aqwalihi wa afalihi mënoo nekk mukk mukk mukk murid te ab julit faaw nga nekk aji gëm nekk ab julit nekk aji rafetal mu ne te foo jëm ngërëmul yàlla ngay sax fi ne sëñ Tuubaa nee na murid du yëngu benn yëngu ngir intérêt bu teew itil muridu la yuridu abada xayra rahmaani ay su foo jëm ngërëmul yàlla ca moo moo lay tax a jóg ngërëmul yàlla ngay wuti mu ne moo ci jiitu kon doo bëgg wala ngay bañ wala lenn lu dul jëm ci borom bi subhanahu wa taala moo tax mu ne wasful muridi tarkul iraada li wëcci man yafalu ma araad melow murid mooy bàyyi sag nammeel jënde ko melaw borom bi subhanahu wa taala muy nammeelu yàlla moo ci moo moo jiitu ci melaw yi nit ki di am te lan moo di ab jullit lan mooy aji gëm bala nga egg ci état bu nekk dëgg-dëgg gëm yàlla ban moo ci jiitu yonent bi alayhi salaam nee na laa yuminu ahadukum ataa yuhibba li aqihi maa yuhibbu li nafsihi laa yakmalu imaani ahadukum ataa yuhibba li aqihi maa yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen gëm gim gëm yàlla du mat ndare li mu bëggal boppam da ngay bëggal sa bokk saa yoo yëgee ci sa xol ne yéene nga sa mbokkum jullit ab safaan yow doonatu aj gëm kon boobu mooy état bi ci jiitu ba ca topp mooy muslim mooy jullit ñi dañuy mucc sa lori làmmiñ mucc sa lori loxo moxsin mooy booy jaamu yàlla nga yëg ne mi ngi leen la jàkk ndax ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun na buur ci moom yett yi ngay boole ba noppi doora doon dëgg dëgg aji gëm yàlla di jullit doora doon ab murit kon étape bu sore sore la maanaam du tëb dal lii gars yi bëgg a nga xam ne da ngay sóobu ci takkusaan gi bu timis di ñëw nga yàgg nga xam ne jéggi nga murit jéggi jullit yaa nga ca Baay Faal te fii ne da ngay jéggi doon jullit doon murit doora dem ci Baay Faal gaa ñu ne dañuy sauté da ngay tëb rek jébbalu tey suba nga cadré. kon am na différence entre murit murit dëgg ak murit saadix. waaw xam nga xam nga murit moo am. waaw murit saadix. Uh-huh. murit saalik. Uh-huh. murit waasil. différence bi lan la. maanaam murit saadix. Mm-hmm. mooy gëbi gëbi bi nga xam ne xam nga boo nekkee murid rek mooy gëbi bi mm-hmm. ki ñëw tey yóbbu ko yóbbu ko Dakar Bango bëgg nga dellu si ci ci murid yi am façon murid yi am question nga posé ci loolu laa ñëw moom laay leeral waaw xam nga tey mm-hmm. militaire bi nga xam ne gëbi bi nga xam ne ñëw na ñëw na tey ci quartier gi mm-hmm. ñu solal ko tenue militaire mën naa bokk leeg leer naa beeg commandant bi lu ñu sol nuróoy dàll nuroo mbaxana nuroo tenue bokk nuñ soloo dëgg la waaye bokk nuy garaat loolu nag mooy erreur bi dafa am ñoo xam ne jékki-jékki abiyé rek yóbbu seen bopp ca cour de grande dal ca saadix ya murid saadix ñeenti melo la sëñ Tuubaa moo wax ne sifaatu saadiqin mudin bi ixtisaar arbaatu nadamtuha xaw fa ixtiraar sëñ Tuubaa nee na meloy murid ñeent la li tax ma yaxal ko damay ko waru waru moom teeloon naa dégager ay responsabilité am xamoon na ne riir dana am moo ko waxoon ca njëreem ndawi jamono yii ñëw dañoo mel ni ki ma gëm ba noppi di ma nax mbuusum peñ lañ te tekki sama kanam mu dara nekkul la ma leen di fayee nag mooy gooñ gëmul benn doomu gerte eh. xam na gaañ yi ma ñëpp la teel comprendre ba teg seeni mbir ci côté loolu moo tax mu ne bi ci jëkk mooy ñeenti melokaan yii bu dajee ci yow murid sadiq nga muy ban ban moo ci jëkk asidq fii mahabbati cheikh abad mooy bëgg sa sëriñ cofeel ñu ne mooy bëgg bi nu ko cheikh abdourahman mbàkkeem sëñ abdul xulus di firil dafa wax ne xusnul ixtifali asaari alqadimi dalala in kunna muhibbina ñu ne yow bu nee murit nga bëgg nga sëñ ñu ne luy firndeel sa bëgg sëñ Tuubaa ñu ne feeg yaa ngi roy sëñ Tuubaa ci jeexintal bëgg nga sëñ Tuubaa waaye sëñ jëm penku nga jëm sawu ba noppi naan waaw wallaay sëñ Tuubaa mun morom sëñ Tuubaa kenn la boo ko bëggee da nga koy roy moom bi mu bëggee rasulullahi miy wasilaam daa ñëw si buntam di ko fëgg yaa sayyidi yaa rasulullahi yaa sanadi inni la dal baabikal mafsuulu min xawari yow sang bi yow ku baax ki yow ku tedd ki maa ngi ci bunt bi rasulullahi na kaccat na ko ahmadou loo bëgg mu ne ko lay selliyel yow ma haajadul am mi midoha si waxti fay ka xafoon xal bool badani ma dara ma dara lu may roy la foo teg boo tegee ma teg te rasulullah wasila kon loolu mooy cofeel mhm. al mahabba mhm. cofeel moo jitu ci melokaanu ab sëriñ sëñ Tuubaa ne fal ma xayru maali shaxsin uhibba mhm. loo mën am ci adduna bëgg sa sëriñ ko gën ñun kon melaw yi mooy cofeel te nakee cofeel mooy topp ki nga bëgg law kaana xawluka saadiqan la taxtahu inna al muhibba liman yuhibbu ma peex ba ca topp mooy ñaareel bi ngir nga nekk murid saadiq mooy imtisaalul awaamir ay suu waral mooy jëfe ndigal ndigal amul science ndigal amul science saa yu ndigal jógee dangay ngay jóg ndax sëñ bay Jaxate nee na lu dul ndigal amul njariñ dëgg la te xamal ne ab sëriñ mm. du bëgg nit ba fob njariñ jox ko te toppul ndigalam boo bëggatee ci sab sëriñ lenn njariñ jox koy njariñ sëriñ ku koy joxe njariñ mu di la jox ay njariñam maanaam ab sëriñ moom mënoo caa jariñ te jëfewoon ndigalam kon jëfe ndigal mooy ñaareelu position ci melaw murit ba ci topp tarkul intirat mooy bàyyi diingat mooy li xew ci adduna bi ñu koy waxtaanee ci saal yi day yàq ak murit sëñ bi daa waroona sëñ bi warutoona lu tax sëñ bi lépp ak sëñ bee murit laa waaye sëñ bee cëppatu loolu day yàq ak murit bu sëñ bi waxee nga ne daa waroon noppi sëñ bi noppi nga ne daa war a wax sëñ bi jiital diw nga ne diw mim jiital murit laa waaye lu ma enragé wut sëñ bi daal day yàq ak murit ab murit day mel ni ci kanam sëriñam mooy ñetteel ba ba ci topp salabul ixtiyaar li xusni zanni bila iqaar mooy bàyyee sëñ bi sa tànn am murid daa moom boppam rek lu mu ko neex def lu ko neex wax day bàyyee sëñ bi ak tànnam ndax sëñ Tuubaa nee na aw yiiw néewul ca tànn yow waaye aw yiw mi ngi li ci lañ la tànnal mu ne fa kullu man jamaa hadihi sifaat min al muridina fa yudriku siqaat boo doon ko ne da ngay door a ñëw démb te góorgóorlu ci melo yi ñeent yi da jot gaaña maanaam danga bokk ci kuréel ba bëgg sëñ bi jëfe ndigal bàyyi diingat bàyyee sa bopp sëñ bi loolu melo murid sadiq waaye ñun ñun ndaw ñi nga xamee ni euh, on aspire à être des mourides maanaam ñun dañu bëgg nekk ay mourides sadiq euh, daw làqu yi mooy ñi ngay wax sànq ñoom dafa am lu ñuy jiital ci sëñ bi muy kéemtaan yi mhm. kéemtaan yi la ñuy doxee ba dañuy fàtte enseignement sëñ yi nga xam sëñ bi nga xamee ni euh, ñun mën nañu servir ci suñu giirub dund est-ce que ci enseignement yooyu noonu mun nañ ñëwaat ndax ñun dañ koy soxla ñun waaw ah, xam nga sëñ bi avant muy dem ci kiimaan dafa jëfal yàlla ba mu fay ko kiimaan fayug yàlla mhm. yàlla da ko fay sëñ bi daf noo jàngal ñun ñu bëgg jariñu ci moom lim ñu jëkk a jàngal ñu xam ko mooy awalu waajibin ala al muridi taxsilu zaadahu min at-tawxiid li jëkk ci melawkaanu murid mooy mu am tawxiid xam kan mooy yàlla bañ ko bokkaale bokkul ak tawxiid yi nag xew tawxiid yi xam ne boo ne maa ngi ñaan ci barkeb sëñ bi ñu ne la nga bokkaale boo ne maa ngi sant sëñ bi ñu ne la bokkaale loolu loolu loolu loolu wérut mënta ñàkk sëñ Tuubaa ni mu ragale yàlla ni mu wéetale boroomam ni mu eggee ci yàlla kon lu tax muy def tawasul alhamdulilahi wa salla abada ala nabihi lana abada sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi sama nawalu hada wa inni yowma suu tawassuli lahu bi asli sami tafaduli fa qultu ya xaribi ya mujibu sàlli yàlla si bihi tujib macha allah kon day day mel ni def na tawasul ba ca toppit mooy yonent bi salaa sallam nee na ku santul nit doo sant yàlla yàlla mm-hmm. moo tax Cheikh Ibrahima na fa shukuruhu wa shukur la xaalixina wa ashkaru naasi mashaqat shakara fi ne saa yoo sañ sëñ Tuubaa jërëjëf nee nga yàlla jërëjëf ndax moo la ajjul loo jut ku gàtt ko yoxamti ko bu ñu jool ñëwee ajjil ko ko nee ko jërëjëf kon li ñu doon yóotu jotuñu ko sëñ bee ko ajj kon loolu bukkul ak bokkaale jërëjëfa sëñ Tuubaa nañ koy wax di ñaan yàlla ci barkeb sëriñ Tuubaa nañ koy wax ndax gaa ñi li ñuy dégagé la ñuy encaissé dañoo bañ ko gëm nit ñi te bëgg ku leen gëm di bañ bëgg ku leen rang te kenn du leen rang déedéet dëgg la mënta bëgg a dagg rang te kenn du leen maam góorutub dëkk rëyut kenn góorewul xeexut faatiwut deful dara ñaari baat nga jàng ñëw na cëpp bëgg a te dee topp cërub yàlla dee su ko saggan looloo tax suñ tubaab bi mu ñuy jàngal lim ñu njëkk a wax mooy surtout jeunesse bi dana yaa ayo sibyaan laa tujaalisu shaqsan shafihan fa rachida jaalisu gis nga bi mu lay orienté dalaa jëkk na la eh yow ndaw li yow borom 18 ans yi yow mi door a jóg yow mi bëgg agsi ci man bul fekk ab dof ngay ànd ak moom ñu ne ko Mbàkke ku dib dof mu ne safiha man yatlubu jannata bi laa ibadatin fa innahu lan yaqbala sëñ Tuubaa nee na dof dëgg-dëgg mooy ki ne dinaa tabbi àjjana ne du ma jaamu yàlla mu ne na ngeen fekk arachi ku jub sëñ bu tege ciw yoon sëñ bu manu sëñ bu sàmm ku boole sharia ak xaqiqa nga topp ko ndax waaja ba taxatu man yax fura ki ma a topp mooy ki boole shariatu ak axiir sëñ Tuubaa bi ñu ko laajee lu dul sëriñ da koo tënk dana fa cheikh laa yuxaalifu fa man naxa amru mu rabbin tafaxa nee na ab sëriñ mooy ko wuutoo wut ak rasulullahi sallallahu alayhi ndaw li kon li jiitu ci yow mooy na fekk ku nite nga ànd moom boobaa dana la génne ci juróomi point tabbale ci juróom mina riya yuxrijul murafiqa la xayri ixlaasin wala yunafiqa li mu lay jëkk génne mooy sal lu bari ngi sal dawandoo mingandoo sëñ tubaamun moroom te doo joxe addiye doo siyaare est-ce que ngi ficciwoo ak fasaale maa ngi sa ginnaaw maa ngi si yaale jëwriñ dana baax. ak fasaale moom képp. Euh, bokk na ci. waaw diggante Serigne Touba ak Cheikh Massamba Diop Sam. waaw xoolal li ko Serigne bi defal. Mhm. loo may defal defal ma ko ci nite. ci nite. xoolal. la Sam. Mhm. tubaarkàlla nit ñi nitee. Mhm. di liggéeyal sëñ Bamba te mënu leen ca kenn mënu leen ci yoon wi waaye ñoo nangu ndigal. ndax Serigne bi gis nga xoolal ma soram. bi jumaa ji waree taxaw. Mhm. dafa jël fanweeri këram ak juróom-benn garanté ko. naaw ci avion yi dem France li jëntil plan ba sëñ Modou Moussa Mbacké indil ko sëriñ bi ku ne am na fu la sëriñ bi faraloon waaye demal gan bi murit ya fa ne te gëm masoram laay ñuy wax. Mhm. bu ñu ñëw Touba. moo tax euh, sëriñ bi bu la soppee soppi la sëriñ Touba. Mm-hmm. bu la soppee soppi la teg la ci ngir te ngir mi mu la jaar te dootoo ci jóg mm-hmm. te ànd ak Serigne Touba toppum siti la mm-hmm. toppum siti ca sëriñ gën a aaj xoolal nu yoon wi nii demal kër Cheikh Rafaal demal kër Cheikh Issa demal kër sëñ ma ndumbe sëñ ma ndumbe jaay neen njureel géeg lépp jële ko taalibe ñëw fii di liggéeyal Serigne tubaa bàyyi sant Mbàkke sant Fafana ngir bëgg liggéeyal Serigne Touba mag ñooñee nag la ñu war mm-hmm. xam naa dinañ ñëw ci dinañ ñëw ci cheikh si mm-hmm. waaye dañuy des ci sëñ Touba ah, ci première partie bi dañuy des ci sëñ Touba euh, laata ñuy dugg ci ci ci cheikh yi xam naa. waaw loolu ma daaneel juróom yi ma doon wax. ci ngistal lay génne nit. kay xam nga cheikh ma sam mm-hmm. sëñ Touba dane fa ñu jëm ëllëg. bali fay rakka ànd ku ñu rusu ko gën mu a naa boole bali rakka ak ànd ku ñu rus. looloo mos a leeral. te ànd ak ku ñu rus sama Diouf sax daan na danaa fexe ba sañ Mbacke bu du ma gën a nooy yoonu jàkk Cheikh Ibrahima Fall du ma ëpp addiye loolu mooy melow murit da ngay boole jaamu yàlla ak liggéey mu ne kon da lay génne ci ngistal ngistal mooy jëf ngir nit ñi sëñ Tuubaa nee na fa man kaana yasan lil baraya fa xaaibun li anna wara lam yamliku nafan aw durra sëñ Tuubaa nee na kuy jëf ngir nit ñi perte nga ndax amuñu luñ day fay amuñu luñ nit ñi ku ne nii la ñuy ànd ak ku am ñu topp la ku ñàkk ñu bala ku wopp ñu daw la ku deenu fàtte la ku nu jéemal la bu nu mënu ci yow dara yàq sa der nii mooy nit ñi ku am ñu topp la ku ñàkk ñu bala ku wopp ñu daw la ku deenu fàtte la ku nu mënee jéemal la bu nu mënu dara yàq sa moo tax suñ tubaa dina wa man sarrahu naylal amaani bi jannatin falaa yaltafi fi sa'yihi li naasi turra ku bëgg a àjjana ju wóor booy jëful gestu nit ñi ngir yàlla kon sàlla lay jëkk génne loo jëf yàlla tax mu ne da lay génne ci atakabur yóbbu la ila tawaadu wala tasabur mooy rëy sëriñ bi lay tàggat day fexe ba doo rëy murit du rëy woyeef ak ñàkk fulu nag bokkut am na ñooñu woyeefun dañoo fay fayda am na ñooñu amuñu dignité dañoo iñaan loolu lañ xàmmeewul am na kooku amul fulla daa iñaan ndax nu nguwutub dogal ku nanguwut ku la yirif nanguwoo féete ku la féete kaw defaruwoo kon mooy atakabur la lay jëlee muy rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi mithqala darratin min al kibr lu toll ni fépp dara comme ne ci soxol ci rëy doo tàbbi mu ne da lay génn ci adaawa doo bañ kenn sëñ Tuubaa moom benn mbir la teg fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah xanaa xamoo ne sëñ Ablaay mboolem turuq suuf yi yëpp sëñ Tuubaa rek moo maye taalibe bu aju ci man bu ne may naa la geneen kilifa koo gis liggéeyal ko siyaare ko sàkkul ci moom ñaan jox ko addi jox ko addi loolu da ko taalibeem yëpp la digal lool dëgg la ci yi la bokk waaw ci charte yi la bokk dane la foo gis ku baax siyaareel liggéeyal sàkkul ci moom ñaan ndax da lay génne ci adaawa muy noonoo mu ne ba ca topp it da lay génne ci lu ñuy tudd a shakku muy deng-deng boo amee ku mat bu lay wombat doo deng-deng doo def fu riir ma jëm la nga topp ko da ngay téye fu dëgër xam nañ ko jàppe ba ca topp da génne ci lu amul njariñ jëmele ci lu am njariñ ab murit noo gum nooyi njariñ la war a doon warta bàyyi wenn waxtu mu raw warta bàyyi wenn waxtu rëcc ci moom tàggat googu muy tàggat mbooloo moom ngir jàll moo tax sëñ Tuubaa wax ne ku bëgg egg ci yàlla ku ne na jàpp ci sunna rasulullahi te wut sëriñ bu mat sëriñ bu koy wommat waaye na koy wommat ci xam-xam ak jaamu yàlla di ko bàyyiloo bidaa aada man talabal wusula lil jalil fal yactasim bi sunnati rasul bi an yulaazima mutian lamil fi zahirin wa batin an sabil yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki aada ak a jàngale lu leer sëñ Tuba ak a jàngale lu leer ak a teg lu wóor ak a xamal nit ñi lu wóor fa mu jëm moo tax mu sa neexal kenn sëñ Tuuba neexul kenn ndax yàlla ju wóor ji mu woo nit ñi ak wambat gi mu leen di wambat ci leen woon yoon wa nuy jaar moo tax mu ne yéen ñi bëgg a yegg ci yàlla te soobu ci yoon wi maa ngi leen di xam jël leen ñett bi ci njëkk mooy ku sóobu bëgg dem fexeel bay saxoo tudd yàlla mooy zikkar mooy jàng alxuraan jàng xasida mooy ne ci lu baax xayru taami li muridi saliki dawa mu dikri til jalali malik mooy kuy tukki faaw nga mu yóbbal yóbbalu murid mooy lan ragal yàlla lan mooy ragal yàlla ragal yàlla jur tekki gudd ñaari tànk la la la yàlla digal nga def lam la tere nga bàyyi boo nee ragal naa yàlla tere yaa nga fa ragaloo ko boo nee ragal yàlla lu muy digle doo ko def ragal imtisaalul awamir wa jisna bi nawaahi ñaari tànk yi ragal yàlla ba ca topp mooy kuy tukki day am ab yóbbal boo ca toppee na mooy nga nga am gànnaay ama silaahu fa xool say fa wara bihi yakunu xaatiran abla tama mooy sàmm murid day sàmm gis nga am na ci mag mab la daw ñu naan meew meew daw ñu ko naan ndax dañuy wax ne nag wi nag wi nag wi ñu ratte meew mi lañ xamul lekk nam ruuram déet maanaam dem na ci toolub jàmboor ginnaaw wóoru nag nañ muñ loolu ñoom sëñ Cheikh Bousso daana def loolu wax ne ginnaaw demee na noonu nag nañ muñ loolu ñoom nañ ko muñ nañ muñ meew ba nañ ko mus ci seen seen seen lammiñ xoola googu sàmm ni leen ci sëñ Touba yare ak ni leen ci sëriñ Touba tàggate ak yoon wure yi wi leen wam mat ba jëmee leen te li gën a yéeme mooy sëñ Touba fi ne ni muy tàggate mag mi jàng ba fees dell bari xam-xam noonu lay tàggate ci bi nga xam ne lekk mooy yàlla xamoon ak di buur ci sëñ ngay gisee buur boo xam ne ay bala ko may la mu am sëñ tubaa di ko raamloo ci sëñ tubaa nga gis koo xam ne ndoom ak tànk di gërimi di dammeel di buur di ceddo sëñ tubaa defar la ba teg la ci kaw ña la doon dagu te di la fetalal ñooñu di la xëyal ci tool du saw sant ci mel ni pénc dagg say pàq defar la war nga ci mën a yëkkati dara de wajaadali bi kasrati tilaa بالذكر والصلاة بالعلاوة وجادلي بكثرة التلاوة بالذكر والصلاة بالعلاوة وبكلي كان وساخ للورب حتى عسير بسرح من ورب ودمني إلى ثياب الأمنا وخاد لي بلا حساب المنى وعتسا بي وعيوبي ما وراد لي كل كنود جما وجادني بكون سانا من لواء ليول للأمة عيسك الصفا وكفعني جملة الرسايا به وساق لي به المزايا فإنه جل على ذاك قدير وبشاب الدهاء جدير خاتمته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفعني yaa man aalu xayri indi dalal iskuntali bi karamin yaa sajal yalaaw yaa xaribu yaa mujibu zalilalladi bi tujibu sayidina sayidina sayidina سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا في المعجزات بظلام bilaali waasabi musaasi salaam wakun li addaara wakun maayi wakun lii saayiqan fawqa maraami yabbikun wajal bi jaayi hayaati saafiya laka bihima wa juurin daafiya wajal bi jaayi hayaati saafiya نكبي ما وجور ضابية أي باتي يا داري نساب النوابي يا لغير كل من ليس يبرو أبلا ولاكو نو سيدا بهم وغدا وخل كفار والكل جيزو أسود على الأحداء مسبي في دجا وكل سجاع سذي الكفر يجدع بعد المدى يظلم سد جروين يبجو بيبكي وما تجروا يا خادم المختار يا خادم المختار ayaa xaadimal muxtaari laadanda laadanda laadanda laadanda sabaxa faman yansawum falmadu madu un muxataw Abu Bakar Sidiq المصطفى رفيق النبي المصطفى خاران بو واسن الفاروق سروا نادر بتسدين المصطفى يزو سازو أبي سابي من دابنا أفانا سلا لو نور ثم نور نعم المبوي أبو سيفتي المختار وحوى ابن عمي علي لا فقتير نحما مجرا وأصحب رسول الله أصحب رسول الله رسول الله xadiimahum muhibban lakum fi lay wallaahu yaklaw nahaaniya ublaay ni'mal muhayminu anil mayna maxtiira wallaahu axmanu nabasullaa abdan li mawlaaya wahdahu xadiman liman laa kii kalla talzanu nasaktu bina almayni bilaa ximaadi an li fardin alaa xuluqin wanaanu daydanu nawaytu dawaama siri waa sugri xaadiman li xayril waraanimal asiinul musayyanu nabiyun rasulun xayru abdin wa sayyidun alilun abibun misluhu laysa yoolinu niyun xaribun zaakirun وهو ذاكر جاد كريم بالمكارم يعدن نقي تقي صالح وهو مصلح بصير لمن لله بالآخ يسن نقي تقي صالح الله ما شاء الله saaliho ku sopp sëriñ saaliho borom jamono naim taxam saahun wa huwa muslihun basirun liman lillahi bila xisino nabiyun adibun soyayin muazabun nadirun liman bil kufri asirki yolinu allah sëñ waxtaan bi fi mu toll nii. Euh, ah. ñu delluwaat ci sëñ Gana rek. laata dellu dañuy jox euh, perlam mu ñëw ak moom ci euh, sëñ gànn papa ñu ngi lay déglu. waaw gis nañu Gana fi mu duggee. papa micro. gis nañu Gana fi mu duggee. indi na yoonu murit ba mu sosoo ak tey waaye. dañoo seetlu ne sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dafa sanc dëkk tudde leen ay tuur lu ko jiitu moo am ay doom tànnal leen ay tur ba muy sos yoon wi amoon fu mu ko fekk tey tey yoon wi am na fu mu toll looloo tax ñu bari di wax ne yoonu it amul tànki gannaaw tànki kanam la am te loolu boo gisee ñu koy wax réalisation yi ñu def ci yoon wi depuis bañ ko créer ak tey moo tax ñuy wax ñu ñëw ci réalisation yi dëkk yi mu sañc ak doomam yi nga xam ne nii tànnan la leen ay tur te lenn génn ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam soppeem ba. jërëjëf loolu mooy li ñu nekkoon li ko tax a jóg fi mu jëm li mu teg. lii la indil nit ñi tegal leen ko wax ne fi laa jëm loolu ci premièru programme mbiram la mhm. mooy jàngal nit ñi yar leen tàggal leen jëme leen ci suñu borom ba ay téeméeri téeméeri téeméer mën a génne ci keppaaram loolu bi mu amee dafa am liggéey boo xam ne sëñ bi da koy def ci aw nit am liggéey boo xam ne day ànd ak ay nit di ko def ba dëgëral leen ngir préparer liggéey boo xam ne bu koy def moom dong lay doon. Mm-hmm. loolu tax dëkk bi mu jëkk moom bi mu taxawalee yoonu murit ci Mbàkke Kajoor. Mm-hmm. bi coono yi tàmbalee bari ñuy xatal yenn murit yi di leen génne di leen reetaan di leen dóor mu di leen muñ loo ne xool leen saxaaba yi ñooy seen baay ci diine daj nañ lu gën a metti waaye muñ nañ ko ba seenu tagg na fàng ci alxuraan nga xam ne sëñ bi la muy jóob dagal nee na bu leen ko masaan nettali daana leen tegal aaya yi lil fuqara muhaajirina alladina uxriju min diyaarihim wa amwalihim yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaykum asadiqun xolloo leen saxaaba yi ñuy seen diine ba mu nekkee Mbàkke Kajoor ab diir mu jóge fa nag ñëw dëkk ñëw Mbàkke Bawal Mbàkke Bawal maam maaram moo ko sanc maamam mm-hmm. yàggu fa at ak nangam la fa def sancal boppam dëkk bi mu njëkk moom muy Daaru Salaam ci deses mm-hmm. muy 1304 moom la sañ ci Daaru Salaam war a doon ay 1886 Daaru Salaam it mu delloo ko ci borom lu tax mu sanc ko. Mhm. ba mu koy leeral wax na ko ci doxalu Kabir mooy moom Touba mu ne li tax ma ma ma ma ma bëgg Daaru Salaam bëgg tuuba mooy sellu yéene gi ma ko sanc mooy jaamu yàlla képp laa ko sanc ak jëmmi liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Daaru Salaam bi mu ko sancee mag ñu bari. fekk nañ fa Serigne Touba jaayante ak moom nitam gi njëkk a feeñ foofu lañ njëkk a feeñe muy Cheikh Mamadou Moustapha al Karim Cheikh Mamadou Fadal fa la Cheikh Ibrahima Fall jëkk amee ngërëm muy Daaru Salaam jëkk amee ngërëmul ku tedd ki Cheikh Amadou Bamba moom Cheikh Ibrahima Fall Serigne bi ñaari at la def Daaru Salaam nit ñi jàppoon ne moom kat day woote ngir mbooloo topp kook daa bëgg aw nit ak dëkk bi mu njëkk am da ko maye muy Daaru Salaam te bi muy may dëkk bi rakkam muy Cheikh Sidi Muxtaar maam Cheikh Gaawan da caa bëgg juróom-ñeent fukki dong ak juróom-ñeent may ko maam Cheikh. kon des na ca déggee ne bëgg mbooloo ak alal taxu koo jóg kon daxaa ilallaahi jëm ci yàlla la jëm ndax bu doon dëkk la bëgg bi mu sajjee Daaru Salaam du ko may kenn. Mhm. ñaari taawam yi feeñe fa Cheikh Mahamadul Fadal ak Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim ba mu fa jógee dëkk bi mu jëkk bi mu sanjaat mooy Touba al Mahrousa Touba mi ngi ko sanc ci wësës di 1306. war a doon 88 la sañ ci Touba dëkk boo xam ne kenn mësu koo moom mm-hmm. li ko wër ci moomee li buur ak siw ca kajoor ko seq bawal ko seq saaluma ko seq jolof ko seq muy Carrefour boo xam ne sëñ bee ko sanc bi mu ko sancee muy Touba boo xam ne mi ngi sant yàlla ci wommat gi ko yàlla wommat andi ko ci dëkk boo xam ne dox na digganteem ak moom ci lépp lu ko daan gàllankoor muy alhamdulillahi alkarimi dil minan ala shirali bi furodin wa sunan shakartuhu li annahu qad saaqani li watanin bihi nafa maa aaqani kon mu sant ci yàlla borom bi subhanahu wa taala fii jumaa ji nekk fii jumaa ji nekk tey moo nekk sëñ Tuba këram gu jëkk mbaarum ngeer a fi nekkoon ak dóor ngeer amoon na juróom-ñetti kees kees gu ne am na néeg ma mu des kees gu jëkk gi fii nu ko def tey ne fi la fi la tëdd fi la Cheikh Mahmadul Lamine Baara xaadimu rasul feeñi jamono bu nodd jotee mu nodd li xaam sëñ Mahamadul Maamun ñang nee na ma fanweer ak juróom ñeentee moo ñeen fukkeel moom Cheikhul Xadim te booba booba taalifa gu yi waaye bu ñuy yëkkati baatub laa ilaha illa boo leen di jiite moom foofu jumaa ji nekk mu sanc ko dara nekku fi ab diir mu sanc daarul xus ab diir mu sanc daarul rahman daarul rahman mooy kër Serigne bu di daaru naar ab diir mu sanc daarul minan juróom-ñaari at la fa def Touba di baangante di yendu fii di fanaani fii sanc gi mu sanc dëkk bi it mu wax dëkk bi lan lan la tax mu sañc ko sancu rek ngir bëgg ab dëkk wala mbooloo muy ñëw fi moom wala mbooloo muy daje dama lay ñaan yow yàlla ad'uuka an taj'alahu daara tuqa li may lay ñaan daal mooy defal ma dëkk bi di Touba muy dëkkub ragal yal mhm. dëkkub xam-xam dëkkub jub dëkkub topp sunna dëkkub bàyyi bidaa dëkkub xalaat dëkk boo xam ne nii képp koo xam ne kàccoor la na ko sori waaye dëkk la boo xam ne kuy sóobu yoonu yàlla nay àjjana ci yow waaye kuy xotti war may diine dëkk bi di pakk ci yow foofu ci Tuubaa nag la tàmbali yenn am daa xam ne di kañ rasulullah lu mel ni taiya lu mel ni raiya lu mel ni nuuniya lu mel ni miimiya taiya Muhammad Suleymaan bi serfi almaziyati kay ma taqulu simaami lirazi mi ngi ko taalifi ci kër Sëriñ Chouaïb taalif xataaba mooy noonu yee xataaba qalbiya lamma allahu sallamani min ahida wa bi xatti dan bi akrami taalif am miimi alqalbu minni fi sal yowmi xad salima bi rahmani xad alim taalif raiya muy xalbi lahu fi axtaabil gis bi takraar lanahu lil huda wa nuuru jaraaru ba mu ko sancee amul jënn ñi lu mooy dafa tàggat mag ñi waaye jëm ci yàlla am lu rëy lu mu bëgg di defar ma di leen tàggat di leen yar ñu di ko ko fu na nga xam ne bi muy tàmbali sanc Touba njëlbeenu sanc Touba rek ñëw na ngir bëgg tere sëñ Tuubaa bañ a sañ Tuubaa di ko war ne daal jëru ne ci at bi wut ay téere bëgg koo neexale ngir gàllankoor waaye sëñ Tuubaa ne dëkk bi moom ndigalul yàlla la am boo demee ci doxalu dane yàlla ma jox ndigalul sanc ko sëncu ko ngir cosaan yi démb yee nag lu mel ni sàmm ak ak yaxantu waaye dama ko sanc ngir jaamu yàlla képp ñaanoon yàlla yi nanga ma defal sama dëkk bi lu yàgg-yàgg lu jamono soppiku soppiku waxtu yi juróom moom na fiy sax hmm. wala tusbitan fihi jamaatan tuqiim asalawaatil xam si da ëbal yaa ak yi téeméeri jumaa ak ñaar fukk am na Touba waxuma jàkka yi téeméeri juma téeméeri juma ak ñaar fukk am na Touba boo demee ci muqaddimatul xidma ñu won la benn juma ju ne fam ne ka ko fa def lañ ca def téeméeri juma ak ñaar fukk recensé ba mu leer nañ boo demee ci xidma ñu won la ko ak juma yi yëggagul ba mënuñu leen cee bokk waxtu wu ne sëñ Touba ñaan yàlla waxtu bu mu faat ci sama dëkk yow yàlla nag ma defal loola mu defal ko loolu ci dëkkam bi di Touba. dëgg la foofee ci Touba cee fa la fa la bi ko boole ci mu dem liggéeyali Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci géej gi. foofu yi ci ama asas ay sës di 1311 la koy gañaayu gañaay gu dëgër ci njàmbaar gu wóor wax ne zalaltu aabidan xadiman bi dalil min aami ay chachir ilaa aami rahil bisub tey bii ma jóg gañaay takk sama kaal gi ci sama ndigli ba bañ may noppee gisati du ma noppalu du ma tëdd ci lal du ma dallu du ma bégeeti doom du ma dajale alal rasulullahi lay liggéeyal ba noppee nekkati adduna amatuma genn bëgg gudur rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi xanaa li ñu wax justement parce que euh, day day day coïncider aussi ak actualité euh, bu ñu faat waxtu yi xanaa looloo tax euh, ci corona bi sëñ Muntaxa décidé wul tëj jumaa yi loolu ñaanuk sëñ Tuubaa la tusbitan fiihi jamaatan tuqiim asalawaatul xamsi dëban yaa hakim lu jamono soppiku soppiku na am mbooloo mu koy taxawee ab kuréel moom muy taxaw jógal jógal wal fisqi wal baatili fi duwaar وجم داري عن الفجار والفسق والباطل في الدور وفي الوباء وبرايا كلها أنا وطيب سربا واكلا وجل أريمنا أريمنا منا وكن بيمسي كفيلا دامنا واجلب لا خير من الجهات أسد وفيان الآفات خذني أنسى maskani laka kullu ma awolu yalaaw yaa fi siyaasa lamri yaa faayi xan xalqi man bi xari hmm. nafsi hmm. wa diini suma ahli wal walad wa maskani laka wa di hatul habat wa kasaa dunyaaya maa xuraaya fi maani سايا واصرف عذاب نار عن جملة من يتالخو من أملاء زمن وجملة إخواني من أقاربي في التين أو في الدين ولا جانبي فليكن إسلام ودابا يا سمت ولني ولا تكلني للآت وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا am jamii almuslimiina abada wasalliyan wasalliman sarmada wa taslimi salaata lisaaba laa ilaaha illallah watadimi salaat lisaaba ana li wabli lijaaba yaa man alaan zawjatin waan wala waaw waaw dëgg udni woor jamii lisal balaat yaa man alaa an zawjatin waan walaat udni waxul jamii lisal balaat وجلاء الغني طوبابات مثل اسمها بجاي خير من نبات دغ لا دي وجل إلهي مسكني تبابات مثل اسمها بجاي خير من نبات وجل إلهي مسكني تبابات مثل اسمها بجاي خير من نبات ولترغي الجميع في مكنون حجبك وجبنا عن الفتون وانسرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وانفي الوباء والبلايا كلها أنا وطيب شربها وأكلا وجل ريما ريما آمنا وكن بعفيك كفيلا دامنا واجبلا غير من الجهاد أسد وفي عن العباد هنا لسيدان أجل ومسكني وكل ما أهول يا الله يا أفي سياس الأمر يا فايخ الخلق من بالغير نفسي وديني ثم آلي والولد أملك لك ودي حتى الأبد نفسي وديني ثم آلي والولد ومسكني لك وديعة النبات نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة النبات وهكذا دنياي ما أخرايا ففي ما ندري في الرضايا واضرب عذاب ناري عن جملة من بيتغلغ من أبناء زمن وجملة الإخوان من أغاربي في الدين أو في الدين ولا جانبي فليكن اسما ودابا يا زمان تولني ولا تكلني لآت ورام جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وذيلة لك وليعمل الختام عندك واجتنب الصلاة لصعبة أناله وبي الإجابة ñu bàyyi seen gànna mu continuer Cheikh Sarr aussi papa am na benn laaj xam naa su euh, seen gànna daane rek ñu jox Cheikh Sarr gànna ñu ngi lay déglu seen gànna waaw loolu di engagement bu mu jël ndax li mu wax ci xasida gi lépp da ko wone mooy ni mu bëgg ab dëkk mel ni nafsi wa diini suma ahli walwalad wa maskani lakka wadiatun abab kadaka dunyaaya ma oxraaya sama bakk naa la ko yàlla sama diine jox naa la ko sama njaboot jox naa la ko jox la samay doom jox sama dëkk kon yàlla la dénk léppam la sama adduna dénk la sama ëllëg lu ci war a ñaaw ta yàq tàggale maa kon jox gim jox yàlla léppam loolu tax mu ñaan boroomam na ko waxtu wu ne daal na am kuréel taxawee julli juróom ci sama dëkk boobee di Tuuba kon googu ñaan yàlla nangul na ko ko moo ko jaral nag mu engagé engagement bu toll ni jaay léppam jëmee ko ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam xam nga sëriñ bi li mu bindee waxe ko da koo jëfee ci lu ci nekk ci digganteem ak yàlla digganteem ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam dëkk bii di Tuuba fi ne du dëkk bu mu jot noonu rek daa bokk ci dëkk boo xam ne bi mu ci jot nattu la ci ñaar téeméeri nattu juróom-ñett fukk yi ñu ko teg daa bokk ci tuubaa gii mooy keroog ba mu ko génnee ak ni mu ko bëggee 1895 ba mu ko génnee 1927 la fi ñëwaat mooy keroog bi ñu koy indi waaye tegatu fi tànk ak ni mu bëggee Touba te ci natt yi la bokk looloo tax ba muy jaayante fi la jaayante contrat bu rëy bii signé ak Rasulullahi li mu signé engagé ko fa Touba yi la yanu yan boo xam ne kenn mësu ko àttan ku dul moom yan yanoon xutba ya ak ab daal ya te atte nuñ ko moo ko yan raw gaaña dëngañ di wéy tawatul balaaya sóoratul amaani lam ci laaya ñaar téeméeri nattu ak juróom ñetti fukki nattu lañ teg ak juróomi nattu lañ teg Serigne Touba ma ko teg te natt bu ci nekk dañ caa boole na ko li gën a néew ci daaw maynu la ko muy raf bu la dégg jamee boo gañee ñàkk nga boo nee aussi ñàkk na boo gestoo ñàkk nga kañ lay jeex ñàkk nga bu ma yëgoon ñàkk nga bu ma ci doon dugg yàlla na ma dimbale ñàkk nga kon muñ doon ak jàmbat muñ doon ak jàmbat waaye xoolal la ca teg yow yàlla mhm. ab xoola gën a gaaw a yëg metti sama xol bii saa yu ma dégg jamee bu ci yëgee us xàccal sama xol nee naa ko pakki sa ngërëm duutuma dellu galaaw wa surtout bi rabbi abdan hu bihi wa ma sala qalbi bi rida sa taqayyudi mhm. loo ma teg baax lu mu diis diis baax na lu mu metti métti baax na du ma dellu ginnaaw du ma onk du jàmbat du ma ne lay jeex foofee fa Tuuba mhm. nii nu séntoo weeru koor gii koor gi jeex koor gi bu mujj fekk Tuuba di bay sus di 1312 kere bi muy julli si génne ci këram googu jëm si ci jàkka ji mbooloo mi dar ko bëgg lal der bi daan nangu der bi na bàyyi leen ma sama der bi bés ngi ñëw kenn ci yéen duma jege ba di ma ko lal waaye nekk man dong lay doon am kenn kenn ci yéen ku ma koy leeral suwaalu bay si sin googee keroog bi sëñ bi jullee ba noppi war a dem Mbàkke Bari tàggat na mag ñi boobu ñetti kuréel la des ndax Touba fa la ku njëkk ba wàcce 1891 90 91 la kuréel bi jaayante woon Mbàkke Kajoor ñenn ña ca lañ wàcce ndax ci la leen wax ne jot ngeen ndigal yàlla gërëm na leen yonent bi gërëm na leen muy keroog bi mu ko ci doomam jooju feeñ jamono di Cheikh Mahamadou Lamine Bara Xaadimu Rasuul la leen wax na gan gi ëndaale la mboolem loo leen doon sakku Euh, bay sës nag li 1312 war a doon 1895 ca kori wa fekk na kuréel bii taxaw mooy ñi toll ci jàng alxuraan ñu noppi ci njàngum alxuraan bay jàng xam-xam ñu ne ci tërbiya mu bàyyi dëkkam boobu di Touba génn ko dem dëkk bi ñuy wax Mbàkke ci Jolof ay maama ma ko sancoon ba mu fa ñëwee it dañoo jàpp ni ki ñëw ci dëkk bi dafa ñëw ngir nungu mbooloo bi wala nungu dëkk bi fekk am na lu ko tax a jóg daa am yan bu mu jaayanteeg boroomam fas yéene koo jëfe looloo ko fa yóbbu defe naa fin mars la fa sanc mars avril mai juin juillet tubaab bi convoqué AOF te woowuñu sëñ Touba Afrique occidentale française juróom-ñetti réew ko composé woon convocation bu njëkk ba sëñ Touba bokku ci moo waral mois de août mu bind lettre jox ko Cheikh Ibrahima borom Daarul Muxti ne ko yóbbul ma ko lettre bu dog bu dëggu bu leer boo xam ne boo ne ko jàkk da xam ne kii xam ne fa mu jëm mi ngi bàyyi ci man Ahmadou Bamba jëm ci ki ñuy wax amiru ndar di la xamal ne aw ma jënn yitte lu may jëm ci yàlla di ko jaamu te jaare ko su sunna si rasulullahi sallallahu la wasallam bu déglu nafiq yi ak rambaaj yi ak yëkkati li ngay wut ci adduna aw ma ci soxla li may wut ci yàlla amoo ci dara baal naa la baal naa ñi la wër taxaw foofee ci béréb boobee def fa aw kori aw diggi aw tabaski aw tamxarit digg yu gàmm ñu ko tuddee safar mu door a jot lu mu def rek rasulullahi ci ne doo dégg lenn lu sëñ Tuubaa def wax ca nangam day bindal boppam gaaw bi muy génn këram Mbàkke Bari ñu war koo su engagé boo la neexee gëstul demal ci ruq boo la neex jàngal 9 août 1895 di ajjuma ñan mu jotee ci dëkk fa lañ leen téye ba tàkkusaan tubaab yi jëflante ak ñoom 10 août ñu joxe ordre pour jël si Ahmadou Bamba te jotagul ndigal moom ndax bu jotagul ndigal du jóg ajjuma jooju di la 9 la julli tisbaar ba noppi rasul ne ko mën ngaa te ñëw dem digg bi jot na mu taalif xasida ak amitu man yaxsinu min darar fekk ndaw yónni woon di si bi rey borom daarul maxti ñibbi seegul mi ngi ci yoon wi di ñëw wax set la gàllankoor yàgg lay yàgg bëgg tubaab bi ñëw te boobu tubaab bi départ nañ pour song si sëñ Tuubaa waaye xoolal ba muy génn lu mu wax xarajtu yow ma sabti saamina achar li xidmatil muxtaar macha allah génn naa fukki fan ak juróom-ñett lu ma tax a jóg li xidmatil muxtaar liggéey rasulullahi li tax mu raw te kenn du ko jot li mu def ci rasulullahi la kenn defu nattal fu la neex li tax mu raw ci rasulullahi la def kenn defu hmm. sëñ Tuubaa li tax mu raw oh. fi mu jaar ba raw hmm. ci yàlla jaar ko ci rasulullahi nit mësu faa jaar te man shakka fii dalika fal yu jari bi ku sikka bu jamono mën si dellusiwaat nañ andiwaat 1895 teg kere ba muy gañaa ñu mbakki bari njabootam gi soxna fat jaar ci mag dib taaw Cheikh Moustapha juróom-ñaari at la wala juróom-ñeent Cheikh Mahamadou Lamine Baara Sidi Mouhamad mu bàyyi fa njabootam gépp soxna Mariama Kunta dénk naa leen yàlla ba tare rakkam ji di Cheikh Ibrahima borom daaru mu toll ci fanweeri at mu ne ko na nga muñ na nga gore na nga am jom gañaayu bàyyi këram foo mas a gis ko bàyyi sa kër bàyyi sa njaw bu doon ay dëkk ko tax a jóg amoon na Daaru Salaam bu doon ay dëkk ko a jóg am na Touba bu doon mbooloo ñu ngi koy bayal ay bokkam gëm ko ay rakkam jébbalu ci moom ay magam jébbalu ci moom di ko liggéeyal waaye da doon wuti loo xam ne mën ta ñàkk te ngor a tax xam nga koy hmm. seet ki gën a goree mooy sëñ Touba hmm. gis ba mu ne billahi la ilaha illa huwa hayati wa mamati wa sakanaati wa harakati maa sayyidina muhammadin lu sonal sëñ Touba looloo dana gën naa ci yàlla sama bi yëngu sama dal sama dund sama faat lépp jox naa ko rasulaay as gor bu engagé du dellu ginnaaw wallahi dëgg hmm. jóg mu ne li ma tax a jóg li xidmatil muxtaari fii sehri safar moo tax mu ne man zanna anni li xayri la murtaxilun aw li siwal mustafa al muxtaari fii safar atta yu bari sini bi say fi safahayn wa bil mordafi ay doo saa xadari cay ko jort ne bi ma jógee di dem lan na ma tax a jóg benn ku liggéey rasulullah ba nga yore gànnaay yore kënu yore fetal di ma song hmm. yàlla dana la gàcceel hmm. da nga torox nit ñi dana la bañ dana la woon ginnaaw man lu may def wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri sa nafqin bila darali yàlla dana ma dimbale jàppale ma nit ñi bëgg ma ci géej géej jéeri ji may borom njëriñ lu amul lor jaar am li am daal ku fa jaaram ko ku mu am na solo eh, eh, am na eh, jërëjëf sëriñ Ganna yal na yàlla yàggal la fi nga gudd fan lool dund téeméeri at ak lu teg xam nga Cheikh Mat Bamba Xaadim Rasul waxayertu ndax shérif la Euh, dañu dégg ci ay kàddu yoo xam ni ci xalifaam yi xalifaam yi li ko dooree ka jiitu ba ci nga xam ne moo di Serigne Mountakha Mbacké seen kàddu mooy Serigne Bamba Khadim Rasoul faggul nañu lépp te kàddu faggul nañu lépp lépp da cay nekk li koy dëggal mooy dañuy gis ci ay mbindam li nga xam ne moom moo di euh, fasaax waaye tamit dañ ci gis li nga xam ne moom moo di maanaam euh, kashfu jamono jamono joo xamante ni si kenn ci xalifaam dikk na boo xoolee ci mbindum Serigne Touba da cee gis turam ba ci sëriñ mun Mountakha keroog bi muy ibbi jumaa ji nga xam ne moom moo di Masaalikul Jinaan Serigne Bamba moo di alxuraan. waaw loolu wér jamono jii ñu toll ci àdduna boo xam ne dafa lëndëm. mbas mi. continent yi tëj réew yi tëj fépp tëj. lu dem kenn lu dikk. ñu delluwaat ci mbindum ci waxu yàlla ci alxuraan mu ne. kallaa inal insaana la yat'aa Mm-hmm. an raha ustaxna mm-hmm. inna ila rabbika ruja arayta lis yana abdan iza salla arayta in kaana ala aw amara bi taqwa li tax ma loolu dama bëgg laaj Cheikh Bamba lan la ñu fàggul ci mbas mi nga xam ni moom la ñuy dund jamono ji ci ay mbindam fan la ñu war a wéeru fan la ñu war a mën a jàpp ci lan la ñu war a mën a doxee ngir mën a mucc ci balaa bi nga xam ne moom moo di coronavirus xam nga sëñ Saar sëñ Tuubaa mooy solution taam mooy solution. sëñ Tuubaa mooy solution sëñ Ablaye. dëgg la. kooku même tubaab bi jàpp ne jàng ne sax sëñ bee ko gën a réaliser xoolal seen patrimoine yi leen fi bàyyi ay gaar ak tabax yu yàqook nangam xoolal li mu defar dëkk boobu septo kantoog ma sa nekk baa nga fay taxaw di xare sëñ tubaab def na fa seex jumaa dafa jol daara yoxlaan di riir ñuy wuyoo santu ka fa ne te tubaab ba fa nekkoon amu fa mandarga kon mooy loolu moom da ca élimine ci biir mbindam nag mbindam sëñ bi xam nga sëñ Tuubaa mbindam dafa wuuteeg mbindi mbindi mbindi yu bari lu tax. Mhm. kitaabat yi. min lawxi rabbi tanxalu laa yamtari fiha nabilun yanqalu sëñ Tuubaa ne sama mbindi ca lawxul mahfuus lay toxoo sa mbootum xalimaay booti lawxul mahfuus borom kundi la gàggante mbàkke yaa fees loolu la ko Seex Musaa Ka wax. Mhm. ida katabtu intaza arsul baaqi wa sabaxat malaayikatu tibaqi saa bu sëppee xalima gi cax bëgg a bind aras da jaay ida katabtu ibtasamal jamilu wan xaada fii tii xidma tamilu saa yu may bind bu ma sëppee xalima gi rasulullah danaan kàng muuñ mattee xaratu aw katabtu ibtasama xayru wara wa durri xosima saa yu ma sëppee rasulullah ree bu may jàng baa may bind samay lor daw daw soli haraba min shi'ri iblisul marid bi qasaidi yahtadil murid sëñ Tuubaa nee na iblis moom daw na soli sama mbind sama mbind ci lay jube ba muy ñaan anta rahimu samadu rahmanu almuminul muhayminul manaanu ikfil bala wa jumlatul wabai wa sox ila al aadaayi kulla daayi macha allah xoola kim kañ anta rahimu assamadu arrahmanu almuminul muhaymin almanaanu mhm. ku kañ ko ci turam yi sell yooyu na ko ikfil bala dañar lool yi wal wabaa ak musiba yeeg wopp yeeg tawat yi wasuq ilal aada yi kula daa noonu lislaam yi bañ diine tu di ko daaneel lool wu jóg la jëm ci ñoom xoola xasi dëg mat la bu shifa yi day faj faj yaramu sayir di faj tawat joj biir muy xol bu yàqu mbindam lépp la réglé ni nit di dundee ci àdduna mm-hmm. ni nit mën a nekkee ak ñoñam ni nit nekkee digganteem ak boroomam ni nit mën a nekkee ci digganteem ak ay ay dëkkandiinam loo jàpp ne nit war na koo bind sëñ Tuubaa bind na wax loola ba noppi waxuma la balaa buy ñëw waaye sëñ bi danaan ñaan balaa dem waaye balaa danaan ñëw mu encaissel ko boppam moom ba natt jógaa ba jëm ci njaboot mu dër dër loo ko ngir gëm boroomam te it mësta tawat jàmbat mësta tawat moom mësu koo jàmbat sëñ Moussa Ka du wopp ba tax mu ñëg jaamu yàlla am du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàlla am lu tiis tiis mbir lu dëgër dëgër lu tiis tiis du aar boroomam maanaam mbir mënta metti ci sëñ Tuubaa xaloon sëñ Tuubaa dund na juróom ñaar fukki ak juróom mësta tiim mësta faat waxtu it mësta dégg ab noddu ba kabbar te teewul lu liw liw lu taw taw tey boroomam lu ma mas a jàpp bu diggéeb kàbbar mu jóg am na bis ci gànnaar sëñ Maxtar Penda Jeng nettali na ko mooy maam yi suñu Cheikh Fall Mbawor sëñ bi dafa tawat ba mënta jóg mag ñi yërëm ko ba ne bu ñuy julleeti nañ ko ko bu noddatee nañ ko ko nëbbu taw jiital ku ñuy wax Sidi Abdullah waaye Sidi Abdul sëñ Maxtar nee na bu ñu noddee ci jàkka ji lu gaaw gaaw gaaw danañ fekk sëñ Tuubaa bërbëri te bu bëggee jóg day ñog-ñog yi ngir tawat ji dis dina ci yaram waaye day bërbëri di bërbëri ba ne ñokket jiitu leen ci jàkka ji mujj mu ne sëñ Maxtar Penda bokk na ci tawfiix ji ma yàlla defal bu tawat ji wa bu tawat ji waxtu julli jotee bu tawat ji doon téeméer yàlla da koy tegg jox ma kattan waxamaale ñaar fukki at ak juróom waaye bu waxtu bi jàllee nag bu doon téeméer da cee dolli téeméer muy ñaar téeméer day gën a diis ci moom lu ñëw day gën a diis mu gën koo gàddu melo woowu loola tax buy buy buy jël xalimaam di bind ci melo yu bind yi muy bind ak ni muy bindee ak jamono yi mu koy binde defe naa ñii mën a gëstu te mën a xam dañee gun baa ñu dé baa ñu gis ku bind lu toll ni Cheikh Amadou Bamba bind gis nga par hmm? par loo baaxul par par loo baaxul maam Samba Diarra Mbaye ne borom asamaan jox na ko lam doon laaj wallaay maam Samba Diarra Mbaye borom asamaan jox na ko lam doon laaj digganteem ak jéggal ñoñ ñooñ gaa yi Bamba joxeef na ko lool monsieur fu ko jox seex yi jëkk joxeef na ko lool joxeefu ko kenn ku du Bamba wujjee ko am ne moom wu jëm ji jii tey jamono Cheikh Bamba sëñ Moussa sëñ Mame Samba Diarra may ne wujjeekaam ne moom kenn du wu jëm jamono jii jamono Cheikh Bamba wujjeekaam ne moom kenn du wu jëm jamono jii jamono Cheikh Bamba hmm, jamono Cheikh Bamba <laughs> wëral fu la neex demal ci koo xam ku bind lu toll ni li daam bind amut bind ko fu mu ko bindee amut eh. bind ko ni ko bindee amul koo eh. ci xam waxal xanaa looloo tax waykat bi ne réew mi Bamba ko moom bi baam mooy loolu gone yi wayant ah. gis nga bañ koy wax yaa moom réew mi eh. fukki at ak la am bañ naan ko ciment seex ah. waaw papa euh, euh, sëñ Gana dafa toll fu neex wallaay ndeysaan ci waxi Seex Samba Diarra ko bëggoon a laaj ci Sëriñ Tuubaa ak jaamu yàlla ak Sëriñ Tuubaa mm-hmm. ak xasida yi mm-hmm. Sëriñ Tuubaa fii nu toll tambe ak jaamu yàlla ak mbindum xasidaam yi mësta tiim kay bay mësta faat waxtu yi ko leew da koo jaay ci suñ gis ko du toxandiku du toxañu du wokkatu du geestu amul poos du tëdd ci lal dëkk bu mu sanc bu mu moomal boobu bu nekk néegub yàlla baa dàq néeg yi la ilaha illallah ba muy am juróom-ñaareel la tàmbali dina fi le kay bay yaqumu layaali raaki an baxda sawmihi yusalli imaaman bi ma laa fi la sëñ mu lay bu sa wax bu guddee ba nit ñi nelaw sëñ Tuubaa ngi naafila bu bëccëgee ma ngay woor ba noppi di jiite mbooloo yi lu mu xat-xat kat mooy jiite te mooy yanu bagage yeeg coono yeeg yëf yi lu mu di mooma fa kam min layaalin baataal xaw su taaliya ala suwari taltil wal kaw naimu kadaka ayaamun chaqana chaqaati nelaw di këri ci kees bu ma saa génn bu guddee ba nit ñi nelaw muy kër kër yi ci kees yi njëriñ bu jubee néeg soxna fa jaxate foofu ci wanag yi ñu tàmbali tàmbali toppale kuur yi ak toppale gën yi muy tafar tafari ak njaxlaf ga bu ak seen na dër dër der bi sànni kàbbar ñaar rakk ñaar rakkaam ñu ne 45 minutes lay diire bàqara lay jàng alhamdulilah wuraat feneen di riir sëñ Tuubaa jaamu yàlla béréb dane abudu rabbiya bi xayri sunnani ba'dal faraidi wa yu'li minani sëñ Tuubaa nee na damay jaamu yàlla ci farata moo noppi sunna laa cay teg sëriñ Tuubaa ci jaamu yàlla boromam subhaanahu wa taala waxtoom yu nekk yàlla la ko jox boo demee ci mbindum Serigne Cheikh Thioro mi nga xam ne doomi Serigne moo Anta Sali la nekk ca Ndar bokk ak Serigne Balla Thioro lépp dafa wax ne Serigne tubaa lan moo di meloom wala si kulli waxtin fi ibadati man xabaahu jëhëran bi fatin kulla matadaja waxtu mu nekk jaamu yàlla rek lay def moom Cheikhul Khadim jaamu yàlla googu muy jaamu borom moom subhanahu wa taala looloo tax lu mbir mas a ñëw kawam dëgër ak mbir mett ci moom du mën a sa koo gàllankooru xoolal booy tudd parcours sëñ Touba di nett liy jaar-jaaram foo ne sëñ Touba nangam julli ga ngay wax yor yorom bu dëgër ba mu dajeeg nasaraan ba ci jeewal lam jëkk def sànni dërëm julli ñaar ak sëñ tubaab xammewul mbakke bari gi mu jógee ak xuru jeewal wii nga xam ne tubaab yaa ngi ko wër xarajta fii sabti fii shahira bi duha bi jay sasin wala jeewal ji talay salin mel ni ngay bëngeen ñu taxaw la xaar boole ko mere la nga sànni sa der xam ne yàlla buur na allah la ilaha illallah kere ba mu taxawee bi ne góor nóorit daa sànni rakka ñaari rakka wax ne hadamtu bil ilahi bu nit tafira wala ulaaxi abadan man kafara nee na mboolem tabaxi di yàlla yi ak fenn yeeg nar yi màbb naa ko mën sëñ ba hadamtu bil illaahi bunyatal fira wala ulaaxi abada man kafara nga xam ne lépp loo xam ne ay neen la ay caaxaan la màbb naa ko waaye lépp loo xam ne caaxaan la màbb naa ko ci xul xuwalaaw ahad wéetal yàlla boromam moo tax lu béréb xat-xat fi moom yàlla lay jëkk xalam kere bi ñu ko indee ci ndakaaru gii tàbbal ko ci néegam bu lëndëm boobu ay xott bi téere ki ràbb di ko jam téewul daa kabar sëñ Moussa Ka nee na mënta sujjóot ngir tartar biy tànkam di riixeeg deret it mi ngi kàbbati xalam boroomam di jàng baqara al imrana yàlla yónni jibril na xolo xol bi bu fekkee loxo na ci rab yi koy jàmm alako nee na bi muy def ñu star jax laa def ñett la fekk sama xol as sabru wa shukru wa rida yàlla jërëjëf gërëm naa loo ma teg neex na ma salaatu si tax bi maxati si tax tagg ci rasulullah <laughs> moo waral jaamu yàlla waral mu sànni der ba ci mbéex ma kàbbar julli ay bay loolu laa bëggoon a dégg faxaaba waxiidan fil buxuuri mu waxiida moom dong nga dëgg la amul ku ko wettili dëgg it Ablaye Salim al-Hanbali nee na ah. garibun lanaa jundin ida dëgg it silaahuhu midaadun wa axlaaqun turayisu bi shukri ba muy dem xalima la yor ak daa kenn gungewul sëñ Tuba andu la kenn tàbb ci seen biir waxtu julli jot ñi di ko xoqatal ak di ko napp ak di ko jéem a noggatu ak xalaat ne moom kat ñemewul géej wala yàlla te sëñ Tuba xam ne ne fooy nekk yàlla man zanna ana xayra laa yuxni aw yadur fa saaka fi daarayni su kaddin wa dur sëñ Tuubaa nee na ku jort ne kenn dana lor ku dul yàlla waaye xamoo yàlla moo tax bañ ko ñaq-ñaqalee mu njàpp-njàpp mu senn taxaw ci buntu bato bi yow daram dama ne jaamu yàlla bokk yi julli ci avion julli ci piscine ak julli ciy dex ak julli ciy kër a fuur ak mën a julleeg mais mbiix mi bamba dong mbiix mi bamba dong dëgg la doon nett li xese banab yonente sàngama ci julli doon nett li ci julli xëttal jàll jaaral fu la neex waaye waxtu julli jot jëf dana rëy lu tax ba nga ko jëfe jëf dana rëy lu tax la ko jëfe sa siñ mu lay da ko bind de wa fil yemmi sallal asra yajri bi jildihi ma al fulki yabdu raakian xayra saajidi der bi lang ak gaal gi bato bi daw der bi topp ci ahmadu ca péeru nee na tàmbali nuur yàlla gëdd géej gi na ko jàmm ba ngërëmale sa kaw mel na lu doj gi na teg bu la allahu Ah, bokk yi loolu rek doyoon na boo amul wax ci moom waxal loolu moo tax benn naa nee na xawaari ku yàg fika min haaru juwoogu ala xayra xaalin baax damaa rakibal baxra sëñ bi jaamu yàlla kenn kër jaamu yàlla sa dëkk waaye jaamu yàlla ba sabar sab der ci géej allahu akbar te sëñ Mbàkke Buso nee na ko loo ci jublu mu ne jaamu yàlla rek ah, sëñ Mbàkke Buso dana julli géej gi ci luñ koy boole mu ne jaamu yàlla rek ci xar baaxee mu ne déedéet jaamu yàlla yàlla képp laa ci loolu dee ko natt foo ko mës a kuy nettali ba ak si fi da nga ko tëb ab doo daan la ku dul sëñ Tuubaa defoo leer na xasida yi nag léegi sëriñ Muntaxa gi ma nga ci wetu sëriñ bi léegi dafa ma woo ni ma na ngeen na na ngeen xam ni Tuubaa yépp a ngi jàkkaarloog yéen ñu ngi lay déglu diggante sëñ Bamba ak lislaam leer na sëñ Bamba ak xasida yi xasida yi sëñ Ablaay mooy karaamaam xattu yedd yi mooy karaamam ah, hmm. hmm. ah. hmm. xaside yi moo tax sëñ Moussa Ka ne arab duutu way ngir moom te luumal na koy xajab béréb xër nu jébbal nañ sëriñ Bamba moom Tuuba wallaay weneen loo arab yi la def moo tax benn naa ne ko ay yaxelu làkk dul mal arabi benn da koy xool ba arab yi nag <laughs> yow nampoo benn naar la ne ko yow ndax da tooñ arab yi nag yow nampoo arab ba noppi gën koo dégg te ni muy wayee daa wuutee ni gaa ñuy wayee ndax xidmaam la wallaay juróom benn weer yii bu teroo day tagg juróom benn weer yii day julli waaye xool da ci am ba bu leen salaatu sitta fii matti sitta taati hibata maatu shay na ma ibadu rabbi la sharika lahu da cee boole dama lay tagg di julli ci yow di la roy ne foo teg ma teg bu tam xarit sosoo mu ne ma def tu xayral xal min al muharrabi ila intisaafi al aami saa takarum tamxarit ba juróom-benn yi wari mat xasida gumbin day tagg rasulullah kasu rajab ñëw mu ne lahu salaati wa salaami min rajab la xal misil xajjati ni'mal muntajab xasida gumbindaat di julli ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam te dàqa waay ñëpp nag ni mu leen di tagge xasida koo jël ci moom mu ciy misaal yonent bi sallallahu alayhi wasallam di la ko taggal di la wax la rasul lay doon ak la ko yàlla jox cër ba mu am benn par benn la ko yox bu koy tagg ci xalimaam lay tàmbalee ci xirtaasa mu di kayitam ñëw ci xel mi koy xalam ñëw ci xam-xam bi koy bind te nee na saa yu ma sëppee xalima gi di tagg rasulullahi loo ma teg ci coono lu metti metti lu ma nasaraan bi teg lu mu dëgër dëgër dëgër yëg ki ma yëg ne rasulullahi ngi bëgg mooy fàttaloo li ma dal bu may tagg ñu may sotti bi teex du ma ko yëg bu may tagg ñu may jami xeej du ma ko yëg daxaa bi daay di xadaa xaaji li xidmati man tabshiruhu daral alay ansana saa yu xalima gi daw fàtte na loolu moo tax bin jàng nañ xasida sëñ Mahmoud Fall ci njaareem yëkkati ko Sidi Birahim borom daaru moxti tuur ay xéewal sëñ Tuubaa na ko carno mu ne ko mbakk mu ne ko neexatu baatu kiy jàng wala dégg na way arab yi li muy jàng moo la daaneel mu ne tekk mu ne ko wax jii ne fañ ko doon waxee kun fa yóbbu woon ku du sawaa ji doon ko naan am na lu muy wax lu ko fa jëlee lay doon waaye du mel nii ah, godd yi di la sam yóor di la sam yiy mat li mat doo daxas doo faxas sa xalima di daw da nga daqa way ñëpp bu taggee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muhammadun man xaabu wa man xadaru wa xayru aatin hasa bidayatuhu mahasahu kurama inda nihayati ma misl lahu basharu sëñ Tuubaa nee na moo gën ñu wéy gën ñi fi ne rasulullahi ku war a ñëw ëllëg rasulullahi la gën lim lamboo la gaayee jeexale fa la tàmbalee moom rasulullahi bu koy tagg dana damay jël juróom benn bu ma koy tagg xasida yii day doon bor yii doon addiye yii du doon bor du doon addiye coobareewu la at mu ne warlu naam ala man alayya walastu sadiyeex lahu kulla aamin hadaaya madiyeex lil mustafa al karimi fi kulli sana alay am daahun tara mustahsana yamini alayha day nu xat xawarida bi xidmati xilli dil madina sahadi amee naa borub tagg rasulullahi salaa sallam sama ndey joor te buy tagg rasulullahi dala koy won point par point benn par benn di la wax ki mu doon Muhammadu rasulullahi salaa sallam wax la ki mu doon ci dayo tagg ko ak di ko bànneexoo ak di ko yëg tagg gi mu tagg rasulullahi salaa sallam daa daa xaside yi tagg gi muy tagg yonente bi daana ko wax moom ba noppi fàtte na moo ko waxoon parce que naa toog njëriñ dégg ñu ne salli ala man lay ala lay sa faaw mu ne bëri na ko wax loolu ñu ne ko mbàkke yow mu ne noonu la dañ ma ciy jiitu mu bëgg a jaajuwaat dañ ma ciy jiitu ma bëgg a jaajuwaat xool bu dee bi xoola xaside gu mel ni mabaahibu naafiya xoola xaside gu mel ni jësbul xulub xoola gu mel ni muxaddamatul amdaax xoolal ra yi xoolal nangam xaside yooyu buy tagg yonente bi alayhi salatu salaam ca benn benn araf ñi dàq jàng mënuñoo firi mënuñoo corriger benn virgule sëñ Tuubaa fa fii kulli baytin min nidaamika ibra biha yaxuru aarif almutabassir séddale xasida yi yi nekk xasida yoo xam ne bi koy bind da koy tënk ci alquran ayatul quran xoola aaya alquran yi nu mu toll def na koy xasida mu xayir bi huwa fi bi ayatul quran yi nga xam ne yii aaya yi la yii turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay jël yii day jël saxaaba yi yii day jël nangam lu ci nekk mu di ko bind ba noppi te biir bind gi mu koy bind bànneexoo gi mu koy bànneexoo moom ci boppam noonu lu ko rasulullahi di bànneexoo addahaka rabbi rasulullahi bi xatti muxsi adallah sëñ Tuubaa nee na saa yu ma sëppee yàllaa nay pëkk rasulullahi ne ko sa waaja tàmbali na yàllaay reetaan loo rasulullahi ci mbind mi bind ma addahaka rabbi rasulullahi bi xatti muxsi adallah mais mais mais loolu mais loolu euh, euh, ban ban ban ban jeexedit benn jeexedit lay def ci doomi aadama bi nga xam ne day jàng xasida sëriñ Tuubaa yi ndax ci biir wax maa ngi dégg ngay wax naan wax joo xam ne dafay mel ne ca ifaadatika min ka ilayka ihaatati mu mutalsam leer la boo xam ni buy bawoo ci buy bawoo ci yow di del dem ci rasulillahi di dikkaat ci yow eh, ki nga xam ne dafay jàng xasida sëriñ Tuubaa lan mooy njeexitalam yu safi fu aadan aarahul ada waydu sada wa salaamu tamoo mooy dynamo bi nga xam ne bu yàqoo dara du dox lay defar muy xol xasida xol lay defar déedéet dynamo bi nga xam ne bu taxawee lépp paan yu safi fu aadan da koy daas xol bu gàkk xol bu tilim xol bu gumba la xasida yi defar ba mu jag jeexintal bi muy jur ci nit ki mooy loolu te xoolal tuwasilu aqlaami ila llahi aabidan bila xalwatin wallahu abu gaakama agna xasida day yéegi jaam ba yóbbu ko ci boroomam te du dugg xalwa xiraatu majjun wa nuurun wa rifatun wa jalbu mun a daari neexma zawaidu wallaahi maa sha Allah jàng gi mooy tedd nga mooy yëkkatiku mooy gën gi yóbbal moom xasida kitaabati dikrun wa shukrun wa sadaat allahu arshada xilaabi wal midaad maanaam xasida leer la xasida day jubbanti nit xasida day defar nit xasida day jagal nit jeexintal yooyu lay def xasida di faaxal xasaidal kiram wali taqulu abadan xayra malam jasabalil xat maqamati rijal wali tawasir rijal wal majal nee na maqaamay góor yàlla yi sama mbind mi mooma ko womatal mooy xasida yi ta xañ naa yoonu góor yàlla yi waxtu ma jógee soobu yoonu rasulaay tawaytu tariqal xaw waxtamti daa ihi wali xat xat lahajati bi rawdi wal basti moo tax mu raw ci kaa bokk asaan وفي مدح جاوز سكعبر وحزانا رضيت عن الباقي وعن خير خلقه وفي مدح جاوز سكعبر وحزانا te gis nga am ndax yooyu li tax Sëñ Tuubaa doy waar yéen gëstukat yi xam ngeen ko ñuy wax Yusuf ibn Ismaïl an-Nabahani mhm. moo taalif jaami karamatul awliya ma nga nekkoon ci dëkk bu ñuy wax Liban ku mënoon na tagg yonent bi la ku déggoo woon ak Rasulullah la fekkee woon jamono Sëñ Tuubaa la bokkal jamono masa sëpp xalima gi ci daaji yonent bi jox ko loxo ngir bég ci moom ba mu defee xalwa dafa laajal boppam moo an-Nabahani na yoon na yàlla suñu borom ndax am na ku tagg rasulullaay lu toll ne li ma ko tagg booba sëñ bee ngi ci géej gi nee na yonent bee ne ko ka ñuy wax ahmadou bamba kenn jotul asakaam waaye la gën a doy waar mooy boo demee ci karabu cheikh ahmadou miski bi sëñ bi jógee ci géej gi na ba baxani nekk ca liban sëñ tubaa nekk ca njaareem dafa am jafe-jafey xaalis yàlla ubbil kii laa yi sëñ tubaa mu yónnee ko xaalis bu bari mu faj yitteem ba noppi tagg sëñ tubaa nag xaw a njaareemu علوما للإله فضلا لا يمون فضل خير ممنون هو القديم الذي لولاه ما سجدت على الجباه ولم تقر به النون إنما رأى فاد المختار من مضر وفاد خالد المختار مقبول nee na njaareem làmmoon a xam-xam ak ngëneelul yàlla ka fa njaareem bu dul ak moom sajaada du am gënug jë te kenn du jàng alxuraan ka fa njaareem bu la rasul ay rawee nga xoole ba muy de jeex nga dara ñeel wagoon ko sa micro dugun yow tooñoo borom tooñoo morom. dëgg ci ni tooñe xarnu bi. bisimilah rahmaani rahiim jàmm. woy borom Touba. waaw waaw. borom Touba yóbbu nu jànnatul wala mooy kër ga amul tiis ak balaa. la ilaha illallah. te boole nag ku laal balaa mu wan nu ngeen ji yar ma ne. Serigne Touba. yaa fekk waajur dara jaay nga ful ko booloo ci jaay dëgg la ni doomi maam say ndabu njaay lamp bi woon ci xarnu bi Amadou Fall sayar njaay biram jigéen nga ca ngaay gur bàyyu lalla faal maami Cheikh Modou Fallu Fall Serigne Touba yow lañu ñu def ngay sunu baay eh. di sunu yaay di sunu waay di sunu bitig nu jëla jaay sara nu ngën yi yërmande mm. tu Bamba ka buñ te ne yi Tuuba ñii soriwul. ñu def ko Mbàkke tey jubal pas-pas yi ngir sa yërmande Cheikh Samba Diarra Mbay ne. waaw waaw. Cheikh Mbay ne ku faatu yaa fay njëkk teew. dëggin. bu koy julee. nga defa teew ñuy rom nga ànd ak ñoom di teew ñu dem nga des tontu layam. Hmm. Cheikh Samba Diarra Mbaye nee na mm. ku faatu yaa fay mun koy julee nga di fa teew ñuy rom ndeysaan nga ànd ñoom di teewaay ñu dem nga des sontu layam ni Samba Diarra Mbaye mm. Samba Diarra Mbaye Cheikh Samba ku faatu yaa fay jëkk teew bun koy ñëwee nga fa teewoo ñuy rob nga ànd ñoom di teew ñu dem nga dee sontu la yemoo Cheikh foofu bi Cheikh Samba Diarra waxee loolu Serigne ah. Touba daf ko ni wool sëñ Malick Ndiaye ñu yéene njaarim daje Baye Malick Ndiaye taxaw koñ bu ne mu ni muritoo ki lay digal nee borom tey ëllëg ne yéen ñëpp ngeen wusi ko ma ne mañ mañ mañ ni këpp mu joxal bi Samba Diarra ni ko wax li nga waxoon mu ni bakkan bu tàggoo di waaj a jeex ci ki gàllaaj bisu keroog yàlla sa barke maa la ah. saafara dañu kii gàllaaj Samba Diarra Mbaye nee buru di xarxare ka waaj saafara dañ ak galaaj soppe bay yow rek lañ fa laaj yàlla sa barke maa la man seddu naa ku fàdduwul man fàddu naa ba ma lu weesu naa danaa yàlla sa barke maa ñu daagu jëm daaru daaru salaam daaru salaam daaru salaam di xëy di jokkantey salaam ñu daabu jëm daaru salaam di xëy di jokkantey salaam fu ne nu teyaale salaam yàlla sa barke maa la gëm ñoo ngi taxaw fi sa gannaaw Bamba jublu la wal ñeneen gannaaw foo mën a jëm yóbbu nu gaaw yàlla sa barke maa la gëm. dañuy jox euh, Alima tamit am na benn question bu mu bëggoon poser. donc mhm. bàyyi la nga nga wëyal. na ne jërëjëf. Mhm. Euh, di rafetlu bu baax xam-xamum bi nga xam ne ni gànn génne na ko fi ñu dellu si waat rek. Euh, ci njàngaleem ku tedd kii Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, dañu toll ci jamono boo xamee àdduna bi réew yëpp ku ci nekk yaa ngi yootu yokkute ak lu la jëmale kanam ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wax ne sàkku xam-xam jar na dem ba Chine te seet ne réew yi avancé yëpp yi jiitu yëpp la tax ñu jiitu mooy xam-xam ak liggéey loolu bu ñu xoolee ci sunu kanam rek ci sunu xalifa bu tedd bi di Cheikh Mouhamadul Mour euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha nga gis euh, projet bi mu taxawal di université bu mag bi yaakaar naa ne kooku bàyyi na xel li sëñ Touba wax ci xam-xam bu ñu seetee itam réew yi nga xam ne nii tey jii ñoom ñëpp ñooy jiitu. lu ci mel ni Chine nga xam ne ci at yi ñu weesu bokkoon na ci réew yi gën a ndóol te tey mu bokk ci réew yi gën a euh, ñoŋ la leen ko may mooy liggéey xam-xam nag ak liggéey bokk ci kenoy yoonu murit sëriñ Touba am nu mu nu munu ko jàngale ñu bëggoon nga ñëwal ñu rek ci njàngalem sëriñ Touba boobu ci xam-xam ak liggéey ndax yaakaar naa ne hmm? lépp loo xam ne nii ñu ngi ko sukkandi ci xam-xam ak liggéey rek ñu tedd fii ñu nekk muy àdduna te sunu àllaaxira itam mun nañ cee rafet njort bu baax a baax. waaw jërëjëf sëñ loolu mooy li ma waxoon ne principe yi mu soso yoon wi ci loolu jërëjëf bokk xam-xam jaamu yàlla ak ay teggin rafet. Mhm. xam euh, sëriñ bi daf ñu ko digal. wasaytukum yaa sa tulaabi bi talabil ilmi ma al bi maa ngi leen di dénk yéen taalibe yi ci sàkku xam-xam boole kook ay teggin mhm. mu ne lu tax mu ne xam-xam mooy li nga xam ne bu ko cem si xësee làmboo fu dem ñu teral ko ci moom xam-xam mooy li nga xam ne it ñiy gën ci la ñuy gënantee waxala bi anama tafawutu wara bi nga ba diini yàkkuru fas bira Sëñ Tuubaa nee nag kaweeg nit ñi ëppalantee daraja yi mi ngi ci xam-xam ak diine moo tax moom ba muy door a jóg dégg nga la mu wax war a suraadiya xayran alim wa diin lu dul diine doo xam-xam awma ci yitte mhm. xam-xam boobu nag mooy continuer ndax Sëñ Tuubaa xam-xam ci la yar ñoñam ci la tàggat ay taalibeem mag ñi nga xam ne ñoo ko toppoon ñépp kenn ku ci nekk boroom xam-xam nga ndax xam-xam daf noo jàngal xam-xam yu nit ki war a jëkkee ba noppi mhm. mooy xam-xam boo xam dalay xamal sa pas sa pas-pas yi diine xamal la sa diggante sa boroom xam muy tawxiid xamal la maanaa yi xamal la alquran boo noppee nag yeneen xam-xam yi am njariñ ndax bépp xam-xam buy tax nit mën a jariñu l'islam day nangu nga mën koo mën koo jëfandikoo hmm. moo tax ci biir yoon wi da nga fi fekk ku mën a doon président de la république manub imam man xaadi ba noppi dib sëriñ yoonu murid da nga fekk koo xam ne jàng na lu tax mën a jiiteem réew ba noppi jàng lu tax mu man imam te makka jàng lu tax mën a nekk mufti boo xam ne day atte loo ko laaj ci masalam diine mu wax la ko doon sëriñ bi mën a jiite xam na muy wommate ba noppi toogee ci kanam kilifaam yépp réer si mi mbaxanaam toog du yëg dara ca loola te loolu li nga koy xamee mooy ba yoonu murid sosoo ba léegi mm-hmm. ci xam-xam bi muy dox ba ko tàmbalee ci bi ñuy taxawal procès jumaay Tuuba wala nga tàmbalee ko ci jumaay ndax jumaay njëre moo jiitu jumaay jumaay jumaay Tuuba Cheikh Issa mi nga xam ne moom lañ jëloon liggéey bi teg ko ci loxoom daana wax ne li ma xam ci tabax xam ko ci alxuraan dana fuus ndax kenn du ma ko laaj am xam-xamam ci alxuraan ak tabax kenn du ko laaj xoolal yooyu jamono boobu ni mel ni murit yi taxawee ci lool fi ne pàkk boobu ñu teg jumaay njëreem ji Cheikh jënd ko jënd ci ñeent fukki dërëmi ngor nga xam ne li ko benn way ko doon tàgg bi mu koy wax na ko xat ostaxel man waxul man su ma maarifatan yow am nga xam nga te daawoo jayoo ko jayu xam-xama tax ñu mën a taxaw loolu réalisme xam a tax tey mhm. bi ñu waree taxawal jumaay Touba ñu mën a fexe ba jële ab raay ca njëreem te defe naa ab raay moom bu nit ku ñuul ma sa taxawal ah bariwul raay bu nit ku ñuul ma sa taxawal raay bu fi ma sa jóg jëm cib dëkk ngir transport ba nit ña mën a nang waaye raay ngir jaamu yàlla sëñ Touba rek ko ma sa def wallaay macha allah. Cheikh <laughs> Moustapha. <laughs> diggante lankantong mayaar ba Touba Cheikh Moustapha. yaa jëkk a taxawal yoonu saxaar ci nit ku ñuul balay sa. diggante lankantong mayaar ba Touba yaa jëkk a taxawal yoonu saxaar ci nit ku ñuul. diggante lankantak mbaar ba tuuba Seex Mustafaa yaa jëkk a taxawal nu saa ci nit ku ba tuuba yaa jëkk taxawal yoonu saxaar ci nit ku ñuul diggante lankantak kon loolu xam-xam ak liggéey ko waral ndax benn financement fi ne yoonu murit mosuñu taxawal lenn lu am aide extérieure bu bàyyi ko fenn jëm si ñoom mosoo dégg ñuy ubbi jumaa ba ne ñoo ngi sant xatar wala menn réew ngir financement ba ñu yónnee ñaar dërëm juróom ñaar fukk ak juróom dajalee téeméer ak junni ba defal sëñ Tuubaa li mu bëgg lu fi taxaw rek looloo ko fi taxaw bu liggéey amutoon du sotti jumaa ji fi mujj barki dem mu vingt milliards la ne sëñ ci Ndakaaru kenn ko ne mën caa teg bëtam te comité bi ko taxawal mën nañoo doon mbooloo mu waaye nungoo jëf te am xam-xam te nungoo liggéey leen ko may mu yoon ma nga tàmbalee ca loola ma la wax taxawal jumaay Touba ñaata milliards ko la kii ci jamono bu jafe ba sëñ Touba di laaj ñaar fukk juróom-ñett ba def njéeréem ñuy laaj jumaay Touba taxawal ko bu xam-xam amutoon nañ lañ mën a def ba ba ba xam suuf si fu jumaa ji taxaw dëgg la xeer ba nekk ndox nuñ koy mën a xamee nu sëñ Moussa Mour Moussa amee expérience bu toll ni mën a jëflanteeg tubaab bi ba mën a jëlee raay bi njëriñam andi ko Touba ba noppi la ca war ca ña fay liggéey doon ko ne ay taalibeem la mu gàddul leen la war ca ñoom ci seen mbirum biir ak seen mbirum bi taxaw ko moo tax suñ Touba ne xam-xam ak jëfe xam-xam mooy ñaari yi gën ci maanaam di sakku àdduna ak alaxira yu yiw yépp ci lay bàyyi ko gis nga nit mënta dem saa xam-xam mënta dem ci lu dul xam-xam xam-xam moo tabax tey jii yoon wi ni toll ni mu mel li ko ŋànk ci xam-xam téye ko ñaata kuréel yi xam-xam nga fee gis bala ngaa xamoon dëgg-dëgg dimension bi xam-xam nañu defe naa it taxawal tey lu mel ni projet bii sëñ Mouhamadul Mountakha taxaw. 37 mm-hmm. milliards. defe naa 37 milliards ci université boo xam ne jàngaleel moo tax nga nga taxawal ko. Mm-hmm. te boo doon war ay daara fekk fa lu mat ñetti junniy daara wala lu ëpp ñetti junniy daara. yoo xam dañuy jàngale yar ay nit tàggat leen ci mel seen borom incha allah tey boo xooloon daayira mel ni rawdu rayaahin maa ngi si Amadou Badawi si Amadou Fadal defe naa adduna bépp xam nañ seen dimanche xam-xam hmm. am na bis boo xam si Amadou Badawi discours bu mu doon def mooy jamono bi la euh, euh, Lamine yàlla ko yàlla dolli ay leer tuddee bisam boobu Cheikh Sidi Moukhtar discours boobu mu defoon bi mu ko defee ba noppi rek ambassadeur Arabie Saoudite bi leen ko fexeel ba jox ma discours bi hmm. loolu wax si Amadou Badawi ndax yéemu ci ni wax ji ak xam-xam bi ci nekk nga xam ne boole ci ñoom ci biir moom moomu fi boo xam-xamam am na ko jiital na raw du rayaxiin bari xam ana lan la investir mhm. boo demee da ngay fekk mu defar hôpital tabax dispensaire ci ci alal ba boppam ba noppi créer ay société boole xam-xamam melo yooyu loolu lañ ci biir yoonu mu ne ay du waaw te du tee bu séenee kilifaam raam mm. fi ne boo toogal foofu dafa ne xamul dara macha maanaam jëmmi xam-xam moo ko tabax masala mu mën a doon defe naa menn masal tey benn concours xam-xam boo xam ne dana tàbbi ci biir dëkk boobee di Touba mhm. génnaat fa du am fu yoonu murid toll tey xam-xam ak liggéey ko fa yóbbu xam-xam ak liggéey mhm. boobu ak liggéey moo tax mhm. xoola tey xoola ci biir adduna bi oo ne teg dafa sëñ Touba bu xam-xam amutoon duñ ko taxawal ndax lii yéen boroomi xam-xam la waaye buñ amutoon liggéey ngir nangoo joxe seen àll ci yoon yàlla yi duñ ko mën a taxawal loolu moo tax foo wër ci àdduna bi fekk fa kër da nga dem dëkk yoo xam ne sax bu dee ci Afrique gii da nga fekk dëkk boo xam ne daanaka dana am juróom-ñaari kër wala fukki kër yoo xam ne yooyu Serigne Touba lay doon te kër gu ci nekk këru lislaam lay doon mm-hmm. li ci gën a yéeme mooy kër ga moom lislaam a koy moom la dëgg la kon dañuy boole liggéey boole jaamu yàlla loolu la leen Serigne Touba tàggatoon ndax Serigne Touba dafa waxoon ne ku la mënta jaamuloo yàlla mm-hmm. mënu laa tax a tàbbi àjjana ku la mënta tax a liggéey mënu laa tax a tedd tedd ngay àdduna liggéey àjjana yi ëllëg jaamu yàlla mm-hmm. liggéey boo moom sëñ bi da ko daan soññee mm-hmm. mas naa wax si Isa Jenn na ko Isa Jenn ba amul teel bi bu dul liggéey mu ne ko déedéet mu ne ko boo ko amee wàcc ko ku dul liggéey neexut a dimbale mm-hmm. ku dul liggéey neexut a dimbale yoon wi yoonu liggéey la boo gisee du ñu noppalu engagement yi lu ñëw procès bu ñëw dal beneen dem beneen ñëw te lu ñëw sotti nangoo liggéey moo koy waral te li gën a yéeme ci ñoom li ñuy liggéey mooy duñ ko xool te it li ngay xamee ne jaamu yàlla xam bee koy waral mooy li ñu ci milliard ci yàlla gis ko feneen dana jafe boo nee juma ay milliards nga cay def maanaam amul lu yoonu murid di taxawal ñu ne immeuble bee dañ koy loué wala yoonu murid moo taxawal fi intrant nangam da cee génn lépp lu ñu liggéey ci yàlla la jëm weesuwul jàkka weesuwul juma weesuwul daara weesuwul fajukaay weesuwul dimbale nit ñi taxawu leen sàmm leen ngir mën leen a jàppale macha allah loolu defe naa xam-xam moo waral tey yoonu murid mën a egg tey yaa ngi koy gis léegi bu ñu mm. demee waxuma kuréel yi jiitu woon waaye kuréel bi mu ngi judd barki dem rek di di Touba kanam xoolal lu muy mën a amee dem ba taxawal say hôpital yi bopp mm. di di di waxuma di dimbale bu état nekkee ci mbir nga ànd ci ak moom ba ci xoolal tawat yi xew 45 mm. milliards boobu comité boobu boobu kuréel génne ko ay juróom benn wala juróom ñaari ci ay ba noppi bi ñu waxee université bi nga yëkkati cent millions joxe te lu koy waral mooy ne mu ne di joxe mille francs bu ñu amutoon boobu xam-xam fan la ñuy yeggee ko kon xam-xam moo sàmm loolu euh, loolu mu olofal ko mhm. mu olofal ko ni la ngay xalaat ci sa xel mhm. jaarle ko ci xalima xelli ko ci mu xëb mhm. xamal ko askan wi xam-xam lay doon xam-xam-xam le xam-xam-xam le woo xam-xam-xam te xam-xam boo xam lewul dafay mel na mbaam moo jël sef koy téere muy dox di dem kon di jariñu ah, waaye waaye sëñ euh, sëñ gànna dama bëggoon tamit nga dugal ñu tuuti ci euh, Serigne Bamba. Mhm. demam ba ca gànnaar. Mhm. ci suñu maami naar yu Mauritania. Mhm. la ko fa yóbbu woon ak ba mu fa demee na mu jëflanteeg ñoom ak nan la mu jëg ñoom ak lan la ko naar yi gànnaaree wax. waaw loolu mooy ñaareelu tukki bi mooy tukkib gànnaar bi dafa am sabab nee na tukkib géej gi ku koy jàppee tukkib gànnaar bi nee na ab dof nga. nee na tukki gànnaar moom ak pay rek la bi mu jógee mille neuf cent euh, la ñibbisi. 11 mm-hmm. novembre 1902 mm-hmm. la jóge ci tukki bi tubaab bi programmé ko bi mu wàccee Ndakaaru yàggu fi dem Ndar def desars yi wàcc béréb dëkk yim jaar ba ñëw Daaru Salaam bi mu ñëwee Daaru Salaam dafa am sababu ko tax a dem jóge Daaru Salaam ñëw Daarul ma Manaan mooy fii garage su nekk guy tàggoolu tuddoon sëñ bi ko tuddeelu Daarul Manaan këram moo lakkoon 1903 bi kër gi lakkee fekk denc na yi moom la doon yees la loo waat nag bañ ko liggéeyee ba noppi mu yónni euh, am Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Gaawaan ngir ñu wuti ay lal yu ñu def ci kër gi lal yooyee lañ gis nag jàpp ne ay fetal la yu sëñ Tuba yor pour andi ko lool it sëñ bi da ko tontu yaa jumlatan xad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidun axrajtumuni naatiqina bi annani udun ilahi wala nii la mujahidu wa zanantumu an al madafia indana wal kullu minkum du xilan wa yuhaasidu génne ngeen da ngeen a jort ne ay kanu fetal ca la buur siin kumba am doo fi amee bii ba may ko màggalu setin bursin ko mën doo fen looloo ko may sens <laughs> ndax moo seereel sëñ Tuba joxe mantom ca ndar dëgg la duutu falu joxe bakkanam ne duutu falu lu bokk ci moom duutu falu waaye Ahmadou Bamba bi moom préparé wul guerre te boobu dafa gis sëñ bi rek mën na ko bañ a xamal dara ba ko sëñ bi laajee loo ci jublu mu ne ngay ko baax rek ci la ko sëñ bi garanteel li mu ko garanteel na ko bus penc ba nga xam ne mboolem muy dëggale seen dëggal la jariñ danaa la ci kaw buur yépp moom buur sin ko mu dofet loolu la ko seereel loo ba mu fa jógee nag tubaab bi programme pour sëñ bi dem gànnaar gànnaar dañ ko boole ak Cheikh pour mu dem gànnaar gis sëñ bi ñëwee ndar sëñ tubaab moo bari jom da fekk ñuy yëkkati drapeau bi sëñ bi ne wane wane ginnaaw góor noonu ne Cheikh Sidiye na xool drapeau bi parce que lii nguurug France la dañu koy yëkkati pour buy jóg dañ ko war a xool sëñ bi ne ko ci charte de mu ne ko lu mu ne ko ne ko jàkk nguuru France daanu ba faw duutu jóg ñu ne ko baax na na xool fi ko neex te ñoom sikki sàkk wuñ ko ndax xam nañ ko ñoom ñaar. xam nañ ko moom. xam nañ ko moom. ànd nañoo moom. ànd bu ne dugg ah, gis nañ lu xam nañ ko moo tax la mu wax danañ xam li mu doon. ba mu demee gànnaar dañ ko yóbbu woon gannaar ngir jàpp na bu ñu demee. jëmmi sëñ bi ci boppam coono dana ko dal ca gànnaar wala teel yi dañu am complexe ci décroissé ci sëriñ bi waaye mu ak sant la am di wa shukri liman kulli bihi saara lahuurim duuna suxtin inda sarsaara lahu thanaai wa ridwaani bila saxatin musqaani min bani daymaana ansaara maa ngi sant yàlla di ko gërëm te du ma ŋàññi ba ma wommatee yóbbu ma sarsaar gànnaar gànnaar ñeenti at la fa sëñ Juba def ñeenti at da def gànnaar sarsaara bokk na ci béréb yi ci gën a siiw ak jareel muy biirul xayri ba ma nga xam fa lañ denc Muhammadul ibnul Budd ba mu nekkee gànnaar it naar yi dañoo bari xam-xam ba noppi di ay wàll yi ndax ardu saalihiina la ko suñ ci waa tudde suufus gaa yu baax yi maanaam gànnaar moom day day bërëb boo xam ne ay awliyaa la bari dafa ni mu baree ay boroomi xam-xam noonu la baree wal yu yàlla waaye ba fa daam nekkee ab diir ñoom ba ñuy jël seen xalima di ko tagg danga naan ñii moom li ñuy wax ñun ñii di ay taalibe te doon ay murit am na ci dimension yoo xam ne sax yëgguñu fa ngimewuñ koo wax te ñoom dañuy jël seen xalima di ko wax Serigne Touba tàmbalee ko Cheikh Sidiye Cheikh Sidiye dana Serigne Touba fa ruslu law lam takun bil Mustafa xutimat qul naa la anta rasulun waccahu taliq lakin lahu xasanaat kun na law xusimat yowmal jawaab bayna ahli kufri mahtarahu dane yow bu ñu demoon ba yowmal xiyaam dane ko yow Serigne Touba bu fekkoon ne yàlla waxut ne rasulullahi mujj ci yonent yi ak ni nga mel kon ab yonent nga daan na ko waaye sa baax gii ak sa njekk yii ak sa tedd nga gii bu ñu demoon ba yowmal xiyaamatu akbar ñu wasaare ko fa benn yéefar du lakk waxuma la julli lakin lahu xasanatin kun na law xusimat yow ma bay na ahli ko fi maxtaraxu Cheikh Sidiya Baba ko wax moo ko wax loolu am na ku ñu wax Abdourahman ibnu Asal al-Alabi dana alaa yaa ibadallaahi xuumu li tashhadu wala taktamu ma taalamuuna fa taatadu saaltukumu billahi man daa raaytumu ala al ardi mithla alcheyqi yarkahu yasjudu fa in qultumu ma in dara dahra mithlahu fa xawlukum xaqun wa illa tafannadu shahidtu bi anna cheikh ahmadu lam yakun siwahun karimun ala til ardi yujadu dana yéen jaami yi ne ku ne wax dëgg bu kenn bu la nga xam daan na wax leen te yàlla rek tax te wax dëgg waaw ndax mas ngeen a gis ku mel ni kaw suuf daan na boo leen ne am wax ngeen dëgg ku ne am na waxoo lu am daana seere naa ci yàlla ne li sëñ Tuubaa sama kaw suuf loolu loolu la wax ku ñuy wax ba euh, Tijaan bun Baban Ali wax ne haasal xadimu min alkamali ajaiba wa maqaamuhu fi uyunu taxaaru lam tasma al asma qattu bi misli wa shabi lam tubzar zaaru nee na sëñ Tuubaa làmmoon na ci yàlla loo xam ne ñëpp a gëlëm oustaz sëñ Tuubaa mooy hors série hmm? nee na nee na ma <laughs> <laughs> oustaz. mooy oustaz nga ni kuy jàngale. man man nag te yaa ngi jàngale. non non man nag man nag damaa bëgg sama taalibe leer ma rek. ah man saa yoo ko xamee ko la ko ma ca. alima maanaam boo xamee ku la sa bopp gu leer. dégg nga dugalaale man ba ma xamaale ko. jërëjëf sëñ Gana dama ne or siin or siin ñu weex ñi li ñu wax ku tedd ki moo gën a doy waar foofu li nit ñu ñu ñu wax yël ku tedd ki mais sëñ Touba. ñëpp la jommal. góor waay. sëñ Saliou sëñ Touba ñëpp la jommal benn naar dana ko jàkk mu sëriñ Touba ba yàgg mu ne ko fii ay ardin kunta yantabukal wara walaw xarfa ardi hindi wa siini wa turki ida kunta fi barrin atatka rikaabuhum wa in kunta fil bahar ataw alal fulki foo mën a nekk fekk la fa boo nekkoon ginnaaw siin ba Inde ba Turki dana ñëw bu dee ci géej gi ñu xuus mhm. war gaal bu dee ci jéeri jul tànku foo nekk ñu fekk la dëgg la macha allah. foo nekk ñu fekk la Cheikh Sidiya daa ma wax na xam nga naar yi sëñ Tuubaa da leen a jaxal Cheikh Sidiya xëy bis na suba nag boo leen ñëwee seen waa ji ma wax leen ayibam ñaar yëpp yàkkam ah Ahmadou Bamba ku sell kii ku baax lan mooy ayibam ban daje na toog mu ne wa maa aybuhu ila ibadi rabbihi wa nafxul wara fii masaayi wa subhi fi subhi wa masaayi daan na ayibi Bamba mii mooy jaamu yàlla ak jëriñ nit ñi suba yee ngoon macha allah kii daal ayib Cheikh Sidi nee na li ma xam ci moom ci ayib mooy jaamu yàlla ak jëriñ nit ñi suba gi suba yi ak ngoon yi moo tax baaba euh, am na ku ñuy wax baaba bun Mahmoud ad-Daymani baaba bun Mahmoud ad-Daymani dane ko cheikhul mashayir ala al umumi min hadisi minhum wa min xadimi dana ko sëriñ mënta ñàkk waaye sëriñ day am sëriñ yaay sëriñu sëriñ si al umumi nag dama ko généraliser min hadisin minhum wa min xadimi nag na ko ñëwee ak ñi fi ne moo tax sañ Moussa Ka dane ku tëkkale Bamba sëriñam dafay nar hmm? ku tëkkale Bamba ak dafay nar ne géej dafa nar gisee su ko mbar fa yéesi géejug ndar amul mbar gi ëmb fa moo tax mu ne nag ku tëkkale Bamba sëriñam dafay nar ne géej dafa ndar gisee su ko mbar fa yéesi xoola melo yi mu di jox aji di dimbalee dëkkaaleem du tooñ te ku tooñ mu jéggal ngir boroomam li may ko ko bañ di woo ko ko di neexal safoo ko ko soof ku dul koy mooy boroomam yi jikko ko ko am nit bañ na nga woo ñëw di ko neexal hmm. foofu tegaat naar naar yi dañuy tagg Sëriñ Tuubaa wenn mel dafa am ku ne xawsul wara ahmadul bakki waarisu as laa leen am lu mi jalliyaati xafiyaat man jaddada diin iskaadatu tamisuha alul hawa wa radiyatun sajiyaat xawsul war a baa ngi ni xaw la am na ko ñoom Abdallah Atamkali Abdallah Atamkali sañ Mouhamadou Lamine Diop dagal ne damaa toog ba yàgg sëñ Tuubaa na ma Mouhamadou Lamine man nga mbayiti Abdallah Atamkali ya nee ma ne ko déedéet Mbakke nee na mu waxal ma ko na ma bindal ma ko ma mokkal ko nee na sëñ bi ko bindal sëñ Mouhamadou Lamine Diop dagal ma ko bindal ma mokkal ko fa ala mil ala mil ila daari salaami wa tuuba ida xifta min raybi sama tuuba li tasfar min xawsi zamani li na li tasar min xaw si zamani bi nasaratin tanaalu biha usnama ay ba tuuba abdullah tam kali dane ay waay yow mi ne ci njàqare jaaxle jamono jàpp la nga ne ciy kër-kër ki jafe-jafe dellul Daaru Salaam ak Touba xaw si samaan baa nga fa koy biri bu ne la gelmat jakkaayu kaalaam nga bu la xoolee rek sa njàqare jeex adduna ak alaxir mais simi la bi jëw da nag na ma daal di xam ne kii day dëggal day dëggeelal xaw soom googu xaw soom googu muy wax baabul mahamado ma maa ni yëmu ko waman wal ashyaakha martabatan fa laysa yadri min ayna tukalul kataf ustal xisaala lesi tasmu rijaali biha lakinahu qad kaafal ilmu basar dana ko yow mbakki ku lay tëkkalee gaañu xamul fu muy taxaw moo leen melee gaañu baax yow yaa ko làmboo da ngaa féetewoo xam-xam ak tedd nga jommal ñëpp defe naa boo demee gànnaar mhm. bari na Ahmadou Bamba mhm. boo demee gànnaar ñu la koy wax nga koy gëstu da nga xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg naar ya fañ teg Cheikh Amadou Bamba ba ne ko jébbalu ci moom. jox ko seen bopp jox ko bopp bari na Cheikh naar. bari na ci dëgg la waaw. yaakaar naa yaakaar naa Mouhamadou Abdourahman al Alawi mi nga xam ne xeet yi mi nga xam ne moom la joxoon al wirdul maquda nga xam ne noonu mu meloon dañuy jaaxle ci ñoom xoolal Mouhamadou al Hasan al Alawi lu mu wax dane sëñ Touba moom bu masaa bind kaamilu alxuraan. Mhm. gaa yi bu ñu daan jaay kaamil ci réew mi day jar day jafe. Mhm. sëñ Tuubaa ku mas a ñëw bindu kaamil boo ñëwee sa procès baax sa programme ci lay jage ndax bu dee ñetti dërëm lañ la daan jox ñetti téeméer la lay jox am na kaamil boo xam ne nii sëñ la ko sëñ Tuubaa yónnee ba mu ñëwee daa daa bindu moom na ko teralal borom boo leen ko masaa bind jox ko ñetti téeméeri dërëmi nguur la ilaha illallah ñetti téeméeri dërëmi nguur la ko Cheikh Masamba jox naar boobu al alawi moom lu mu wax maa in ubaali ida ma dana doo maali an nii bi ajrati qattil mashabil xaali maa daama xawsul wara xajjan yubajjiluhu xaqan wa yëbsulu fii xaaliyal maali nee na kum neex naayal kum neex bu la jaral dencal li nga yor waaye sëñ Tuubaa daal saa yoo yore kaamilu alxuraan ma ne ko jëyi ca moom dana ko jëli ci xaalis ba gën a seer te fii kulli yawmin tuwaffi alfa mansalihi tudlaa bi amsaalihi min baadi amsaali nee na ay junni junni kaamil lay ñëw te wallahi ma zaadahu illa biha faraha wa bas ma lam te noonu kaf ba zali te du ko dolli mooy mbégte sëñ Tuubaa xàmmeewul junni kaamil lay ñëw tey ak junni kaamil lay ñëw suba fa yaxudul kull an xubbin wa takrimati téere bu ci nekk da koy jël ci cofeel ak bëgg noonu la koy jël yaa man yu jullu kitaaballahi jalla kama yu julli mawlaahu xaqan ay ijlaali yaay kii màggal alquranul comme li ngay màggale sa borom waaye tilkal xawaariq lam yasal siwahu biha fi laalamina min aqtaabin wa abdaadi nee na ko ni nga mel ci alquran karaama yi nga ci am tedd nga yi nga ci am nee na benn xut bu mu maa anta wa naasu istasaaba tajidu fii naylil maali wa yasaanu lil aali daa na ko yow nag tax nga wuute gaañi ñiy ñëpp addunaa leen a jóg yow ëllëg ngay liggéeyal mosu sëñ Blaat nee na adduna mosu koo tax a xëy baa mu jaral ko gont sëñ Tuubaa adduna mosu koo tax a xëy baa mu jaral ko gont lu mu mës a jox ëllëg ko taxoon a jóg. macha allah macha allah eh, am na solo sëñ Gana eh, bu ñuy dégg ci eh, sëñ bi waxtaanam chaque jour yàlla day ñëw yonent bi day ñëw ni mu meloon ci yàlla mel ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bi mu demee ci exil bi fi jamono toll ak méttiwaayu jamono ndaw ñu bëgg ko lool am ci moom cofeel bi mu demee ci exil bi. Euh, ci nan nan la fa nekkee woon ak mbind yi fa bind ci ay mbindu Serigne Touba ci jamonoy exil bi ndaw ñi mën cee jàng ngir mettiwaayu jamono euh, ndaw ñi mën cee sukkandiku ba bañ a xaat di bañ a dérivé dem ci leneen. a ah, xam nga sëñ bi boo gisee ñu war di ko waxtaane day tax am jom am ngor amu fit am jom am ngor fit juróom ñetti at nga nekk sa loxoy noonu mosoo yokkat koor gi ko jëkk a fekk Gabon 1315 bi muy teel via xayra dañ amul lu mu xëdde amul lu mu doge séentu weer wi séen ko amul ndogu ñu ne ko xobi garab yi la wër de mën nga cee dagg yetti xob boo ko sujj sujjalee ndox mi ngay muuc mais garambaay gi da nga koy yàbbi bu waree ba ngoon mu tenk ndànk yóotu garab gi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 ni mu baaxoo dundal sunna xam na ne kenn du ñu waaye moom na dundal sunna rek mel na moom donc nee na xool wet yëpp wet gu ne mu xool ko mel ni day xaar nit ñi war a ñëw nee na bi muy julli bi mu ne allah ay njege ay jàng yu ndaw ñoo taxaw di ko reetaan bay daanu ci suuf nee na xamuñu li muy wax ak li muy jàng sëñ la muy jóbi da nga ne ko nettali nee na bi mu jullee ba sëlmal nee na yàlla woor naa li ma ko digale julli naa ni ma ko digale aw ma muurum koor te bu ma ko amoon sax aw ma ku ma ko jox aw ma ku ko jox aw ma ku te aw ma ku ma ko jox mm-hmm. foofee ci Gabon metti gam metti gis nga maa yomba fa la def juróomi at waaw waaw maa yomba Serigne Touba fa la wutale boppam jàkk moo yetti bant yi moo tax jaamu yàlla rek ko ñor ñog-ñogil boppam ba ñëw daaj samp ba mu dëgër tubaab bi ñëw buddi ko maasale ko na ko fii jàkk xewu fi maasale béréb boobu fa la ko yàlla signalé jumaay njëreem ak jumaay Touba moo tax mu tëlif raditu Allah taala ci raba foo ay di na ne bi foofee toog na fa bis bopp tubaab yi lañ ko dugal ci mànga bu tàng wala kook soldaar yu góor yi ak yu jigéen yi ña ngay tux li ko buusu nekk seen biir mu ne teg bañ ko laajee ndax ndax ndax métti na la dana déedéet ndax kenn ku ne ci mu kàllaf nga ñaari malaaka nga say mbagg li may lor nga leen di lor ginnaaw ñu ngi koy muñ rek maa ngi koy muñ am na bis boo xam ne day bind dañuy wax ne xasi wala xadd karam naa muy bind ba yàgg benn tubaab woo mat ab xaj ñëw fekk sëñ bi fi mu nekk mu jal ko xaj bi cëppeelu ci kaw kayit yi sëñ bi ne ko xuskal ba ko an xirtaas yi téyel sa waaj sama kayit yi mu ne ko loola naqari rek laa bëggoon delluwaat wuti groupe du xaj ñëw jàll ko ku tedd ki Cheikhul Khadim sëñ bi jël xalima gi sëpp ci daaji bi cax bi daaji ne curr bu mu dal da ngaa tàkk xaj bu tàkk boo laal mu tàkk sëñ mu laay mosoo ko bind ataa bi kii layaa bin mu taxin wa waqatihi fa xarraqa tàbbal nañ ko fa ci bën gas ba mu xóot ñu tàbbal ko fa ci béréb yooyu def nañ ko fa foofu ci Gabon béréb yi gën a xat gën a metti fa lañ tàmbal Serigne Touba di ko fa yóbbu des bañ desee kàmb ga tàmbal ko moo wax ne radama rabbiya maa aw li wi xafar li dara yi wa saara nii an man kafar das na ngir bëgg maa lor yàlla ma ci dimbale pexeel ma ci foofee ca Gabon day ne ci béréb boo xam day wéet lool am na nekk benn yoo xam ne bu la mattee da nelaw te doo yeewu te day sam sëñ Touba di ko mat sëñ Touba daa jaayoon wokkutu soxna si ah. lu ko dal du faxas maanaam sëñ Tuuba sëñ ca faxas yoo sëñ ca faxas mellantaan sëñ ca faxas dara lu koy mat danaan sa mun lib jaay ndax da koo jaay ndax nee na ku wokkutu yëg bànnee xob xeesan te amadu du yëg lu may boroom tey boole ko garanti nag monsieur fu la jëf ba mu faat waxtu baa mu tiim du jiw yoog boroomam baa mu xëy fàtte waa Tuuba lu mbir diis diis mës ta tax mu faat waxtu mës ta tax mu tiim li ci seen biir te bu ñuy maaj muy taxawal faratay boroomam maanaam ci seen la ñuy nekk buñ nekkee di maaj di def seen i entraînement sëñ Tuuba ngi taxaw di julli foofee ca Gabon doon béréb yoo xam ne mu mënuñu la ko misaal la tubaab yi mujjee def ak sëñ Tuubaa ca fa ko fotale montagne sainte montagne sainte la ko tubaab bi fetale fukki soldaar ak ñett dóor koy bal bal yi dellu ci ñoom ñu daanu njaxaanaay foofee sëñ Ibrahima Mbacke moom Cheikh Abdou moom moom Cheikh Ahmadou Bamba maa ngi siyaare sëñ Dame Atta sëñ Ibrahima Mbacke dem na fa daaw bi sëñ Tuubaa génne ci Mbacke Bari daaw la génne Mbacke Bari këram gi ci Mbacke Bawol moom it sëñ Tuubaa ne ko demal motta gil ma liggéey ba ba mu demee fekk na sëñ ma Sàmba Njaay sëñ Massamba Ndiaye moo wax sëñ Ibrahima Mbakke ndax sëñ Tuubaa moo ne ko moo ne woon sëñ Massamba danaa fi dellu si waat mango yii dana am jamono boo xam ne ni muy day da nga ma gisaat sëñ Tuubaa sëñ sëñ Ibrahima Mbakke ñëwaat mu ne ko sa waaw ba mu accès ñeenti mango yooyu gis nga ba mu ñëwaatee sëñ Ibrahima Mbakke ci boppam la la sëñ Massamba Ndiaye na ko sa bàyyi rek ay góor dañ ne ko téeméeri góor ak ñeent fukk seen mbubb yàgg sa bàyyi tubaab bi xëy nañ suba di ko dóori bal ba ngoon xëy nañ suba ko dóori bal ba ngoon mm-hmm. la nekk di tawte amul fu mu làqatu bu jël kaamil bi dal ci dënn bi kottu garab gi yaram wi tooy soxna si benn gaalu sëñ tubaa gu nekk ay benn nopp la am sëñ tubaa kenn doo de kenn ko ko jàppale gaal yi da ko daan ruuf takk ci kaala yi ruuf gàddul boppam kenn ku ko jàppale gaal yi amut moo koy gàddul boppam ak tolluwaay ba ak tuutaay ba ci zahir ak wéetaay ba ci zahir waaye dëgër gën foofee ca gabang la julli dëgër gën julli ba noppi tàllal loxo yi di ñaan borom tubaab bi ñu indi passion alimentaire bi teg ko ci loxoom ne ko yàlla ji ngay jaamoo ngi sëñ tubaab dóor ko ba xaañ da katabtu fil bahri anni la amudu yaddi ila nasara abidil ma'i wa tiin bind naa ne sama ci géej gi sama loxo du ma ko tàllal kenn ku dul rasulullah sal du ma ko tàllal kenn ku dul yàlla borom bi subhanahu wa taala sama loxo bi jomm naa ko tàllal ab jaam ci kaw suuf man ahmadou bamba foofee ca gabon la loolu amee foofee ca gabon la sëriñ tubaa nekk njabootam gépp tawat Cheikh Moustapha Cheikh Modou Fadal Cheikh Mouhamadou Lamine ba mu yëgee ne dañoo tawat dana Modou Moustapha ca Rasulullah la nekk Mouhamadou Fadal ca loxoy yàlla Mouhamadou Lamine ca loxoy alquran lu soob tawat ja na ko def ca ñoom foofee ca Gabon toog na ba yàgg benn waxambaane daw ñëw ak yor jësi na ko moytu ma sama maama daan rey wàlli yi sëñ bi na ko sëñ bi na ko doo sa maam te du ma ñi sa maam daan rey doo sa maam daan rey mooy loxo gees yi di patpati di patpati ba gees yi ñu put wadd ci suuf loo xalaat ne nasaraan bi duñ ko def rek def leen te leen ko Serigne Touba gis nga am na bis day takk bagage yi tubaab yi di ko reetaan sëñ bi di leen ree mooy ba mu ne katabtu yow ma sabti ànd yi ne may takk nasaraan bi di ma ree ma di leen ree nee la mooy ñoo ko yenu <laughs> fa lañ gisee métal gi ahlu badrin daw nañ sëñ ñëw na sëñ bi ñii ñaana sëñ bi sama ñoña ñu ne ko foo àndee ñoom mu ne ba ma àndee yéen ñu ne ko baa doo xeex ak ñun mu ne surga fa muy xëy tey la xam xëy fa muy xëy ëllëg ñu ne ko doo ko nett bu leen ko wax du ma ko wax am na ca am libel wiir am maayomba am lembar na lembar na sëñ Tuubaa nee na lu dul ruugu génn ci yaram daj naa ko fa mooy lembar na nee na lu dul ruugu génn ci am daj naa ko nee na am na ci mbir yooyu yëllu ma di ko nettali nee na laa yaxilu ibrasuha nee na leeral ko warutul ngir metti ak tiis coono boo xalaat ne buñ ko defee ngir jël bakkanam daj na daj na fa waaye mu muñ mës ta yokkat dellu ginnaaw mës ta wax ne maa ngi jéggulu wala mu daw benn jéegu lu mas a diis tege ci kawam foofee la koy téye dékkul ko boppam tabax yi nga gis tey noflaay yi nga gis tey daa bëgg du ko am am na bis boo xam ne muuraake lañ ko yóbbante boo demee ci maam Serigne Sylla boobu danga ko ci fekk mu jëfandikoo muuraake mu takk ci déng lañ ji gémmiñ gi ne mu galaxndiku dañul nee na ca saase la ko suñu borom ne boo bàyyiwut mos lu mel nii duutoo gis rasulullah ndax muuraake daa neex ne fa xaasatu fi xiin ala jaxliha min al mabihaat keroog laa dogu ci bàyyi muuraake bàyyi dugub yàlla na ma déet boo ko bàyyi boo ko bàyyi wenn fépp sax ci kaw suuf foofee la nam ndawal ba buun gisul lu mu jëfandikoo jën yi léwut poti jardin nee na mus ko ba nopp raxasoo saabu raxasoo suuf xet gi dañu ba ma xalima ko bëgg a bind kaddu gi gi dal sama kaw moo gën a diis asamaan naa boo bàyyi lu mel ni du doo gis rasulullah ca la jaay keroog jën wu mag ak ndaw daa jaay jën wu mag jën wu ndaw banaana pom man luy neex nit di ko bus da koo jaay lépp féete woo borom subhanahu wa taala wala dëddu àdduna leer na leer na jaay leer na waaw lay dëgg la papa mooy dund àdduna euh, waaw nee na jërëjëf euh, man damay dellu si waat rek ci les enseignements du cheikh njàngaleem ku tedd kii cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul ndax dañu tollu ci sëñ bi bind na bàyyi fi wax nañu dégg def nañu gis mu am it lu mu fi bàyyi ci wàllu njàngale réew mi toll fii mu toll tey àdduna bi laay wax sax tollu fii mu tollu tey ndax jotul ñu dellu siwaat ci njàngaleem di ko jàngale ci école yi di ko jàngale ci daara yu kawe yi ndax njàng buñ ci sukkandiku sunu àdduna dana jag sunu àllaaxira moom waxi noppi mm. ndax laajul léegi nag ñu dellu si waat nag ci njàngalem Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ñuy fàttali rek ne Amadou Diagne Foseka mu ngi ànd ak ñun euh, Serigne Cheikh Aw Balla Mbacke caatu Serigne Fallou maa ngi koy sant bu baax moom ma solal tey ne ma jotaay bi ñuy waxtaanee sama maam mbub mi ngay sol man maa la koy jox Euh, ñu ngi àndit ak euh, Serigne Abdou Mbacké di xalifa Serigne Chaddi ki jiite Daaru Muxti fukki at ak ñett te dëkk ci ab néegu ñax kon nga ñëw ci dinañ ubbi benn euh, waxtu dinañ leen jox mhm. comme ça ngeen ñëw ci gërëm yi ñu ngeen di mhm. gërëm ak mhm. yóbbante yi léegi dañuy bàyyi juste suñu sëriñ sëriñ Gana Messere mu tontu ci laaj bi ngeen continuer wax yóbbante yi réew mi loolu dana fi naqaree def waaye buñ ko defoon xam ne sëñ Tuubaa solution lépp réglé c'est la solution mais boo xëyee ne sëñ bee baax fi ne nañ demal mu minu na ixwa julli di benn nañ ñoo bokk penku bi bokk rasulaay bokk kaamil waaye boo nee daama baax hmm. ñu fasituñ <laughs> la ilaha <laughs> noonu ne nangu nan ne bokke nag mhm. waaye da ngay wàcc sëñ bi rek ñu dooram waaye boo indi lu ko yàlla may rek ñu mer la ilaha illallah fa maa lil qadimi min ahdi aadamin ilal yow ilal yow bi fii kullil kiraami ca aadama ba tey sang bu mel ni daam amul déedéet nawleem amul cay daam daam rek kay daam sang bu ku mel ni mu amul a daam rek kay daam waaw daal ñëw ci daan na dañuy nungu dana lu waral waaw xam nga li ñuy njëkk a nungu. Mm-hmm. mooy nungu ni mel ba noppi. Mm-hmm. dañuy nungu ni mel. Mm-hmm. nungu lim jëf ba noppi jàngal ko nit ñi. dañuy nungu ni mel. di jël misaal ci moom Sénégal nag dañuy dégg gëm gis wedd dégg koo xamut ci moom dara nungul ko mbiram waaye gis mbit koo xam ne. mbakke la ganee jamono diggante boroxaan ak pataar ak mbakke kajoor la màgge ay wuy juróom ne fi ab jëfam ne fi njabootam ne fi lépp ne fi waaye bu ñuy joxe misaal dañ koy teggi fi ne mën nga koo xool fii ci télévision yeeg rajo yi da ngay gis ñu toog di waxtaan waxtaanee diine l'islam deux heures de temps bu ñuy joxe misaal doo dégg ñu ne sëñ Tuba bind na wax rasulullah nanga te wallahi al azim amul ku bind lu tolli li sëñ Tuba bind ko ko xam rek andil waaye mën ngaa jàpp feneen nag naan euh, di waxoon na nangam ci diine di waxoon na nangam ci rasulullahi mën ngaa gàmmoo ba bët set di wax di diiwaan doon borom mu xam-xam fu ne nga jële fay bayit mais doo tudd sëñ Tuubaa te ba pare na jullit jullit lay doon te gis li mu wax rasulullahi bu la rasulullahi ñoree li mu wax rasulullahi kenn wax rasulullahi lu la ci mën a lu la ci mën a tibb wax mais bu réew mi jëloon njàngaleem Serigne Touba yarub Serigne Touba jàngal ko ko ne xoolal téere bi tudd nax xabaa alxaaja fi ne xabaa alxaaj bu nu ko jàngoon kenn dutu gone yi duñ sànni xeer kenn du toroxal mag kenn du bañ kenn ñett yi nga cay jël sëñ Tuubaa dane ko la mag wormaal ko koo mag yërëm ko koo tolloo def ko ni sa bopp yóbbu lu lool ko ndaw képp ku la mag wagal xam ne yow yaa ko mag yërëm koo tollool def ko ni sa bopp nee na boo rombee din mu saaga la neen waxuma mu ne waaye sa tur la tudd nga ne dañoo bokk tur doomi diw ak diw nga ne daa jaawale mu ne yow la wax nga ne maa ko baal jàmm ñëpp yóbbulu ndaw ñi. yoonu jàmm soriwul. dellu see ci njàngale bi am jàmm ba noppi mu jàngal la nga bañ a def li ñuy tuddee intérêt personnel. Mm. sëñ Tuba intérêt général la def. te ne sëñ Tuba mboolem ku ko topp sëñ Tuba moo mën a gouverner sëñ Tuba moo mën a jiitu mm. sëñ Tuba moo mën a jàngale. Mm-hmm. mboolem ku ko topp loo ko jëfal fay na lu ñuy toll. defal lu ko toolub àllar ba nga koy bayal mu boole la ak ñu lay bayal mbaam nga koy siyaaree mu boole la ak ku lay joxe kat kat aw juróom ngay siyaaree ñuy takki million di la jox. Ah, benn néeg nga koy takkal ñu lay tabaxali kër. Ah, dëgg loolu bu ko jàngaloon ba àdduna xam ne loolu mooy iida moom la sama pap mbay peex di naan ku ko lebal guddi mu fay gis nga mu lebal kër mu fay la guddi waaw <laughs> dama bëgg sax mu daal tuuti noppalu ndax réew mi nag yëngu na mm-hmm. léegi nii soxna jiiri mba soxna moom euh, sëñ Abdou Khadir may jiiri mu ngi tàggoog sagoom daam ba waa port ñu ngi woote dégg nga Amadou Diagne mu ñëpp a woote waaye li dal lii mu wax nii nag ni daam ku ñu wax ba Madou Gueye bàyyi daam. moo ko wax Sëriñ Tuubaa moo ko tuddee daam nee ku dem nga doon kël mu daam la ñaas la ba ñaas la dootul dañ ñu ne ko Modou Gueye loolooy daam. waaw. daam rek kay daam. daam rek kay wax sax léegi. Eh. maa yomba bi mu ko tuddee sama yaram dafa daw. Eh. ba fa Cheikh Mourtala demee ñaari île la. maag sëñ bi ànd da bii île dem ca beneen île waaye keroog néegu maa dem foofu ndax bu ma demee sama xel dana nekk ci li ñuy def sëriñ bi maa yomba sëñ Tuubaa am dafa juróom-ñaari tegul cin tegaluñ ko cin gisul ko ni dama ni mu ni coy mhm. lambar mitti waaye lii mu wax nag léegi mm. montagne Sems tey boo ko demee jumaa jëfam sëñ Bamba ko moom. yàlla fay na ko. loolu moo lay wan ni tey. li tax nu indi la danga lay toog rek di la laaj. parce que nag gànna ci palaato laaj wax. dëgg la ah. dañu dañu da xam naa bu bu ñu duggee ci waxtaan wi may la nga daal tuuti ndax am na yu bari. bind na lu téeméeri laaj ak juróom-ñett fukk ak ñeent <laughs> xam naa ni du fi xaj waaye benn boo ci jël mu ne ci sa des te réew mi dafa toll ci foo xam ne fii nag leer daa jot Cheikh Abdoulaye Mbacké dafa ne woon fa mu doon liggéeyee la yàlla ku naan amin néewul ci ginnaaw ba pare nag mu am ngor dalay dimbili jox la ndam la mhm. def la lépp mhm. ba pare toog bàyyi la ak bàkk wa mhm. nga wax léegi ni ku jàngul deful dara sëriñ bu sooxeel ko tafal ko mbooloo gis nga ne naay sa uh-huh. da nga mbo eh, seex yi liggéeyal sëñ Tuubaa mm. ñu ci bari boo leen joxe leetar dañuy woo dañuy toog woo ca kër ga. woo ñu nekk ca naaj way bay. jox ko ko ko. dinañ ci ñëwaat incha allah papa ci. defar parce que dafa am importance defar sëñ Bamba ko man. Uh-huh. dafa am importance trop. wallaahi wax dinañ ci ñëwaat dañ koy bàyyi mu yeggali. ma dellu si waat ci yéen joxaat leen kàddu gi. sëñ bi ñu ngi lay déglu. waaw loolu mooy wane sëñ bi am njàngaleem faaw nit ñu loolu. Sénégal niñ man mooy di apprécier ndàdde bàyyi première. bàyyi première. course bi day jóg am ko raw ñu naan bi jàmbaar de. ah dañ koo raw rek mais jàmbaar eh. la. bàyyi ko jiitu. def. waaye bu ñu jëloon anglais digganteem ak nit ak doomaadama rek. nit ak boppam nit ak boroomam nit ak jamono bi fi nekkee lu ci nekk ni ko Sëñ Tuubaa doon dunde ñu jàngal ko nit ñi xoola waxum li waaye xoola bu tomb rek fii jamono tollu nëx xoola baat yi mu ñu yóbbante woon demee na ba jamono soppi dénk naa leen juróom jekki noppi liggéey jaamu yàlla loo mu doy la xoola bu ko sukkandikoo woon rek toog bàyyi wëndeelu bi bàyyi wax ji ci loo mu njariñ liggéey jaamu yàlla loo am mu doy la mais boo nanguwut a te bëgg a tedd loo am xeeb ko. dëgg la de boo leen wëndeel loo wax kañ lam réew di jag loolu sëñ bi dañoo jàngal melooy yooyu dafa waxoon ne ida aratumu najaata min abnaa dunya fatrukuha lahum fa man wajada minkum fala yabzul wa man lam yujid fala yatlub wutal nañu solution nee na boo leen bëggee mucc adduna ak nax-naxi adduna bàyyee leen adduna waa adduna bàyyee leen adduna ak waa adduna ku ko am na ko génne ci saase waj ku ko amul bu ko jël bokk na ci jàngaleem yoo xam ne koy jàngal waxuma yi muy bind nit di ko gis ci yar nit de ko xoolal mën a defarug Serigne Touba li nga wax léegi xoolal Serigne Mahmoud Mbegere sëñ Mahmoud sëñ Touba yónni na sëñ Mahmoud sëñ Mahmoud Mbegere génn am ñu ko dogale xeex moom ba dagg baaraam bi te mi ngi géesi bi mu ñëwee sëñ Touba ne ko ana saay saay yooyu la dogale woon dégg naa yoroon nga ngànnaay lu tax jëfandikoo ko mu ne ko damaa merut maanaam sama xol tëngut ba mën a xeex xolo gii defar xolo gii defar maanaam dama merut ma nee na meruma pour mën a xeex bay dagg kenn boole ci xoole ñim sàkk defar leen niñ mën a liggéeyee tey ji ñaata réew ñaata dëkk yoo xam ne boo ko xoolee sëñ bi digal aw mag ñu dem sanc ko boole jaamu yàlla ak liggéey ne ca la ñu waroon ne mboolem luy taraangay adduna ñu boole ko am te seen seen diggante seen borom dara yàquwu ci buñ ko jàngaloon ndaw ñi tey ci biir école yi wax xam nga ne kiy bañ ñu jàng xasida bañ ko jël sa photo ab bureau nga def ca photo sëñ Touba nga di ko bañ bëgg boo dee ñu teg la ci jàkk tudd yàlla damay wax ne ku bañ ñu jàngal nit ñi xasida ñu jàngalin diine boo dee bu ñu la tegee fa nga fa nga ne pesitu fokoran lañ la war a jàngal frappé les balafons jàngal la ko bañ la jàngal alxuraan bañ laa jàngal dara li am la ñuy xeeb dañu am complexe ñu sëñ Tuubaa ni mu toll nga xam ne àdduna bi ci seen bopp xam nañ ne ku mel ni Ahmadou Bamba fi mu ne fi mu ne réew moom nekk fu jàpp ne toll na fa ci avancé mën na ko romb ci xalaatu sëñ Tuubaa boo jël ci nangam xoolal rek sëñ Tuubaa fi ne mësta tooñ kenn ko tooñ bool baal na la daa waxoon ne yett yi laa siq ak yàlla yett yi laa siq ak jàmm ñi sama boroom lu ma digal def naa ko musuma def lu muy lu mu dogal neex la ma jaam ñi masuma cee tooñ kenn ku ma tooñ baal lu ma bokk nañ yow masoo tooñ te doo fayu te loo am bokk ak ñépp ñu war leen ko jàngal jàngal si ñu jàngal ndaw ñi xam sa bopp xam sa bopp xool xam sa bopp sëñ Tuubaa Sénégal gii la feeñe jamono bind ay téere taxawal aw yoon xeexal boppam ba tey fooy tudd lislaam di tudd nit ku taxawal diine lislaam tudd sañ Tuubaa ci as bu ndaw nag la ko def te mës a changé culture am fu mu dem loolu lay imposé te ñun dañuy changé fii ne xam sa bopp fi ne ci Sëñ Tuubaa nga koy xame dara mosu koo changé fu mu mës a doon defee ak nam mel ak la muy doxee loolu lay jàngale waaye dinañu jàngal nag yéen maa ngi leen di dénk xool lim ñu dénk aju ci moom te dañ koy féetarlu wasaytukum yaa man taallaqu biya fi sirri wal jahli li wacci rabbiya an tatruku muharraman wa ma kuri li wacci rabbikum kullu man alimal jamia fal yura fariqa wam duyaa jahila fal yurafiqa nee na ku aju ci man digal naa la bàyyi lu araam bàyyi luñ sib nee na ku ko xam na ko bàyyi ca saase ku ko xamul na wuti ku ko xama xoolal lim nu jàngal ci melawoowu dina woon yoon yu nga war a jaar la aba isaqa waxoon ahlu basra aba isaqa ahlu basra dañ ko ma a wax ne ko waaw ñun lan moo tax bu nu ñaanee yàlla du nu may te yàlla wax ci alxuraan ne addu'aa astajib ko mu ne leen maatat xuluubukum ala sittati ashyaa li leen ko yóbbee mooy seen xol yee dee ci fukki mbir bi ci jëkk araftumullah taala walam tudu xaq xam ngeen yàlla mais joxoo leen ko àqam yàlla yàlla yàlla xoolal Sénégal defe nañ ne yàlla ab tukkikat la weeru koor ba weeru koor lay ñëw ci réew mi bu koor ñëwee ñu fëgg kaamil génne kurus yi ñu ne léegi weeru koor nit warut a sol mu mu nangam kenn warut a tudd kenn léegi diine ji maanaam weer wi nga xam ne fii tey bari na koo xam ne li mu wóor lépp maanaam suba la koy fiil ci we suba <laughs> koy fiil ci we ndax ci leneen la koy jëf kon de mooy kon xam nañ yàlla mais joxuñu ko xaxam la wax ba ca topp mu ne leen xaraatubul qur'aan walam ko jàngoon te jëfe ko kenn du bañ kenn mm-hmm. kenn du teg tuuma kenn dëgg la alxuraan ne in jaakum faaxishatun bi naba'in fatabayyanuu tusbiqu qawmun bi jahaalatin fatusbihu alaa maa fa'altum naadimiin bu ñëwee ne la soxna nee na nee na da nga laa ah, man démb ca ngoon baa ko mujjee gis soxna nee na ma jox mbubb mi man de xaw ma ci moom loolu waaye naa nga ne ah yàgg naa cee ñaaw njort de man de maa koy ji lu baax waaye li ma xam ci moom wax ko lu ñaaw lu ne ñu dem ba léerul nga ne gars yi bett nañ mu ne bokk na ci leen gàllankoor bi ci topp ne ngeen ci xeetu rasulaay ngeen bokk mais jëfewu leen sunnaam mhm. saytaane seenum noonu la ngeen di ko topp bëgg a dem àjjana doo jaamu yàlla ragal sawara yóbbu fa sa bopp wax ngeen ne dee bëgg la waajaloo leen ko suur seen i waar waaru woo leen ci biir armée yi ngay wuyu téléphone oh. mm, dëgg la de ci biir armée yi dafantum amwaalakum wa lam tahbiru lakum may ma ma génn nag damaa ne ci armée yi ci biir armée yi ngay wuyu téléphone ak di maanaam jàkka joo dem bind nañ fa kay na ngeen fay portable yi léegi yàlla rek la ñuy wuyoo téléphone te boo demee tribunal doo ko def ak di sinap waaw léegi dañ ciy sinap sax tiim ab bàmmeel ñu jël néew bi teg nga naan nañ ko bàyyi xel boo ko bàyyi woon xel doo filmé <laughs> lii nag mën naa bàyyi xel bis bii yow boo ko bàyyi woon xel xam ne fi nga jëm doo filmé mu ne ba ca topp nag akaltum ni amasa bu ko lam tashkuru la lekk ngeen xéewalug yàlla gi waaye santoo leen ko ba ca topp mooy ishtagaltum bi uyubi ixwaanikum walam tanzuru li uyubi anfusikum koo ci seen ayib jàmbur looy xool waaye fàtte na boppam da ngay denc une tonne cinq cent sa kër di waaye liibaru jàmbur mm-hmm. mu ne lii moo tax boo leen ñaanee yàlla du nangu mooy comme lii xew nii njàngaleem Serigne Touba bu ñu ca delloo li eh. ñu wut wut dana li ngay xam ne Serigne Touba solution la sëñ Ablaye bi ne tawat jii xew na ci ci réew mi ñu ne day faat Cheikh Mahamadou Mountakha li mu njëkk a def mooy nan wàccee kaamil ah, mm-hmm. génne deux cent millions am mm-hmm. jàpp leen si kooku da xanaa wane na yoon yéemul ci joxe deux cent maa ngi leen di bi tàmbali séddale waa dëkk ba di dimbale ñoom daa ne woon nit ñu organisation l'islam kat digle na bu leen tëj seeni juma waaye tànn leen mbooloo mu yem fukk ak ñaar te respecté sarte ya mhm. xanaa kon wane na solution. wallaay dëgg la ba noppi na ngeen toog moom mi ni xëy di siyaare ji suba ngoon ay daayira di ko rang di ko joxe milliard mu ne toog leen. bu kenn ñëw. ñentee ki seen i béréb mu togg ay ñam di leen jox waaye xanaa kon jàngale na yoon woo xam ne mënees na koo dégg. wallaay dëgg la wane loolu loolu mooy solution boo xam ne waxtu wu yoon wi da koy wane. te saa yoo ma see dégg kàddoom bu ne na ngeen ñaan ñaan lay jiital ñu ñaan dellu ci yàlla waaye liñ digle na ngeen sàmmonte ak moom macha allah tëj buntu yam war a tëj yëpp la war a ubbi mu ubbi ko nit man caa jaar wane nag deux cent millions yi joxe nii man dégg gun ngeen kenn nit ko joxe gun deux cent millions dajale na ko def mais kenn nit laa wax la waxuma nag mbooloo mu dajale kenn joxe deux cent millions say daayira di joxe sax njaboot nga digal yemu ca nga jekki woote waat na ne ñëpp ñëw ku nekk nga den di dimbale ku ne ka nga tane dimbale ko xolo woowu melo kon sëñ bi solution la ci nit ñi mën a dellu siwaat jànge ci moom defar si adduna te sëñ Tuubaa li tax mu nekk solution du la defaral sa adduna jag sa ëllëg du jag sëñ Tuubaa dalay defar sa adduna mu jag sa àllaaxira jag macha allah ndax fal ka yi su man daana naf soo wax ma li ma ba'dal mawt mhm. euh, jërëjëf sëriñ euh, Gana yëkkati leen li nga wax rek nañu jël njàngaleem sëriñ Tuubaa euh, boole ko ci suñu dund waxuma la ci suñu dund waaye mën naa ni président bu njëkk falu jël mbindum Serigne Touba ak njàngaleem Serigne Touba dugal ko say programme yaakaar naa ni réew mi dana bokk ci réew mi gën a ñoŋ dañu del siwaat ci euh, natt yi nga xam ni Serigne Bamba dund na ko ndaxit nag mun naa ni natt bu ci nekk buñ ko xaymaa dafay nekk nattuk yonent Serigne Bamba ci réew mii di Sénégal dund na fi ay euh, dund na fi ay résidence surveillée bu ci mel ne Thiène Jolof bu ci mel ne tamit ca Jurbel gii euh, at yam fa def ñaata at la ak mag ñam fa nekkaloon nam nan la nan la doon dundeek ñoom waaye diggante sëriñ Touba ak ñi nga xam ni seexal na leen ko ci mel ne digganteem ak Cheikh Omar Diop digganteem ak Cheikh Abdou Karim ture euh, yooyu yëpp bëgg naa daal ci ñaari laaj yooyu ci résidence surveillance yi ak ñi mu seexal bëgg naa nga euh, nga laayee ñu ko biir. ah jàng leen nañ jàng dee leen jàng. effectivement. Euh, euh, effectivement ayca bisimilah nu ngeen nu ngeen noonu lay demee ngeen ko bëggee rek noonu lay demee. noonu sax lay ñu ñu def tuuti ay waxtaan. mu dal jànkati xaside yi jóg. mu dal tuuti noppalu. Mm-hmm. ndax moom yéeneem fii ba suba du leen sonn naa. waaye du la jox lépp nga jël lépp ñu may ko tuuti mu noppalu sant rek bu baax Cheikh Mouhamadul Muntaxa sant bu baax digganteem ak doomam jii di Bougane ak diggante Cheikh Sidil Mokhtar ak Bougane ak diggante Cheikh Modou Lamine Bara ak Bougane ak kër gi kër gi dafa jar jàngat euh, maa nga lool jërëjëf Cheikh Abdoulaye rajo yi la su balee grâce uh-huh. Cheikh Abdoulaye Laat moo ko am uh-huh. waxoon ni nañu def na rajo ba ca Mali ba ca Guinée ba mu jàgg sëñ Abdou Khadir la jël micro ba ca moom tey média yëpp tàkk na jëm Touba njabootu sëñ Bamba gi moom leen uh-huh. waaye boole nañ ci ñëpp kat sëriñ Touba dafa waxoon ni ku ngeen gis baatub laa ilaaha illallaah di génn ci gémmiñam bu leen ko noonu bu kenn noonu kenn ku dib jullit tàllal jullit yépp loxo soob leen ci yàlla ak yonent bi njabootam gi ñëw jaar ci ba réew mi gëndoo kenn ku ne cër ba nga am ca Tuubaa ñu jox la ko tudd na léegi réew durayen sëñ Ahmadou Badiou mu sëñ Fallou jiite ko bu ñee su bala màggal ak Tuubaa këru diine gu ne daañu la jox nga wax nga rajo Mhm, wax wax la nga war a lépp. Mhm. ba sa morom jeex bu cérémonie bi ñoom ñëpp ñu dajaloo ñu jox leen ay discours yi Serigne Touba ñu téye ko. sottantee xalaat. papa waxtaan bi dafa am importance mhm. waxtaan bi intéressant rek xam naa euh, dañuy bàyyi xëy na euh, ñoom euh, Serigne Mor Gueye ak Serigne Moustapha Seck ñu yëkkati comme ça suñu yëkkatee ñu bàyyi sëñ Gana Messere mu noppaleku tuuti laata ñuy dem pub ñëwaat ci plateau bi sëñ Omar bëggoon naa nga dugg ci ray yi rawal waraana la fadlil musrina la رام الورى إلى فضل المسرحين لوا والفضل عند رسول الله خرار قلبي في إتاب الجسم تكرار لأنه للوداع والنور جرار يلوم جسمي يا دابا في الجلوس بلا حلم ولا حمل والنفس خرار ما سال للخير ينهو وينسب ولسادة نهبر وخرار يلوم وهو في خار وفي كبل باسم ربي والمبوس مبراره قد أخ جسمي من القلب يطلب من المناخب تصويف وإسرار فاليوم وجد وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدنى وخفار خفار اغفر سنابي وفقا كملي بمن علي لتركي ثوره بمن يخاطبني في سوي روضتي بيتاني من قول من بالعرف أمار سر من تحبه وإن ستت بك الدار وآل من دوني سهل ووار لا يمنع أنك بود من سيارتي إن المحب لمن يهواه سواره لا يمنحنك بود من زيارتي إن المحب لمن يوعى سواره إلي خطت من خولي ومن حملي ومن جميلتي قد كنت أختار وجدت وجيلك يوم ملتمسا منك تجاوز ما أبصاره surma tuhibu wa in satat bika daaru waale min dooni sarun waaru sëñ Bamba laa yam na an ka buxdun min siyaarati inal muhibba liman yahwaawu sawaaru ilay xatu min xawli wa min xamali wa min jamilasi xat kuntu axtaaru fal yuxrijil yawma min xalbi tibaaw awaa bijaayi wa sayaatiinun waak daaru asixliyal xalba faltadoo maarifatun walaqu wasabru walawla wa ijbaaru ata ufaariqa afaalan muxabatan maa taraasumi ma yasaabi jaaru wa nakuna sayyidan abidan abadan wa xaadiman xidmatan tardaa wa taxtaaru wa habliya daara bil muxtaari summa biim an laa uxaalita ma lii duri jaraaru wa habliya daara bil muxtaari summa bihim an laa waxaa li tamaa li duri jaraaru wasala lil haq min al haqil mubin li xaadama baana wa ma laysa yamiina la mani ma kaana xabla al xalqi man kaana lii bi karamil wa tilxi lam yanu saadi jaalibu niiraani غالب الهارين والخسران لم يلغني ضرر النار دنيا وتزل الباخي بخير سنيا ملكني ما لم يبيوني وخادني بقاؤه بالمن كرامتي كتاب من رفاني به إلى الجنان مصنفاني مهمماتا خطنا نفوسا ولسواي ساخو تنفيسا إلى سيان نغو تياو الموت نهى نفوس كلا بفوتي لم تنحني مخدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدلوا min mawti nafsi ma naani jadalu tursi ani mawtu baqaawullaay abxaani allahu li wajhillaay kafaani albaaxi mamaata sarmada wa bilbaqaa'i yesu rahmada nafaani walam yadurni wala yadurni kulli alayhi awwala نسيء عن الأمراض والممات بقواسم من السمات على من بقوني إلي البيت راب يرمي المرضية لا شك في كوني باللمين في وبالكتاب واللمين ملكني لمين واللمين كتاب باخر جاني تمين ملك الأمين والأمين كتابة باخ جاني تمين وخل ربي سدني حلما وجهت وجهي جايلا فقيرا لله أبدا خادما أقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا من وروم لك سكيت يا علي مجهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمتي نبي سدني حلما وبالبسر إليك خدني بجاي سلي علي بسلام وليكن في أبد بلا ملام بحرمة المختار هب لي حلما وحملا وأدبا وحلما aji wasal bi salaami sarmada alal wasilati ilayka ahmada borom tubaane salli ala babil huda naahi nada mulli nada laysil hidama yarda babil ula wal karimi salli ala laysin safaay fi yawmi badrin. macha allah. kon euh, ci noonu ak Serigne Moustapha Seck ak Serigne Wor Gueye euh, di fàttali rek nekk euh, kii di Abdoulaye Diop Bichri mu ngi rafetlu waxtaan bi lool mu ngi lay nuyu bu baax a baax Serigne Gana Messere ci noonu dañuy laata ñuy soobuwaat ci waxtaan bi gën koo yaatal dañuy jox Alima Pape Abdoulaye Mbaye Peex ak Pape Abdoulaye Lam ñu ñëw ci remerciement yi parce que tamit gis nañ ko am na ñu bëri yoo xamante ne dañoo joxe seen ay yóbbal. taalibe yi dañoo xër voilà taalibe dañoo xer donc euh, ñu ngi leen di déglu papa. jërëjëf nee naay sa taalibe yi kenn mu leen a fay sëriñu Xaadim Mbay di sëriñu euh, kii toog tey di Moustapha di sëtu Cheikh Samba sëñ ma tayir mi ngi woote njabootu Cheikh Marouba Guèye ci waawoon tey nee nañ ma kenn nelawul njabootu kër Cheikh Marouba ñoom ñëpp waaye rafetlu nag benn taalibe boo xam ne bii dafay indi teraanga dafa xër ba daanu ni ma bu kenn tudd sama tur waaye ku sopp sëriñ son yi bu la te bëgg kër gi lool te foo ko seen muy dem ci seex sooy bu mu ragal ma yàlla ca lay xëy ca lay gont di ku yàlla baaxal jox ma téeméeri junni ni ma na nga jël juróom benn fukki junni yi joxal ma ko gànna sunu ñaari jàngkat yooyu toog Moustapha Seck ak moor gi ku ne jox ko ñaar fukki junni ma ngay jooy nag gis nga joxe xaalis ba noppi jooy teg ci Serigne Touba ko am gërëm bu baax sunu doomu ndey sunu xarit doomu du Amadou Mountakha di Omar Baaw mi nga xam ni tubaarkàlla moom itam kenn la ci nun moom it mi ngi rafet eh, lu rafetlu jataay bi Serigne Ibrahima Sall bu Daaru Musti di sotu maam Cerno Birahim ndaamal daaru Cerno demoon ndar moom it mi ngi topp jataay bi ak ñun di gërëm sénéraalu xaadim rasul Cheikh Modou Kara Noreyni Birahim Fall isa ba ca bayti kii toog tey jàkkaarloog ñun nit ñi di ko déglu Cerno Birahim Yaakaar kan mooy sëriñam sëriñ Modou Makhtar jàmbaari Cerno Birahim défense yoon wi ak magam ju baax ja maam cenoom Cheikh Awa Balla mi godoro bi xëyee Ndakaaru France yi daru man naan cerno daara bëtt nëb teen moo Cheikh Mouraw Balla sëñ Bamba leen yar réew mi yëngu nit ñi jóg sëñ Ahmad Ke moom sëñ Abdul sëñ Modou Abdou Khadir ak njabootam gi yëpp tey sëñ Fallou Bousso njaboot gi ñëpp a ngi toog di déglu Touba ñëpp a ngi toog di déglu waaye réew mi ñëpp ngi toog di déglu xanaa Abdoulaye Lam wax la ni. Mhm. segam na ca wala ndoowaa daanu ca teen ba. mas na ci pind ba. wàcc ba daan naa la nag wóorul ku daan kaw ngay féete. loolu daal kuy xaaraan kuy toggoon togg ko teg kuy toog jutta kuy xëccoo du mucc cooloo léegi ca teen ba ñaabul baa nga te bëgg tuy kenn du sëñ Bamba diggante Conakry ak Dakar boo julee ci gaal gi tooñ boo julul tooñaal sa borom mu sànni jëlam ci ndox mi ca Pérou sëriñ Touba ñeme waaye jàkkaarloog Touba bi nag tund jeewal ñetti téeméeri espèce fetal yi dafa mel ne dugub bi palpal juy focci nga jàkkaarloog ñoom tërëfoo sëñ Bamba ñeme góor fu ñu leen fekk Serigne Touba bu mu toog fenn na wut si na wut si ndar ñu ko jeewal mu sa borom ne jeewal laay fanaan looloo tax palaato bi ñu gërëm ñu fi jaar ñépp gërëm it sponsor yi. surtout. ndax nag euh, nee na ay si sponsor yi alima nañu kër gi ndax am fii fii lañ ko amee. dëgg la ñu teeru leen tatagal leen. maa ngi gis léegi sama jàmbaar yi jàll waa ci kanam nga xam ni nee naa sa ñooñu boo ànd ñoom dem bitim réew li ñu leen di jox ñu di ko def ci banque bi kenn ci ñoom laal koog daj ci gaalu jaabur nga sëñ Moussa Bachir waxoon damaa ñëw poroxaan mu ma ci wetam ma ni Bachir waatu ma du maam wégéej wa ma ca mbéy mbéy mu ne Ablaay ñëwal nii may xool xaalis bi ñu di ko nër ci gaal yi rek ma di ko xool bu ñag ni ma xaalis bii kat peex laal koog dajji gaalub jaamur laay ma ne li <laughs> si saa poos nag ñëwal nu bokk ko sëñ maam moorum Cheikh Amadou Mourtada ki sasaare ji ci Afrique ak ci Europe maam moo rek waxoon na ma ko Abdoulaye lii ñu may Cheikh Mourtada laal koog dajji gaalub jaamur laay ma li ma am nag maag yow nu bokk waaye lii alali sëñ bi moo tax Sëriñ Tuubaa ñemewul bor dafa mën a fay te gànn xanaa xamoo ni juróom-benni ñett yi ku ci man yaa mën xamal bi ci tubaab bi laaj bi ci gànnaar jay bi ci kajoor sëñ Bamba képp ci mucc kajoor gërmi gu ñu mas a jay baa ñu way la dee nga ci toolu xare ñu ñibbi gànnaar ku ñu mas a laaj gan dañuy laaj sëñ Bamba ba gàngal seen bopp tubaab bi ku ma xamal tiit nga sëñ Bamba xamoon kënu ak karwaas mu moo ñime Ablaye Diouf. Euh, euh, jërëjëf xanaa di sant di gërëm mboolem ñi nga xam ñoo àndoon ak ñun ci biir réew mi ak euh, bitim réew ñi ñuy woo wax seen mbégte ci jotaay bi bokk na ci sëriñ Mourtala moom Cheikh Mamad Fadal Khadim Rasoul nee ma jottali leen ak cantam ak ngërëmam ak mbégte gu mu am ci jotaay bi ak ci waxtaan wi. di bëgg ci Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke Ablaye di xool yi tablo. ibna Serigne mhm. euh, moom sëñ Cheikh aw Balla ni ma ko waxee rek daf ne. jotaay bi waaw ñuy waxtaane maamam. moom mhm. mooy solal mbubu moom mooy solal mbubu mi. Euh, Alaaji Mbacke yu fay di sunu jëwriñ. mu nu ñëw toog ci jotaay bi. te santuñu ko gërëmuñu ko ñaanalaluñu ko ndax Alaaji Mbacke day sagu yoonu murit taxawaay bii mu taxaw te mu jaral ko lu nekk ku nekk ci ñun la ko taxawal kon bu ñu toogee il faut ñu ñaanal ko yàlla mu dëgëral ko guddal fanam wéral ko te li muy def mu daje ceeg ngërëmal ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sëriñ Abdou Mbacké di sunu wëllëre moom sëriñ Cheikh Khady ki jiite Daaru Muxti fukki at ak ñett ba ni ñu ko gëjee gisee ci néegu ñax la nekk xeetu nga bu nekk tabbi ci loxoom waaye lu ñëw rek mu delloowaat ko ci maam Thierno ak liggéeyu Daaru Moxti moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax euh, soxna moom i Kébé suñu doom ak borom këram Abdoulaye Tagué moom it ñu ngi koy sant bu baax euh, di ko gërëm président Ibrahima Sall wax nga ko léegi taxawaayam bu rafet moom itam ministre Bassirou Sarr moom dafa woote léegi di wax mbégteem Serigne Matar Sey La Fraîche bokk na ci sponsor yi moom it ah. wax na mbégteem ci jotaay bi ak di rafetlu bu baax liggéey bi mook Madiaw jaw mi yore euh, wàllu commercial am waa Daaru Salaam Couture it dëgg yàlla. Matar Sey mooy ka joxoon bu ma te ñëw. voilà Matar mu ngoog waa Daaru Salaam Couture it wax dëgg yàlla ñëwal nañ maa yëre yu am solo yoo xam ne dañu siwaat waaye ministre Dame Diop dafay def chaque euh, euh, grand plateau rek dafay ànd ak ñun. dëgg la jàmbaar la waaw di jàmbaar di taalibe Cheikhul Khadim. di sëtum sëñ Cheikh Coro. moo ko Mara Diop bu Ndindi. Serigne Bakke Dieng bu Ndamaatu. soxna Mambar moom Serigne Fallou. Serigne Djili Niang bu TFM. ak Am Diop uh-huh. bu Touba TV. ñuy gërëm bu baax itam nag uh, sama waa dëkk waa Kër Madiabel sama yaay Aïda Sène samay rakk ak uh, sama jarbaat Dame Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi àndandoo ak ñun tableau yi nag. Uh, xale yi ñoom ñoo ko fi indi euh, muy teraanga joo xam ne nii ñoom it dañ ko indi pour wax rek ni ñu rafetloo liggéey bi ak ni ñu amee mbégte ci waxtaan wi nga xam ne nii Serigne Gana Messere jot na ko fee waxtaan te teg lépp nag euh, ci xam-xam kon xale yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax euh, lii nag yaakaar naa ne yéen ak ñi joxe ay milliards wala ay millions yéen a yem ndax euh, jëmm ji rek nataalam kuñ ko jox. Mhm. lañ la jox moo ëpp ay millions moo ëpp ay milliards. macha allah yàlla fàttali rek ne que jëwriñ Makiyu na may ma gërëm rek euh, Serigne Ibrahima Kunta dafa bokk ci waa ahlul kunti waa Njaasaan di généralu Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani bëgg lool Serigne Cheikhou Khadim ba fu ñuy waxtaanee lu jëm ci sëriñ Touba du nelaw moom ak njabootam moom it ñu ngi koy ziyaara bu baax. waaye waxaguñu ba tey tableau yi ku ko moom de ak kan lañ ko may. pour sëñ Gana lañ ko may pour sëñ Gana la. nañ ko ko jox. yaay Saliou Khoule lañ ko jox yaayam la. Ah, beneen bi macha allah. sëñ Gana dëgg la am micro bi am. mën ngeen mën ngeen dem joxe ko mën ngeen dem joxe ko. man ma dem dem ngeen joxe ko egg leen. ngeen joxe ko rek joxaale micro. xanaa soxna ne gërëm maître Xaasim Touré. waaw waaye waa kër sëñ Mahmoud Mbegere. waaw ah. sëñ Mahmoud Mbegere nag bu ñu ko tëddee peex yëngu. ndax moo indi sëriñ Touba peex. waaw. kon ak sëriñ Touba yi am taalibe. walaay macha allah walaay ndeysaan macha allah. jërëjëf macha allah. waaw demal ko sëñ Saliou Khoule yaayam. macha allah Saliou ndeysaan bi màggal gi jub seel la yaayam ju baax jooju génn àddina. wallaay ndeysaan. waaw lii lépp lii ci baax la. Mhm. ak kër. macha allah xam nga kër gi moom ñu bari ñu bari dañ ko bëgg. Mhm. te kennel ko. jërëjëf merci beaucoup. Mhm. c'est bon jërëjëf. jërëjëf merci. merci beaucoup yal na yàlla fay ci barke baax na jërëjëf waaw kay dañuy delluwaat ci waxtaan beneen laata ñoo dellu ci waxtaan jotaayu démb bi Adja Khady Wade bijouterie Serigne Babacar si da cee diggee woon téeméeri junni indi na ko ancu mu Serigne Babacar si moom itam da cee diggee woon ñaar fukki junni indi na ko man it ñaar fukki yu ma junni ma diggee woon démb indi naa ko voilà junni ya nga waxoon alima donc ñoom tam ñu ngi leen di gërëm bu baax ñoom it la ñu waxoon indi nañ ko parkal la indi nañ ko dëgg la lépp lu jaar ci sa loxo rek ñëw na ñu di leen di sant di leen di gërëm waaye fi mu ne nag dengoot na dengoot mooy déglu sëriñ Gana mu dikk ak nun waxtaan ak nun mhm. waaye sëriñ Touba ak turi téere ak sëriñ Touba ak turi doom ak sëriñ Touba ak turi dëkk euh, jërëjëf noo ngi dellu siwaat di nuyuwaat bokk yi bu baax euh, turi téeréem ak turi lëkkam it ay téere moom kenn xamul yépp loolu bokk na ci lii nga xam ne ay lim naan kitaabati min mu'jizatil muntaqa sama mbind sama téere yi ci mu'jiza yonent bi ci miracle ci la bokk mhm. ñu koy xamee lépp loo xam ne daf koy bind boo ko dee xool bu dee jàngale téere buy jàngale tawxiid la wala téere boo xam ne day jàngale tasawuf wala muy téere boo xam da ciy tagg yonent bi alayhi salaatu salaam muy tuddee téere yi rek ci ngay xamee ni muy demee bu téere bi mu jàngalee tawxiid tuddee ko mawahibul quddus nga xam ne day delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala ndax may yàlla la koy la koy tuddee waaye noonu la téere yi mu tagg yonent bi salaahu salaam it nga xam ne tey fi ne da ngay fekk ci biir ay téeram yoo xam ne fattul fattaax fii masxel miftaax nga xam ne xasida yooyu fi ne da ciy wax sax wax yu yéeme xam nga ci lay waxe naan xad euh, di jaxaltuhu turaba naalihi yaa laytani lahidani bi fadlihi di wax ne yonent bi saa sallam euh, sama lex bi dama koo dugal ci ron ay dàllam da tànk yonent bi sallallahu alayhi am na it ci lay wax ne bi sallallahu alayhi wa sallam day bu doon dox ba war a joggi ak dégg sama lex bi laay dëpp ci ci ci dégg gi yonent bi taxaw ci beneen beneen beneen beneen beneen lex bi xaddil wiqaayatu rijlil mujtaba shawkatin wa ma yudaha aqraba ci biir xasaa yi di gis nga tur yi mel fi ne xoolal ni ma la waxee léegi fatul fata wax la xasida goo xam ne tey boo ne woon mafatihul bichri fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna nga xam ne xasida gi xoolal ni mu ko côté nga xam ne mafatih la jël muy jamu miftaax wax ne al amnu muy muy nga xam ne sécurité la ak mbégte ak ajana mafatihul bashri wal amni wal janna waaye ci fan fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna nga xam ne ci julli ci yonente bi alayhi salatu salaam nga xam ne xasida goo xam ne dañuy wax ne sëñ bi nee na koy jàng sunu borom jéggal la muy mafatihul bashri <laughs> sëñ bi mas naa wax ne bari ne lu waaye ñàkk bu ko taxawoon dutu ko ñàkk na ahmadoo nga ca bashri loolu boo xoolee it yenn yi muy tënk ay nga xam ne ay aaya alxuraan la koy la koy tënkee mm-hmm. comme tey jii fi ñu toll nii boo xoolee wakkaan xaqan alaynaa nasrul mu'minin noonu nga xam ne moom xasida goo xam ne sëñ bi da cee jàngale yu bari te ba ci biir xasida googu di wakkaan sëñ bi da cee waxum ci yu bari fi ne mën nga cee jël diggante boo xam ne da ciy wax ne entaytan lil jamia duuna salabi wali taqulu suula waxta bi maanaam lépp lépp yàlla jox na ma lépp waxtu yu ma koy sàkku nga xam ne waxtu yu ma koy bëgg suñ boroom jox na ma ko nga xam ne it wax na ca ne mboolem lu gaa yu baax yi doon bëgg womatal na ma ko jox ma ko waaye jox na ma it loo xam ne yéem na gaa yu baax yëpp loolu day mel ni eh, melo la waaye ci biir xasida gi it da fekk delloo gi muy delloo lépp boromam nga xam ne malaktu rabbi maliki kulliyati xaali lahu ka amali wa niyati nga xam ne kon sama bopp sama jëmm sama yéene sama lépp delloo naa ko ci yàlla borom bi subhanahu wa taala loolu it ca biir mu ca wone ne moom kat yàlla setal na ko ci lépp loo xam ne bokkaale yàlla la ak nafiq ana bara ilaahi mi shirki wa min kulli nifaaxin wa saadati damin loolu ci biir mbindam rek nga xam ne ay ay ay téeréem ni nga koy xame nga xam ne tey tur yu baree baree bare lay lay lay làmboo te tur wu ci nekk rek maanaa mi mi làmboo ci biir nga xam ne fi ne tey boo xooloon tey xasida gi ñu tudde làkkub Tuuba fi ne baatu Matlabul Fawzayni mën naa bañ a tekki làkkub Tuuba waaye lan lay lan lay tekki muy sàkku euh, texeeg tey ëllëg nga xam ne tey ci biir boo jëfee li ci nekk noonu nga koy amee nga xam ne nga li ci nekk boo demee ci mat la bu shifa yi nga xam ne sàkku saafara nga xam ne ci biir xasida gi yaa man yarumu dafa ku la da falaa tufaarix mat la ba shifa yi mi nga xam ne da ngay bëgg a euh, tàggoog bépp tawat bul tàggalikoo ak mat bu shifa yi nga xam ne xasida la koo xam ne bi mu koy bind ci ay ay ay xat-xat yu métti la ko fekk daanaka la ko fekk muy wax soxna aw bu su di bind nga xam ne ca biir dégg nga wàcc ki ami na dar xal masani ata arani moxtadar loolu wane xasida googu tey lim làmboo ak nim mel ci ay biir nga xam ne ñaan na ci lu ci nekk suñu borom barabu jafe-jafe mën di fa yombal ñàkk mën di fa wërsëg lu ci nekk sëñ bi daf koy daf koy def mu delluwaat ci moom gis nga fattul mën naan fii jawaabi abdourahman nga xam ne taysirul xaafir fii jawaabi abdul qadir nga xam ne ku xasida xoolal taysirul xaafir fii jawaabi abdul qadir da cay wax ne wa kun uqayya kaatiman lil xasanaat kama takunu kaatiman li sayiat loolu mooy dëgg-dëgg ixlaas day wax ne li ngay jëf ci lu baax na nga koy nëbb li ngay nëbbee lu ñaaw mhm. ginnaaw boo defee lu ñaaw doo ko wax kon lu baax li jërul wax ndax yàlla xam xam na ko kon wane wane ixlaas rek sellal ci bañ li ñuy tuddee ngistal tàbbi ci jën di jëf ko sëñ bi di waxe loolu xasi dugu tëdi sirul xaafir la am na tey euh, fatxul mën naan téeréem delloo ci borom bi subhanahu wa taala leen lu ci nekk daal gis nga bu dee toxfatul mutadarriina nga mhm. ne ki ki ki jëm ci torox lu jëm ci boromam ab kadoo ngi noonu boo xam ne yóbbal la boo xam ne mën na koy mën na koy yóbbal jasbul xuluub lii xëcc ab xol di ko bijj te yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ciy tagg nga xam ne li mu tagge yonent bi ci ci ci ci jasbu rek misaal bi mu ko wone doy na ci wala si faaqa siwa min al baraya bi huda ata bada kalbu sama fi arshi li wasallim sarmada الذي خط الرداء بليلة خدو فيها مديم المعظم ليلة ماوت النبي ليلة ماوت يبي ليلة ماوت أبي وتور سيت عزمي بالنجاة والفلاح مع سرور والنجاة بها ربا والصلاة ما اندفاء نغمي هوى الخوارب بدت عن الروات ثبتت كمثل نار أرفعت ما معي دخمي وأين ساوة التي خرسمت وجلتي للفرس قبل الملة وسيرار كالعظم كانخداد سوابي طردا لآل ريابي عن سمي أخبار النبي ورجو بالندم ترد في آب نجوم عن السماوات رجيم وفرغ سرا يليم بوزبع عيسى وكمي سترين ولدا خير نبي قد بدا سلا علي من دا فؤادو بلكمي نور نسيم قد يرى بخسور قيسرا من كان في أم الغرى مكة خير الغرم ما شاء الله kon gis nga bu dee xasida yi noonu jës bu noonu mu mel na comme téere yëpp téere bi dem yëpp noonu muy delluwaatee ci ci loolu noonu la meli ci tur yi e, doomam xam nga Sëñ Tuubaa dara am génnul yonent bi alayhi wa dafa wax ne jumlatu maali wal midaadu wal xalam hadiyatun lil bi babi niam sama samay xalimaag sama daag sama lépp addi rasulullahi jottu lahul yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fi jox ko sama ruu jox ko samay wayjur jox ko samay doom jox sama alal cofeel googu maam ci moom moo tax moom leen amul lu muy yëg ci xolam lu dul rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xam ne bëggam gépp xam nga guddeem ak bëgg ko mooy guddeem ndax ba muy wax ne bilaa anan bi kaw ni xadimul mustafa tatabayanu nga xam ne day wax it ala junnati dunya wa uxra wa jannati ala man nahaari saara min xubbihi layla mooy sama pakk mooy sama ajana bëgg gi ma ko bëgg nag tax na sax samay bëccëg doon yu guddi ci man nga xam ne bëgg naa ko ba mooy sama ajana mooy sama aj mooy sama lépp mooy sama royteef mooy sama ndàmm moom laa denc ala xudwati kanzi wa jaahi wa xisati nga xam ne maanaam maanaam bëgg yonente bi salaaw salaam Euh, bëgg gi ko bëgg dafa feeñ ci biir ay mbindam ak jëfam xam nga yonent bi bëgg ko dafa am nuñ koy bëggee dafa am ay alaamat mandarga yu tegtale bëgg yonent bi bu doon ay point point bu ne sëñ bi daf ko rempli xam nga ki egg ci ne maxat maxabatil muxtar sayyidina xubbil maganiya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaa un lahu abdan xadiman lahu muskaan li sanada sama xol boo ko lambee doo ci fekk dara lu ma yonent bi alayhi salaatu salaam li sëñ Moussa Ka naan boo ko tuddee mu daal di ree giñ naa ne daawunu soree moom boo ma saa bëgg a gis bëñam dëgg rek tuddal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne bëgg gim ko bëgg jeex gim jeex ci ci alayhi salatu salaam nga xam koo bëgg ba waxtu wu nekk day kër-kër yi rek jëm si si ci moom nga xam ne da koo fàtteloo sax lenn lu nit war a bànneexoo bi man bi xobbihi nasitu layla wa dahaban wa fidatan wa xayla bëggatuma wurus bëggatuma xaalis bëggatuma ay naari góor bëggatuma sama xol daal kenn ci nekk muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam looloo ko waral bëgg gi mu ko bëgg mu di ko yóbbu ci muy wax ne ah, ah, muhammadun dikruhu unsi wa mafraxati wa nuuru qalbi wa aadai wa raxaati maanaam foo gën a wéet gën a sori boo ma fa yóbboo boo tuddee rasulullahi rek wéttiliku naa mooy saafara sama sama yaram mooy tàggat wommat sama ruu ngir bëgg ma bëgg alayhi salaatu salaam kon moo tax loolu muy feeñee ci biir ay mbindam xasaa yi tamit noonu la feeñee ci biir ay turi doomam comme am rek yonent bi la ko tuddee hmm. lépp da ko delloo sallallahu alayhi wa <clears throat> moom sëriñ bi nga xam ne tey jii ba ci ñi ngay tudd xam ne ñenn ñi fekkee nañ ndax sëñ bi dafa euh, dafa jaboot ndax am na xam ne dañoo teel a dañoo teel a teel a làqu hmm. ci waxtu wax ci raw waaye boo xoolee Cheikh Mamadou Moustapha yonent bi sallallahu alayhi wa la ko duppee mu feeñee daaru salaam boo xoolee Cheikh Abdoul Fadal yonent bi la ko duppee te tey bu fekkoon ne Cheikh Moudou Moustapha la tuddee yonent bi alayhi salaatu salaam rek te nga xam ne dafa donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la baayam tudd Aminata mooy yaayam dafa donn alayhi salaatu salaam moom Cheikh Moustapha waaye sëñ Fallou moom noonu yonent bi la tudd Mouhamadul Fadal Cheikh Mouhamadou Lamine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la tudd Cheikh Mouhamadou Lamine Baara nga xam ne moom dañuy jàngal sëñ bi di wax ne saakal xadimu la si maa mislahu ahadu man saara anu xatallah au sëñ baara nee na ku mel ni sëñ Tuba amul daan ku ko siyaare tàggoo ki bakkaar maanaam ñeent fukki at <clears throat> ak juróom la dund xoolal lim sëñ ciy dëkk lim taalif ci ay téere lim defar ci aw nit xam ne ku dul sëñ bi ci yoon rek moo la mu bind ak lim gàtte aw fan ci saa ah tur dafa am solo waaw <coughs> nga xam ne hmm. waxtu wi waxtu wi muy muy feeñ mooy waxtu bi sëñ bi nekkee Touba gërëm mag ñooñu mu tudde ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Muhammadul ah xam ne mooy Amin doomi Lamine di sëñ Moussa Lamine doomi Lamine dafa boroomi xar baax ba mu nekkee ca géej gis nga kim amaat muy Cheikh Abdoul Bachir mhm. mu Serigne Bachir mooy mu tudde ko yonente bi alayhi salaatu wa salaam ah, nga xam ne booba ma nga ca géej ga nga xam ne sëñ Bachir ak Achiru ñoo bokk at sëñ Moussa Kana déglu ma wax la la waral màggal ga nga xam ne Cheikh Bamba demam nga taarix ba ama jeesi mooy at ma moo di lëlub Serigne Bassirou Mbég mi 1895 gi mu demee ba egg ci géej gi ci la sëñ Bassirou feeñe jamono mm-hmm. waaw nga xam ne loolu euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam la la ko la ko la la ko dellawaat gis nga boo seetloo fi ne état boobu bi muy nekk ci géej yëpp ne ci liggéey bi comme am gis nga turu Mouhamadul Moustapha Mouhamadul Fadilu Mouhamadul Bachir Mouhamadul Aminu noonu ma koy tuddee bi mu jógee ci géej gi ba ñëw nga gis ñim amaat tur yi ni muy dellawaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne abdu yi muy jël abdullahi abdul ahad abdul samad noonu mu koy delloo ci lépp abdul xaadiri yépp day delluwaat ci yonente bi alayhi salaatu salaam ndax bi mu jógee ci géej gi ñii la am ñett ñii bi mu leen amee dem ci géej gi sëñ Basiiru ci jamonoy géej gi la feeñ jamono waaye bi mu jógee ci géej gi ba ñu xam nga am na njaboot goo xam ne feeñaat nañ nga xam ne bi mu nekkee gànnaar bi mu nekkee ciyeen nga xam ne sëñ Abdoulahi fa la feeñe sëñ Abdoulahi borom dër bi <coughs> nga xam ne bi muy feeñ la sëñ bi taalif. Euh, xasida min euh, al xaq moom it yonent bi alayhi salaatu salaam moom moom sëñ Abdoulaye borom dal bi nga xam ne sabihu sa sayxin saa wasina jamaal dañuy wax dafa nuru sëñ Tuubaa ci lépp moom sëñ Abdoulaye sëñ bee ko yar. ci gis nga tur woowu ni muy delloo ci ci yàlla gis nga léegi fii ne bi muy nekk ci géej gi mi ngi def tudd ci yonente bi bi mu dellu siwee nag nga xam ne dëgg-dëgg jaamu bi yàlla bu wér la gisal buy delloo doom yi ci li muy wax mën ka na moom mën nga xam ne loolu bi mu ñëwee ci bi mu ñëwee bi mu ñëwee njëriñ nga xam ne noonu la melaat nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad xool Abdoul Ahad moo ko jëkk a tudd ci jamono Abdoul Ahad moo moo ko jëkk a tudd ci ci jamono moom Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne tey moom it bi mu feeñee li suñ Tuubaa wax ñëw fekkul jamono ko gën ko gën fekk ko jamono Cheikh Ablaat sëñ Tuubaa wax ne am naa ci moom yaakaar ah nga xam ne lañ ko daan tagge yum naahu baxru nada yusraahu sayfu rada yuli aadi wu taxibba maamu moom Cheikh Ablaat foofee da nga fay da nga fay fekk sëñ Abdul xam ne Cheikh Abdul Xadir tur wi dara mooy bi mu feeñee jamono rek te sëñ Tuubaa jox borom daaru ndigal mu mu mu wutal ko aw tur maqaamam dafa tàmbalee ci koo gis borom daaru borom daaru gis la rek sa araamal na sawar nga xam ne maqaamam moom la Cheikh Abdul Xadir indaale indaale jamono nga xool tur woowu xool Abdou Samad xool sëñ moom sëñ xul Xadim moom it ni muy delloo ci yonent bi Cheikh Ibrahima mi sëñ Ibrahima Mbàkke mi ma doon wax léegi nga xam ne sëñ bee ko waxoon nag tukkib géej gi yaa ma koy mottalil ndax juróom la waroon a doon mhm. juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer la sëñ bi def ak kii kii sëñ moom moomu di doomi sëñ Tuubaa moo ko mottalil tukki bi sëñ Ibrahima mottalil tukki nga xam ne ñetti yoon la ko sëñ Tuubaa feeñu feeñu na ko Mbàkke feeñu na ko Louga feeñu na ko Ndakaaru na ko boo nu waree nanga ma demal ci mottali jël ma sama jéego yooyu nga xam ne moom it noonu la demee noonu noonu suñ suñ mu mel nga xam ne it tey boo xoolee Cheikh Souhaïbou Serigne Souhaïbou nga xam ne Serigne Amadou Diagne Serigne Souhaïbou weeru koor la feeñ jamono weeru foor weeru koor la ñibbi nga xam ne mhm. sëñ bee ko tàggatal boppam nga xam ne sëñ bee ko jàngal buy yëkkati wax bismillah sëñ bee ko wargaal it war nga yaatu won ko nag damaa bëgg nga tàmm teraanga nga xam ne benn yoon la ma sa tukki moom Serigne Souhaïbou génn naa tul Touba ba ne ñibbee àjjana féetewoo jàng ak jàngale alxuraan ni mu ko tuddee nga xool gi noonu mel xool Cheikh Mahamadul Mourtada nga xam ne mm-hmm. euh, mooy mooy mooy mooy mooy caatum Cheikhul Xadim daa moom la ñuy tudd al mujahidul akbar nga xam ne tey moo toj adduna bi yëpp ci yeesal yeesal islam ba mu nooy ba mu nooy muy Cheikh Mahamadul Mourtada loolu te li ci yéeme mooy kenn ku nekk gis nga Mourtada ji daa mujj nga xam ne mooy ku gërëm ki ki yëpp daje ci moom Mursala moom nga xam ne moom moo lim caat fi ne mën ngaa jàng ci moom maa salaami li yaqudu mu fexma dawil xila uri xaqat af xama sëñ Tuubaa dana yàlla damay womatal waxtu wu nekk luy weddam loo ñi may bañ ak di ma weddi mooy mbiram ni muy gën a jëme kaw di ko doxe moom nga gis sëñ Mouhamadul Mourtada moomu tey ni mel nga xool Serigne Saalih Serigne Saalihu nga xam ne tey sëñ bi bi Serigne Saalihu moom it misaal moomu borom jamono de jooy na juróom de jooy de jooy na jëmmi sëriñ saaliw daara yi jooy nan jirim yi jooy nano jëmmi sëriñ saal makkata jooy madina jooy tuuba de jooy borom jamono jëmmi sëriñ saaliw alxuraan de jooy na andi xasaayit de jooy na sunu sang ba jëmi sëriñ saaliw iraam jooy yow yaramal alaa bi ndefi la la daan ni at mu ne balay cey say xuna sëriñ saaliw laa ga yaatuna yarmandeem ja yaatuna bëggung dawam ñi yaatuna cey Sayxuna Serigne Saliou addi Serigne Saliou waaw kon lu sëñ Ablaye mooy boo xoolee mbind ay mbindam ay turi téeréem bu dee turi dëkkam it noonu la mel li nga wax ci noonu waaw noonu mel nga xam ne soxna Fatima ok mi nga xam ne moo di ab taawam soxna Fatija mhm. nga xam ne moom fekkee na jam sëñ Morante Sali nga xam ne soxna Fatija moom ak sëñ Masamba mooy mooy mooy taaw sëñ bi nga xam ne boo tàmbalee ci soxna Fatima ba ci soxna Maymuna kenn ku ci nekk xool turi doomam yu jigéen yooyu ak niñ mel eh. am na sëñ bee ko seereel ne murid saadix la nga xam ne boo ne soxna tey Fatima soxna Fatima muy soxna Fadja waaye nga xool soxna soxna may muuna muy soxna may muuna Kubra nga xam ne soxna may xoolal li mu baree xam nga xam ne moom moo moom la sëñ bi doon wax ne da koo da koo dindiloon ñagg-ñaggi xolam moom soxna soxna may muuna mooy ba Cheikh Sidi eh, wane wane sëñ Tuubaa doomu jigéen di bindub kaamil dëgg la moom it soxna may muuna bindub kaamil ba nopp togg cere sëñ bi daal na nag bu ma nee bind kaamil it mënta togg cereñ ndax su ko bind kaamil moo bind moo togg cereñ moom it dafa way ci sëñ bi lu bari bokk na ci euh, lu muy wax ne boo fekkee da ngaa réere sëñ boo ko bëggee xam mooy ki doon rasulullah sallallahu alayhi wasallam daal di wax ne mooy koo xam ne nag ku ko jàpp te déngi-déngi woo nee na kaw rek ngay jëm doo jëm suuf fa man tamassaka bi cheikhina bila shakkin wala tazudu la naalal xula ena loo xayru min assudaani fi charq wal maghrib wal bidaani mu soxna Maymuna noonu noonu soxna Assu Gaawaan soxna nga xam ne muumina muslima moxsina maanaam lépp sëñ Tuuba ci biir njabootam day delluwaat ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam delluwaat ci sunu borom subhanahu wa taala nga xam ne dara gi te kenn ku ci nekk la sa tur di représenté sa jëf noonu lay mel nga xam ne dangay ngay taxawee boo ne mumina gëm yàlla moxsina rafetal ga muslima jullite ga melaw wu nekk nga xam ne kenn ku ci nekk ci ñoom noona muy doxe ak cër ba muy am làmboo ko nga xam ne cërub góor lay doon taxawaay booba lay am ci wéetal yàlla soxna moomee ngi noonu nga xam ne tey taxawaay baag mën a way ga ak bari xam-xam ga ak sàmm ga ak baax ga ak ragal yàlla ga ak sell ga nga xam ne tey sëñ Touba la yàlla barkeelal ba maanaam sëñ Touba mësta amal doom adduna comme am rek jëm na ci boromam subhaanahu wa taala te war may góor jaag jigéen ñi ñoo cay yem ngir melo yu rëy yéen yam ñoom ñëpp ci yàlla la ñuy jëm kon loolu mu mel ci ay ay mel ko ci turi doomam noonu la turi dëkkam am moo dëkk bu mu moomal boppam sanc ko ak dëkk bu mu joxee ndigal ñu sanc ko ñoo yem bu dee dëkk bi njëkk a sanc daaru salaam la tudd dëkk boppam Touba la tudd dëkk ay daaru lay doon daarul moxti daaru saami daarul mannaan daarul rahman daarul quddus daaru daaru lay doon ba ci boo demee ci Thièyeen daarul quddus daaru rahman ma fa soxna Fati Isa nekk way juru Cheikh Ibrahima loolu lu muy wane rek mooy sëñ bi léppam da ko delloo ci borom bi dellu maanaam malaktu rabbi maliki kulliyati ja mooy sama lépp moomale naa ko yàlla loolu moo wér ci Cheikh Amadou Bamba sëñ ganna euh, gannaaw njabootu boppam gi mhm. bi sëñ bi woote itam dafa am ay jam ay ay ay ay ay góor yàlla yu àndoon ak moom bokk na ci ku mel ni sëñ mën dumbe ndax mën nga ñu see ñëwal tuuti waaw xam nga sëñ bi dafa woote mhm. ay kàngam topp ko li may wax moom kenn mënu leen a matal ñoom ndax ñoom xajul ci guddi. xajul sax ci ak dund mu ne su ko wax. dëgg la mm-hmm. waaye Cheikh dafa sant Mbacke. bokk ak sëñ bi ba noppi jaay lim bokk. sëñ Mbacke Kajoor muy sëñ Mbacke Ibra nga xam ne rakki sëñ Mor Anta Sali moom la sëñ bi daal wax bàyyi. mas naa wax sëñ Touba ca ca ca Mbacke ca ca ca ca Touba na ko. lii ngay liggéey saa yu ñëwee bul fàttee Mandoumbe ay ma faal. Mm-hmm. am na Cheikh Mandoumbe. Mm-hmm. moo jëkk jox sëñ Touba junni. fi ne dafa yoo xam ne ñu ko jëkk a def fi ne jëkk a doxal sëñ bi nga xam ne bi bi bi bi mu demee bay war a yónnee waxuma jamono yi muy ànd ak maam Thierno ma Massamba Diop Sam waaye yónnee ab yónnee ñu dem doxale ko ko ci dëkk Cheikh Ibrahima Sall ko jëkk a def Cheikh Mandou Mbaye yaatu waar te mbay ma wuutu na jaar xandoor wa damm na ci waar waaye Mbàkke Balla wàcc na Cheikh Badou Mel yaa doon Adama ba ma wuutu na jiyaar xandoor wa dam na ci waar waaye mbag Yàlla wàcc na Cheikh Mandumbe mooy mbokkum Serigne Touba cosaan <coughs> ci maam fa Poroxaan moom piir la ndey ja dub sayaan waaye mbàkke bal la wàcc na Cheikh Mandoumbe mooy mbokkum Serigne Touba am cosaan ci wàllu maam ma baraaxaan moom piir ndey ja dub sayaan waaye mbàkke bal la wàcc na Cheikh Mandoumbe Cheikh Bambalee baa la dajeel ngir ñoo nuroo woonu cofeel Bamba xaroon leen ngi niil ak wëcci néegi aljana cheikh Mandumbe Xabaan maami Serigne Ibra Khoudia cheikh Mandumbe Xabaan cheikh Mandumbe Xabaan moo yaa kanam te yaa gannaaw te ñàkk jam-jamum gannaaw mësula jëf-jëf ju ñaaw joo xam ne jëf ko jombe na cheikh Mandumbe daara ju mag naa ko yaa di mag ngaloo ki jaam yu magi dem na limaam ngir Congo bel sori na Xabaan bul déglu rambaaj toppal sa mag te di ko laaj ndigal lu néew maj la xaaj ngir yàqkat yi bari na ngir seeni ndeyay sa ngi jigéen seen baay raw ci wile yoon seen nijaay a gën ñëwoon seen tëb tëbin nga kawe Ibra Fall dem ci wom sa sin Cheikh moo dundumbe tem ci tem sa sin gaal ga tardana asaabul kafe nga jinaan seen xaj ba foofu lay fanaan te benn xaj du dem jinaan ci mboolem xaji àdduna Cheikh Mandumbe moo jëkk a joxe junni mhm. dafa jaayoon aw santam mhm. sant Fafana wax naa ko léegi dëgg la ngir mën a liggéeyal sëriñ bi dëgg la moo tax sëñ Moussa Ka wax ne yaa defal Cheikh Ahmad ibnu Saïd gëm gu ànd ak dëggal ba am ridwaani Cheikh Mandumbe gëm gi dafa ànd ak dëggal ba tax mu am ridwaan ni muy ngërëm boole woon pas-pas akuk dogu bokk ci ñi nga xam ne hmm. bi sëñ bi demee ci géej gi tubaab bi taal na kër maam Thierno ñetti yoon ñetti yoon tubaab bi taal na kër borom daaru gi ñetti yoon borom daaru di fanaat ak njabootu sëñ Tuubaa gi ci bitti saa yu ñu ko taalee Cheikh ma dumbee koy defaraat sëf yi mu daan sëf muy dem kër sëñ Touba dañuy rombante te bi muy wàccub liggéey dana naa dem déndey ndax bëgguma sëñ Touba woo ma ëllëg ma dekkee furu moom Cheikh Mandoumbe Xabaar téeméeri junni la sasowoon ci jumaay njaareem ci yooyee jamono téeméeri junni hmm. jamono yi 1918 lan la téeméeri junni représenté woon moom la sasowoon te yëqut addiyaam moom Cheikh Mandoumbe cinq mboolem feppi suufi ci njaareem mi ngi seere ne Murid Saadix seeroo ko Cheikh Mandoumbe Xabaar ci jëfam ak dogoom ak pas-pasam bu dëgër ak jëfam ju yaatu joo xam ne boole ko jaay lépp te mën a defar maam sëñ Maam Mor te jàmbaare. ku bëgg maamam te jàmbaare ku bëgg jàmm maamam lool te jàmbaare te maamam yor ko. nga xam ne amul benn mandarga moom sëñ Maam foo koy bàkk. wallaahi ci maamam Serigne Cheikh Mandoumbe xabaar. wala mm-hmm. mandu ak liggéey ak jaamu yàlla. Mm-hmm. bëgg Cheikh Mandoumbe la. bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxaw ngir nit ñi mën a gis liggéeyu Cheikh Mandoumbe xabaan muy sëñ Maam Mor mu sëñ Abibu yàlla ko mm-hmm. yàlla dëgëral kon Cheikh Mandoumbe ngi noonu bokk ci ñi jëkk a jaayante ca Mbàkke Kajoor jaay lépp mës a teg ginnaaw noonu la taxaw Cheikh Moustapha noonu la fi nekk bàyyi dara moom Cheikh Mouhamadou Bamba Xabaar Cheikh Issa Diène waaw ah, Cheikh Issa moom gu gàtt la waaye gu bari lu mu dajale sëriñu sëñ Bakké dëppum néeg la bàyyal sëñ bi dëppum néeg sëñ bi woo suñu Omar Anta na ko demal wol ma mu ñëw mu nangu gob bi na ko boo yend woon a bay ba ngoon nit dana falu folliku nit amub cëram xeeb ko moo tax Cheikh Ibrahima Diop almasah dane xaasal mafaaxira isa jenn soo kërami wa faasa bil mooy ki nga xam ne moom Cheikh Isa Dieng hmm. mooy soppeb Serigne Touba mooy lamp bu yoonam ku tegu ci moom doo lëndëm moom Cheikh Isa Cheikh Mamadou Lamine koy tagg dane wa minhumul muridul maaruf bi usnul qiyaami bokk na ca murid bu dëggal ba Isa Dieng mësta xeeb benn occasion fu lu baax ma sa nekk jël na ko yët sëñ daana wax ne mënumaa hmm. def ci sama kër gi dara ba ci xalima yi may binde lu ma laal mu ne bul fàtte Isaa ak waa këram bul fàtte Isaa Jenn ak waa këram moom si Isaa Jenn am na am na am na maqaam mu toll it egg ci sëñ Tuubaa toog na bis na ko Isaa yàlla may na ma tey ñeenti téeméeri may ak ñeent fukk ak ñeent wala wuy jëkk amu ko ma jamonoonteel amu ko wuy ñëw sama ginnaaw amu ko saali xam ne yépp ko xemmem Seex Isaa ne ko est-ce que ko may naa moom la moom la joxoon jumaay njëreem ji moom moom moom Cheikh Issa mu nekk koo xam ne it taxawaay bu rëy lu ma sa dégg ci ndigalu Serigne Touba mosu caa dellu ginnaaw moom Cheikh Issa Dieng lu mu am yët na ko Cheikh Amadou Bamba moom moom Cheikh Issa Dieng moo tax Cheikh Ibrahima Diop Almasar nee na addiyey Cheikh Issa Dieng kenn mënu koo lim xalima mënu koo bind am xel mënu koo takk moom Cheikh Issa Dieng radiyallahu taala nekk koo xam ne it léppam da koo jeexal ci Serigne Touba mhm. gis nga nii mu mel ci meloom wii noonu la meloon dafa nur sëñ d daawul muuru moom Cheikh Issa señ bee ko joxoon ndigal ndax dana ko da ngaa nuróog Seydina Isa ba ci leel gi yonent yàlla Isa ba ci leel gi muy warmaale bopp bi loolu moom moom Cheikh Isa Diène radiyallahu taala oh. am ci sëñ Tuubaa cofeel ba mas nay daaj di gis sëñ bi di jàkkaarloo sëñ bi di daaj baaraam moom Cheikh Isa Diène ndax taxamtiku gi muy taxamtiku ko gi Cheikh Amadou Bam moo tax sëñ Moussa Gane la ku weddi li demal laga Isa Dimba Isa Dimba moo a gën mm-hmm. ah, moo manu gan yaaram la utela sa gan bamba ko ñaa ci xarnu we bamba ni woon se xisa jenn demal gan ba ma ma fekk laa la fa gën yaa ma gënal ña fa ne mami sëriñ naar jenn baax bay Cheikh Abdou Salam jenn Bamba woon Cheikh Issa jenn Bamba ni la gën ba ma ñëw ma fekk laa la fa gën yaa ma gën damba sëñ si dinaar gën dëgg dëgg la kare bi mu gërëmee sëñ Baara Jenn dana ko yàlla gërëm na la yonent bi gërëm la sa baay Isaa Jenn gërëm na la te ca góor yàlla ya la bokk sëñ Tuubaa ko seeral ne ca góor yàlla ya la bokk yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na bàyyi gërëm na la te ca góor yàlla ya la bokk loolu la ko waxoon Cheikh Isaa Jenn dafa doonoon borom cër bu rëy te bari xam-xam ba noppi nëbb xam-xam baab lépp di liggéeyal Serigne Touba lu mu am jox Serigne Touba nga xam ne bi sëñ bi nekkee ci yéen noonu la daan def di wut ay gàtt mhm. di ko defarlu ci jamono boobu wut ay ay nga xam ne li ñuy tuddee miche bi daanaka booba da koy defar ba mu egg def ko ci ay gaal yan ko ay nit ñu di koy Serigne Touba ci ci Ceyeen Jolof nga xam ne daa mujj ndànd jàll yi dafa defoon nii ci béjjëni nag ak i gàtt ngir yim daan defar di ko yónnee Serigne Touba moom Cheikh Issa Diagne maam Sëñ Ndiaye borom waxi njëriñ waaw Cheikh Ibrahima Fall lamp kooku Cheikh Ibrahima ji mooy ki nga xam ne day mayu yàlla ci biir Sëñ Touba moom Cheikh Ibra Cheikh Ibrahima Fall dafa jaay lépp jox boppam sëñ Touba. Ah, dafa am ku ko bind. di ko tagg sëñ Moulay buso moom sëñ Mbàkke Bousso ko jur. bi mu koy marsi yàlla dane xat baayaa cheikh xidaman xaadiman fatina yabxi ridaahu anu yaxmilal kulafa hmm. bu yàgg la jaayante woon ak sëñ Touba moom Cheikh Ibrahima Fall. waaye ba mu jaayanteeg moom bu yàgg nag da caa boole di ko liggéeyal doon ku xelu moom Cheikh Ibrahima Fall am na naar boo xam dafa bindoon ne man shakka fi Ibrahima Fall wa fi tariqihil kamal in lam yatub lisil jalal yaran asaban xad nakar ku sikki sàkk Ibra Fall sikk sàkk aw yoonam nee na boo ko tuubul boo faatoo faat boo faatoo dem sawar ganaar na kur kureer moo daawul doxi yaa yóbbu mbaaxaan ca xafoor faal yaa tax ba xol ba dootul fuur yaa tax mu sànni yetu buur foofu yetu ngam di laaj pexe mu daal dem tey ba Dakar ñu dégg Bamba di fa xaar wóolu na sëñ tey ba Dakar cim njàng lay xamee pexe Cheikh Ibra Faal jaraw lakk ku la bañ faal dina lakk yowmal xiyaam ku ñu fa lakk dala bañoon ci xarnu bi xemem la rek faal moo tax ñu doon sa bàyyi faal faaw ci baatin lamp yaa nuy suturaal xemem la faal moo tax ñu doon sa faal faal Cheikh Ibra Faal yow de yaa nuy suturaal su abadun rasulullahi sarmada dëgg la ngay Babacar Sadiq rafiqi ahmada Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Amadou Fall Sayer Ndiaye maami sëñ Modou Aminta Fall maami sëñ Modou Aminta Fall jàmbaar je Cheikh Modou Fall lu Fall maami Cheikh Modou Falilou Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra lim am kat du jeex faal loo ko ñaan mu may la loo bëgg a dem waay faal demal fa moom mu may la sëñ Tuubaa ne na woon sëñ Abdou Karim Touré nee na dimbale ma nag munul munul jeexee noonu Birahim Fati isama ca pencu boppam ba bàyyi Cheikh Awa Balla Modou Awa Balla Ousmane ak Aydara waaw damay fëxal rëbbkat boo gis kuy fëxalee mbokkam moom bu ma waxee loolu dina kontaan ndax ñoo bokk daaru muxti damay daanele Cheikh Ibra sëñ Abdou Karim Touré dane woon sëñ Tuubaa day waxtaan ak sëñ bi ak moom ci Cheikh Ibra ma muy jeexal sëñ Tuubaa na ko Abdou Karim mu na ko Bakke ma ne ko loo man a gis Ibra Faal raw na jël baaraam bi teg ci bët bi Abdou Karim loo mën a dégg Ibra raw na te Cheikh Abdou Karim Touré moom bu léegi wax sëñ bi kenn la ci magi sëñ bi mën a bind li Cheikh Ibrahima Diop almachir doon bindee maa ngi di ko bind noonu la doon bind te sëñ bi boole sëñ bi may ko cir yu bari Tuubaa nee na ko bi sëñ Abdul Karim sa jëf yëpp yàlla nangu ko mës sa gàntal sa jenn jëf am nga ne sëñ Bamba bari la ah. xaju ci xaju ci ah. sëñ bi sëñ bee ko yar li sëñ Musaa Ka na jàngal alxuraan ak xam-xam Bamba jàngal alxuraan ak xam-xam jàng liggéey boole ba am ndam kere ba mu feeñee jamono ca Poroxaan waaw ba bis bi muy ñibbi mës sa tàggoog ndigalu sëñ bi ñaari baat yi sëñ Tuubaa bind rek doy na lam yu xaalif nii lam yu faarix nii sëñ Tuubaa nee na cerno jooyoog man mës ta wuuteeg man juróom-ñett fukki at la dund yu manqué ñeen ñeenti weer ñaari yoon la mës a tiim ba mamee ndox fay na ko moom borom darul moxti mës ta amub dëkk dañ daan wax na xanaa doo am kër 1912 la door a amub dëkk moom maam cerno muy darul moxti 40 kilomètres kaale mu gor ko moom cerno ibrahima bi sëñ bii dem moom la dénk njaboot gi moom la yónni woon ndar moom la fi bàyyi woon dara yàqut moom Cheikh noonu la ko delloo ci Serigne Touba njabootam gépp da ko delloowaat ci si Amadou Bamba mës a dara sëñ bi dénk ko yoon wi moo tax benn waykat nee na ko bushraka yaa cerno ibrahima bushraka fuxtal akabira na xaw mawlaak fa yàlla nga jiitoo gaa ji yow cerno ibrahima jërëjëf ma yóbbante ci euh, sëñ Gànna pour mu ñaanal euh, Bougane euh, santal leen ko itam ci taxawaayam ni mu taxawee ci weeru koor wi waaw waaw mu jeex waaw waxtaan bi neexoon na lool mais euh, waxtu bee ñu dab donc ñu bàyyi la rek. go sëñ Gana Messere. Ah, jërëjëf di leen sant ngeen di sant ñun lu bokkaloon plateau bi yëpp di sant it waa réew mi yëpp sant waa Touba ma ko waxee woon léegi maa ngi jot léegi message sëñ Abdou Samatum sëñ Abdoul Khader. léegi nii donc koy sama sëriñ Abdou Samad Samat moom sëriñ Abdou Khadir la muy bég ci waxtaan noo ngi koy sant di ko ñaanal yàlla mhm. nuyu sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Chouaïbou moom it di sama sëriñ xarit Abdou Mamoun moom sëriñ Abdou Lahad sëriñ Bachirou Thioro moom sëriñ mi ngi ànd ak bi ak sëñ Cheikh Abdou moom Baye Cheikh Khadi ba sëñ rek la ñëw sama kër yendu fa moom it sant bu baax a baax sëñ Mouhamadou Nasir Samb maa ngi koy sant moom it sunu sunu soppe la moom Baye Amadou Samb Nasir Samb sunu doom ah, Samb Daarul Moxti mhm. moom it maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy ñaanal yàlla di ko di ko di ko sant bu baax a baax waa Touba Samb ga nga xam ne falaa jóge Samb sëñ Baara Furaji it du ma ko bàyyi tàggoo di wax dana may wax ne fala sama Samb nekk ndax ba ma fa ba ma fa dëkkee ku fa ñëw xam ne falaa dëkk kon man la may am foofa la tàmbalee kon maa ngi maa ngi maa ngi leen di sant di beral sama bàyyi nuyoo mu Cheikh Mahamadul mi nga xam ne mooy sama wasila ba noppi di sama way jur di ko di nu xiirtal waxtu wu nekk ci bëgg sëñ Tuubaa ak waxtaane sëñ Tuubaa buggaan it maa ngi koy sant bu baax ndax euh, wayef gin seetlu ci moom ak yitte ji nga xam ne it def na ko ci ci jataay bi. na ko réew mi bàyyi xel de. wax dëgg yàlla ñor lool ndax ñor gi mi ngi tàmbalee ci sëñ Ablaye. Mhm. xam nga yow bi jokkoo. Mhm. ma ne aw autorisation pour ñëw otoom moo ma jël si. xam nga Touba ak Dakar jegewul boole ko dalal nu ci ay béréb coono bu nekk mu mu mu mu mu daj ko non koy noo ngi koy koy noo sant bu baax a baax. Mm-hmm. di ko di ko ñaanal yàlla it mu yeggale. ñu xam ne jataay yii nuy def ñun ñu ciy ñëw concurrence wu. dañuy liggéeyal Serigne Touba. Mm-hmm. Serigne moo toll noonu. fu ñu woo dañoo war a dem toog fa waxtaane fa Serigne Touba waxtaane fa lislaam ndax ñenn na koy déglu li may wax ne sëñ bee rëy kenn rëyut kon ginnaaw booy dem sëñ bi ngay yóbbu. kon sëñ bee fi nekk kon ñu bàyyi loolu xel xam ne lii lépp yaataayu toolu sëñ bee mhm. kenn ku ne war na fee mën a toog boo fi jógee dem toog feneen dem dem taxawaay feneen ndax bu doon loolu barki démb laa jógee TFM kon du ma du ma du mën na maa bañ a ñëwaat fii mhm. waaye teewul ñu wane ne lépp benn la sëñ Tuubaa la ñuy liggéeyal ndax démb ñeneen a fi nekkoon la ko jiitu ñeneen a fi nekkoon tey jii ñuy ñëw loolu day wane ne lii ñuy def ñoom sëñ Bogaan ak yeneen télé yi koy li ñuy jàngale mooy wane ne am nañ mag ñoo xam ne ay référence lañ ay royteef lañ ndaw ñi bañ a réer bañ a roy lu ñu wër ta roy war topp lu ñu wër ta topp kon ñoom dañ leen a war a sant ñaanal leen ba noppi jàppale leen parce que mënoon nañoo def leneen lu bokk ak loolu mhm. fi ne tey am na ñoo xam ne déggee nañ fi ci seen sëriñ loo xam ne xamuñu woon seen sëriñ fu mu toll ci noonu ñu jël seen bopp joxe ko kon ki la may boobu chance sant ko ak gërëm ko rek euh, loolu loolu loolu moo war maa ngi sant soxna moomi Kebe ni ñu ko waxee woon léegi oh, sama doom bu baax jooju si soxna moomi maa ngi koy ñaanal moomi du baax a baax di ko ko san sama doomi sëriñ ju bëgg sëñ Tuubaa nag muy soxna jaxate Mbakke moom ko bëgg sëñ bi la moom da koy jaral xuloo di leen sant yéen ci seen yar ak seenu dal ak seeni teggin wax dëgg yàlla nit ñu dal ngeen ñun ñu yiw ngeen bàyyi Ablaye noo ngi lay sant bu baax yooyu di la gën a yow sunu xarit nga sëñ Ablaye Lam ci dal geeg yar gi ak technicien yëpp koo xam ne war nañu koo tudd te sunu xel fàtt ko noo ngi li sant na ngeen ma baal nag waa hôpitalu Matlaboul Fawzeyni maa ngi leen di gërëm rawatina waa piétari ndax dem naa fa am ñu ñu jëflante kon maa ngi leen di gërëm ñoom bu baax a baax ndax amoon naa tout tànk bu wéral di boo xam ne coono bu nekk waaye di belal sant sama xarit docteur Souran moom it bu ndaamaatu muy sunu xarit nekk koo xam ne ku bëgg sëñ Saliou la koo xam ne moom it ku daan toog Serigne Saliou la waxtaane Serigne Saliou yu yu baree bari maa ngi jaarale nuyoo boobu sëñ Bassirou Ndiaye foofu ci Fawzeyni di leen gërëm bu baax a baax yéen it sëñ Saliou gërëm leen sama xol sedd na bu baax lu des di jéggulu Sénégal gépp nag di wax ne man maa ngi jéggulu ñëpp ndax suba la suba la korité képp koo xam ne jàpp nga ne amel naa la benn àq maa ngi la koy tuubal di la ko jéggulu man nag jéggal naa ñëpp ngir jëmmi Serigne Touba ndax sama Serigne danaan baale di jéggalu rek téléspectateurs yi parce que euh, justement euh, suba la korité te yaa ngi war a ñibbi ba Touba ah. waxtaan bi amoon na solo mais dañ ko mujjee euh, arrêté rek di leen remercier di leen jox nag rendez-vous ëllëg incha allah ci plateau finalu grand plateau GP donc ëllëg lay doon à partir de 20h30 di wax rek ne que surprise yu bëri ñu ngi leen fay xaar donc bu leen ko tardé benn yoon demain lay doon à partir de